Eh, ni nu leen ko digge woon muy ni nu baaxoo woon a waxtaane yonente yi ñu diggoon leen ni fas nañu yéene andi it jaar-jaari sëriñ Tuuba xaadimul rasul jàngat ko ni nu jàngate woon jaar jaari yonente yi Cheikh Ahmad Bamba ñu xamee ko xaadimu rasul mu doon jëmm joo xam ni bala noo dugg ci dëgg dëggi waxtaan wi yàlla nañu def ci tuuti laltaay ci ay maamam fi ñu jaaroon ak njaboot yi ko yàlla feeñale seeni melokaan su ma demee ba dugg ci jàngat tasawufit danaa ci def benn laltaay ci tasawuf leeral ngir mi mu doon dund mooy mooy lan ak lan la ci boroom xam-xam yi wax Sëriñ doonoon jëmm joo xam ni nitu yàlla la doonoon ko xam yàlla tudde boppam abdullahi wa xadimu rasulihi xew-xew yépp taxawaay ba mu cay taxaw ak la mu cay wax ci jëmmi boppam mooy ni moom jaamub yàlla la yàlla moo ko moom te boroom bu ne nag sañ naa jëfandikoo ca lam moom nu mu ko neexee te kenn waru ko caa diingat naka jekk jekk taxawaayam yépp ak i waxam la mu cay leeral mooy yàlla ko xereñ la te ko xereñ du def dara ci lu ludul xikma loolu moo waral mu faboon mbir yépp jébbal ko suñu boroom yàlla di dogal di dawal ay dogalam ci moom na mu ko neexee te du ko jàmbat du wonk du ko diŋatit doon ko nangu dogalub suñu boroom doon ku daan dalal xelam ci yiy daw ci àdduna lu ne rek mu fas ca ni yàlla mooy def lu ko neex lu mu doon rek da ci daan gis xikmam yàlla te mooy xerañu suñ borom loolu moo waral mu doon ko dund dund ci xel mu dal dund doon ko set ab xol dund doon ko ànd ak sagoom jëkk muy feeñ ci Sénégal Sénégal dafa daj kapp akum pox daj kapp ak i caaxaan daj kapp ak yudul noona daj kapp ak sàggane diine daj kapp ak ndamoonte ci ay ci aw askan Sëriñ Tuubaa ñëw woo nit ñi jëme leen ci yàlla woo leen ci sellal ak jaamu yàlla woo leen ci wéetal yàlla woo leen ci bàyyi ay biddaa woo leen ci jikko woo jikko yu rafet Sëriñ Tuubaa doonoon jëmm ju am li tubaab di tuddee personnalité doon jëmm ju wéet ci xalaat bu kawe doon jëmm joo xam ni lépp luñ soxla ci kilifa rek daje ci moom doon ku am ab yëg-yëg doon ku dëgër ak nammeel loolu moo waraloon nit ñi di wommatu jëm ci moom am ci moom cofeel goo xam ni néew na ci histoire ku nit ñi womatoo jëm ci moom ni nit ñi wommatoo jëme ci Sëriñ Tuba nan la meloon Sëriñ Tuubaa dafa doon ku digg doomu ab taxawaay gàttul bañ naan ak ndaama la waaye guddul bañ di ko melal ci ni am njool la mu doon ku woos aw yaram waaye ci biir woos gépp yi ku amoon yax la ku ko gis danga xam ni dafa dundul dafa lekkul naanul waaye bu dundoon ku am jëmm la mu doon jëmm ju xeereer bu daan doxit day dox dox bu gaaw doon ku sawar doon ku ku ku ku am xel te yaatule ko doon ku am ak yëg doon ku set ci aw yaramam waaye doon ku set ci ay yére yi muy sol waaye set ci béréb bi muy toog dafa baaxoo woon it di kaalawoo kaalag sommoor te kaala goo xam ni kaala goo mooy kaala goo xam ni dafay mel ni lu ëpp ci kanam bi day muuru ba muuraale tuñ yi mu daan sol col gu weex di kaalawu kaala gu weex di sol dalli karbat dàll yoo xam ni ci dénk dañ koy defaree ak der mu doon ko set ab xol doon ko amuk ñeewante ci nit ñi doon ko amoon yërmande ci ñoom doon ko sawar moom Sëriñ Tuubaa mu doon jëmm joo xam ni bu masaan soobu aw yoon du geesu dafay dox jawal rekk fi mu jawal bu demee ba mënta ñàkk geesu danaan wël bët jëmm jëpp doon ko bëgg xam-xam bëgg boroom xam-xam yi bëgg boroom xam-xam yi adab bëgg woykat yi di leen jegeñal boppam moy kan moy muhammad ibnu muhammad ibnu habibillah habibullah moy mam balla mom la mom lañuy wax mam balla ma ca ngay mam balla mom di domi ku ñu wax muhammadul Khairi mom lañ da wax mam maram mam maram mom baye mi ngi tuddu habibullah moy mam balla mu mag mi tuddé mam balla mi habibullahi moom yi di doomi ku ñuy wax muhammad al kabir muhammadul kabir di doomi ku ñuy wax said said di doomi ku ñuy wax osmaan seen maam mi ngi tuddoon alhaaji cheikh mbàkke nekkoon ca fuuta tooro ay tukkulóor lañ woon waaye wax nañu ni mi ngi bokk ci ñooñu it boo leen toppee dañuy dem ba dugg ci nit ñu weex ni ci xabila gu ñuy wax alu mu di nal la alaaji Seex Mbàkke moom yi moo gàddaaye woon Fuuta Tooro ñëw Jolof wàcc ci dëkk bu ñuy wax ngeeneen ba mu fa wàccee it la mu daan liggéeyee mooy jàngale ak di bay di fàggu dund bu lew ci bay di jàngal nit ñi diine waaye noonu ba mu fa saxee la nit ñëpp fàq wut si ko ngir sàkku si xam-xam mbokk yam bokkal ñenn ñi dañoo dem Mauritanie ñenn ñi dem ba ca suufi anglais ngénneen googi fi la sunu maam Habibullahi mi jur maam maaram toxoo ñëw ñangeen ca gébbal ñangeen gogu wax nañu ni saxna fa lu mat fukki at di jàngale di bay ba buur ba jolof bu ñuy wax barkeel ma fente am ci moom kóolute am ci moom ak doyloo jébbalu ci moom may ko rakkam li ñuy wax aram ñang aram ñang moom yi moo jur suñ maam maaram muhammadul xayir maam maaram mi ngi juddu ci atum ay xachin mooy mille cent onze mi ngi jànge alquran ci way juram moom yi muy Muhammadul Habib te mooy maam Balla mu mag ma maam maaram moo sëriñ Moxtaar Ndumbe mi sancoon kokki magante wuñu lu bari ndax sëriñ Moxtaar Ndumbe mi ngi juddu ci atum day xachin te mooy mille cent quatorze mu mel ni maam da koy mage lu toll ci ñetti at mamaram ci bayam la jànge alquran bi mu jange alquran ba mokal la bayam wacc ab liggéey napp lu wuji borom nonu gannaaw bu bayam faato la laxas ngir sakku ji xam-xam jóge jolof dem kajoor ci dëkk bu ñuy wax tabilang tabilang gogi fa la borom xam-xam bu mag bu siiw nekkoon ñu di wax samba cham Masamba Caam moomee fa la doon jàngi xam-xam fa la daje ak sëriñ Moxtaar Ndumbe mu daan sàkku xam-xam foofii ci maam Masamba Caam moom itam ba kóllëre gi dox seen diggante foofee la doxe woon seen diggante naka noonu euh, ma Lamin Saar mi sañcoon caarin jàmm gi ba tey foofu la jànge ñoo fa daje woon moom itam mook maamaaram foofu la maamaram ba jeexal xeeti fànni yu bare bare ma Lamin Saar moom mi mu jamonoonte doon foofu yi te amoon ak moom kóllëre mu doon mbokk daara am moo sabab euh, sañc gi njabootug maamaram sanc fii ci mbakki Bawal bala ñu euh, ñëw ci gane àdduna sëriñ bi danañu ko leeral incha allah wax nañu ni mamaram diir bi muy nek ci mama samba cham mu dafa bolé won jang alquran di jang ak di ko liggéeyal amna sax ñu ne dir ba mu fay nek mo gaddu won dunduk serigne ba ak dunduk njabot ga lolu mo waral ba iya mu démé ba yeggale am jangam bay taggo serigne ba wax ci mom wax ju siiw jojé muy dafa wax ni pënd bi wéy na barke bi day tohona fi dem ci waa Mbàkke ndax ki diirib li mu fi nek dafa bolé won jang ak di ma liggéeyal bi mu jangé ba yeggal am jangam nak ci la bagasam, delu dellu jolof sanc fa dëkkam boobu ñuy wax sa ñanka bo mu ko sancee fofé la den ci soxna mu ci doomu nijaayam bu ñuy wax awa ñang awañ ak moom am na ak moom benn doom bu góor ak ñaari doom yu jigéen benn doom bu góor mooy ibrahima awañang ñaari doom yu jigéen yi ibrahima awañang mooy maam yi waa dimbu dafa daan jàngale ci ron ak dimbu difa fa jàngale alquran ñu di ko askanal ci dimbu googee moo andi mbàkke dimbu ji ñaari doom yu jigéen yi kenn ka asta mbàkke la ki ci des asta mbàkke moom mooy ndey ahmadu asta mbàkke mi na afe naka noonu beneen doom bu jigéen bi jël tudd soxna mbàkke mooy maami xaadi ma jaxate kala wax nañu ni dafa àndoon nag borom këram di jàngale alquran moom soxna mbàkke moom naka noonu maamaaram ginnaaw bi la jël soxna suñuy wax farimata sekk moo jur euh, doom ji ñuy wax ahmadou farimata mooy ab taawam ak ceerno farimata dem buso bi jël sa soxna buso mu jur ahmadu soxna buso ak sayar soxna buso ahmadu soxna buso euh, mooy maam yi maam jaaram moo jur maam astawaalo sayar soxna mooy maam yi sëriñ ma ndumbe naka noonu mu dem mbayeen cees bi jëlee fa ku ñuy wax soxna mbay moo jur ma abdu ma abdu soxna mbay lañ ko daan wax naka noonu mu jëlaat na soxna suñuy wax ab sa njaay mu jur fa ku ñuy wax Seynabu Mbàkke naka noonu ay Aysa Kan moo jur maam Balla mii caatum maam Maram Aysa Kan moomu dañoo wax ni amoon na fi lu mat fukki doom ñoom ñëpp dañoo jiitu ji ba mu des maam Balla moo ci dund mooy fukkeelu doom ba amoon na soxna suñuy wax Xaddi Jóob mu am fa ku ñuy wax Cheikh Ahmadu Xaddi mooy maami sëriñ Balla Joor ak sëriñ ma Abdou Mbàkke ca Mbàkke Bari li sabab njabootug maam maaram nekk Mbàkke Bawal euh, ma Lamin Saar moom mii ma tuddoon léegi mu dëkkoon caareen moo ko moomoon sax ba noppi doonoon wóllëreem doon mbokk daaraam ca fa ñu leen jàngi xam-xam ma Lamin Sarr moom bi mu nekkee caarin jàmm dafa doon ku yàlla wuyu mbooloo mi nangul ko lool ñi di sàkku si xam-xam ñi di barkeelu ñi di siyaare si waaye loolu andil na dammeel bañ daan wax amari ngóone nox noxi xol mu wax ni kii li mu am ci réew mi man sax uma ko fi kon nag benn ci ñaar yi rek mën a nekk benn dinaa ko rey mbaa ma génnee ko noonu mu yabal fa ben way bu ñuy wax bo xamni mo doon kilifa kaba ñu di ko wax fara kaba fara kaba bu tuddu masamba fabe fara kaba bu tuddu masamba fabe la fa yabal mu ñew wane ni dafa bëgg a day sakku ci xam-xam waye fekk lepp nak da doon seet rek taxé mu mu ko bam ba fa amé at la ko fekk ci tolu këru ñambi ba rendiko ko ba mu ko rendee dem làmbaay fekk fa dammeel amari ngóon ni ko reyal naa la Malamine Sarr noonu dammeel sant ko ba bés booba la ko fal mu doon kilifa kaba bi loolu amee nag sëriñ sëpp dajaloo fu ne ab sëriñ jóge fa ñu jóge waalo ñu jóge njàmbur ñu jóge jolof ñëw di walwali di jaale ci sëriñ Mad Lamin Sarr moom yi waaye ci biir loolu yi biñ jaalee ba noppi nag ñu takkatoo waxtaan nag ni kat damel mi ngi bëgg a ëppi loxo te buñ ko bàyyee mu sóobu ci di rend ay sëriñ daara ñu di ko ci bàyyi nag dana dem ba def lu ëpp lii muy def kon diine ji sax dana àgg ci moo tax ñu takkatoo woote ab xare ne dañuy xare ak moom waaye dammel it waajal xare boobu woo mbul ak sàq ak sugeer ak làmbaañ ñëpp ñu daje daje bawal waajal xare boobu yi ngir waajal xare ak sëriñ si sëriñ si biñ dajaloo yónnee fu ne ay ndaw noonu lañu yónnee ca maam maaram a ma nga jolof sàkku ci moom mu ñëw bokk ci xare bi waaye maam maaram gàntal ne lim gis du jihaad xeex rek la te mooy am lu la naqari nga jóg di xeex bokkut ak jihaad ngir tàbbal nit ki ci diine wala lu na mel mu ni moom buy wallu jihaar ci yoonu yàlla lay war wallu waaye du wallu ab xeex noonu la gàntale bi mu gàntoo sëriñ si daje ak caddo yi ñu xeex waaye xam ngeen ni ab sëriñ ginnaaw xare du woon mbiram te caddo yi naka jëkk xare moo doon seen mbir ñu gañe leen day yomb moo tax noonu la dammeel amari ngoone jàpp sëriñ sépp rey ñenn ñi ñenn ñi mu def seen ay jaam bi xare bi jeexee maam maram toog na lu mat at doog a jaale si bi mu ñëwee caareen ngir jaale si njabootu sëriñ ma Lamine Sarr moom mi mi ngi ànd gàngoor gu bari mbooloo mu bari topp ko ñenn ñi ak njabootam lañ ñenn ñi ay surgaam lañ ñenn ñi nekk ci ronu kilifteefam wax nañu bi mu ñëwee ba agsi guy fukki sér pënd bi jolli na ba àgg caareen su ma àggee caarin la yónnee ci dammel amari ngoone yëglu ni ni leen dammel maa ngi koy nuyu dammel ni ni leen ko fay naa ko na fi ñëw bi mu dogoo ci seeti dammel sëriñ sëpp jàpp ci ne ko boo demee dana la rey na mu defam sa mbokk yëpp waaye mu ni leen nag muus ak gaynde bokkuñ te mënuma ñàkk dem ak lu ma ci mën a fekk daldi waru fasam ànd ak lenn ci ak njabootam buur bi sàkku ni nañ daje fa xurwa maak moom képp waxtaan bu nu kenn ñetteel noonu ba mu bëggee def loolu yi ba tey ñu feddliwaat ni ko boo demee mu rendi la na mu rendee woon sa mbokki sëriñ sa waaye mu dogu ci ni mënti ñàkk dem dajeeg moom ca xurwa ñu daje ca xurwa nuyoo la ko dammeel amari ngoon laaj fonk ko lool teral ko teraanga ja ci war laaj ko ni ko lu doon sa itte ak lu doon sa soxla ba tax nga jóg fàttali ko it kulere gu doxoon seen diggante bu yàgg ndax nee na ko amari ja mi jur jay la sa maam moom lañu ñu ma tuddee moo tax yow bëgguma dara lu ñaaw dox suñu diggante dañ ko laajee lu mu bëgg maamaaram xamal ko ne ko dafa ñëw ngir ñaari mbir benn bi mooy dafa ñëw ngir jaale si mbokkum daara mii muy mu Lamin Saar ba ca desit mooy dafa ñëw ngir bëgg képp kum jàppoon ci xare bi ci ab sëriñ mbaa doomu soxna mu bàyyi ko bu ñu ko mënta bàyyi ngir yàlla it moom mën na ko jot waaye xare xeex bu mel nii waree su ci jàpp jaam ndax du jihaad xeex rek la noonu la dameel rafet lo am xelam ne ko yow borom xam-xam nga sa xeli rafet na dal di yone ci kangam yi ni mbollem kuñ jappon ci xare bi ku ko ci meuna baye bàyyi ko bàyyi ku meunta baye yit ñu jot ko la mamaram ware di wër fep ba kuñu ci jappon mu jot ko ci digënté rek bawal ba ñepp libéral delu seen kër mu del ci war na ci damel tàggu ko nag ni day dem Jolof da mel ni ko saxal mu rafet mii nag yéene woon naa nga dëkk seeg man dama bëgg nga tuxoo Jolof ñëw fii fi Bawal ma daggal la fi suuf nga dëkk fi yaag sag njaboot ma def la sëriñ ndax yow yaa ëpp xam-xam ma Lamin Saar waaye maam gantal lol ni ko man nak manatuma nek fenn fulul jolof waye njabot gangi ni man nga ci tan ko tan ma bayil lako fi damel tan ibrahima awaña ni ko ki la beggon mu dess fi waaye maamaar ni ko kooku nak dafa don sama loxo da fay takok man luma meuna tagok mom dal dina ko waye sama tawangi ni moy ahmadu farimata man nako fe baye loolu moo sabab dammeel daal di woolu basin laa te mooy kay jiite ka ka yilifoon laa ci jamono booba laa mi ngi ci penku saate jëm mbàkke boobu moo yilifoon dëkk boobu moom basin laa mu jox ko ndigal ci ni ko daggalal mm, sëriñ ma maaram mi ci sa penku noonu la tàggoo ak maamaaram moom dameel mu war wàcc ñaxal foofu la fanaan ba xëyee dem kër basin laa jóge fa dem saate fanaan foofee ca sëriñ bu ñuy wax masumbul anta foofu la bàyyi ko dem ñaraxlaan wàcc ca Wiga. bam fa wacce basin la wax ak serigne ñaraxlaan ci li damel bëgg ñu daggal ko fofu ci bakki rahlan. mu dekkal fa domam joji di ahmad farimata mok mbolo mu bari wax nañu ni bis benn bis ba kep sanci nañ ci juróom ñaar fukki bunti kër ñëpp di dañ dañ yendu dañ dañ di sanci ba suba ba ngoon jot mi ngi nekkon ci atom junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ahmadu farimata wax nañ ne am na fa fanweeri at mbaalu ko jege ba mu faatoo lañ dem jolof wax ko maamaaram mu yebal rakkam ibrahima awañang mu ñëw sanc si dëkk ba moom itam toog fa moom itam nekk na fa diir bu yàgg wax nañu ni sax na fa mat fanweeri at moom itam moom Ibrahima Awa Niang bu mu faatoo nag te fekk bi muy faatu baayam maam Maram faatu woon na jëkk ko bañ denc ko foofee ca Sañanka ca Jolof naka noonu euh, mbokkam ma ñuy wax Ceerno Farimata faatu ba foofa lañ ko denc moom itam Ahmadu Soxna Buso ak sayar soxna bu soñu mi tam faatu nañu ba ña nga leen denc ca baari ñun ñepp nak bañu faatu ba kenn su ci kudul caat ni te moy mam balla non lañ ko wo ni ko ñëwal sanc ci mbacke ndax sa kër baye jamono boba ma nga daan jang fa kër sëriñ matar kumba njaay mok sëriñ buso bi mu juru mi way juru jaara ñofa di jang bi mu ñëwee Mbàkke mi ngi fekk sëriñ moo du Modou Dieng sancoon yi ci Mbàkke dimbu ba ay wax doxoon seen diggante mu dëppaat dem ca doomu ndeyam loolu daana am daana am ci euh, doomi taaw yi ak caat doomu taaw day bari doole ñaare caat mi mën naa ñëw ñëw doole bu ko defee loolu euh, day mel ni kii baayam la te kilifteef gi ci loxol kee lay nekk loolu lu yàgga am la ci àdduna waaye mel na ni euh, bi waqante amee seen diggante la fa tuxoo la fa jóge moom maamaaram daal di dem ca doomu ndeyam di ñuy wax maam Baara Sadio Baara Sadio Aysa Sidi saajo saajo ak saajo Sidi dañ ñaar lañ ñu bokk ndey ak ñu toppante kay moo jur maam Baara Baara kii jur maam kii jur maam Balla wax nañu nawet boobee fale ko nekk ba nawet ba jeexee foofu it la yaayam euh, la woy juram wu jigéen noppaloo ñu denc ko ñu denc ko foofu ci Sadio ginaaw bi nag la ko dammeel yebal ni ko demal mbàkke sanc ko ndax sa kër baaya mu ñëw wàcc ci peggu dimb gi e, sanc ci xewar ga moom itam tudde ko mbàkke xewar nekk na fa ab di jàngale di di di liggéey mbooloo mi fàq di ko fekk si di bàyyi ko ci wet gu ne ngir di sàkku si xam-xam wax nañu ne ci loolu diir ñaar fukki at ak juróom maam Balla mi ngi amoon ñetti doom muy Serigne Abdul Khadir mooy ab taawam Mamor Anta ak Serigne Mbacke Kajoor li sabab ak génnam dem ngay nag mooy Serigne Abdul Khadir moom it di ab taawam dafa génnoon ànd ak Serigne Modou Dieng ñuy tukki waaye cadde yi woon laa dog leen rey ko na dañu doon séntu ci ñoom alal wala dara. ba ñu ko rayee nag moo sabab maam Balla daal di takki bagaasam dem ngay ca siin waaye foofu it ñaari at rek la fa am moom itam ay pël ñoo ko fa romb ray ko kon loolu mooy histoire maam Maram ak maam la Mamor Anta Sali mi nga xam ni mooy way juru sëriñ bi te mooy Muhammad ibnu Habibillah dafa nekkoon boroom xam-xam bari woon xam-xam la mi ngi jële woon xam-xamam ci laxas ci ginnaaw bu mu jàngee ci way juróom li mu jàngee ci moom ba noppi laxas ci jàngukaay njaambur dem na ci benn boroom xam bu ñuy wax Masamba Anta Ceebo ci waa Kokki kooku boroom xam-xam bu mag la woon mu jànge ci moom xam-xamu naxwu moog nijaayi sëriñ bi muy sëriñ Buso bi ñoo jàngandoo woon foofu ci ño jangando won fofi ci masamba anta ciebo ginaaw bi la dem salum la dem salum moom itam jëlee sàkku jëlee euh, fa jànge fa xam-xam ci sëriñ bu wax muhammadu sal ci waa bamba waa Bàmba Sàll googu ci sal dafa mel ni ci jëmm jooji la jële lu ëpp ci xam-xamam moom Maam Mor Anta Sali xam-xamu tawxiid ak fiq ak yeneen muy sëriñ boo xam ni ku ñu melaloon la ci ak wilaaya wilaaya gu mag mu doon boroom xam-xam bu jëfe xam-xamam doon ku nit ñi doyloo doon ko maandu doon ko jullit yépp wormaal naka noonu ceddo yi it a ko maase woon warmaal mu doonoon ku siiw ci gox yëpp waaye moom euh, Mouhamadou Sall mu mi nag dafee bàyyi ko te bàyyiwul njaboot ay mbokkam ya mbokkandee bàyyi ñoo fi bàyyi ak njaboot dëkkam boobu ñuy wax Bàmba euh, moom la ñuy askanale sëriñ bi ngir moom la ko woy juram tudde woon ngir fu ko tegoon loolu moo doonoon aaday waa réew mi ñaari seeni doom dañ koy tudde seeni sëriñ di ko tudde it seeni baay li mu ba jeexal fànn yëpp nag la tàmbulee jàngale moom Maamor Anta Sali daal di siiw lool ci am jàngale moom tam ba mu mel ni barkeb sëriñam yooyu lépp dafa xëpp rek ci kawam kone rek mbooloo mi di fàq di ko wut si di sàkku si ci moom xam-xam kon nam tàmbale woon ca Alaaji seex Mbàkke jaar ci maam Habibullahi mu mag ma jaar ci maam Maaram jaar ci maam Balla mu mujj noonu la mbooloo mi fàqee topp si maam Mor Anta Sali doyloo ko ci wàllu xam-xam ak diine fu rek mbooloo mi dafa bàyyi ko ñu jóge Saalum ñii jóge bawal ñii jóge kajoor ñee jóge njaambur ba ci doomi sëriñam yam doon jànge sax am na ci ñu ñëw ci moom di fi sàkku ci xam-xam ñu di ci tudd ka ñuy wax Masamba Marème Masamba Marème doomi Masamba Anta Ceebu la ci ñi ci Maam Moor Anta Sali ngir sàkku si xam-xam ci la bokk kon foofu yi ci Mbàkke Bawol nag fi la sëriñ bi ganee àdduna kon sëriñ bi mi ngi ganee àdduna ca Mbàkke Bawol ci atum junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk am ñu ni junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar noonu bàyyam deme woon doon boroom xam-xam bu dëgg fiq doon ko rafetum xel jullit yépp gërëmloo ko mu doon jiit buuri àddina yit sopp ko ngir xam-xamam bu leer aku sàmmoonteem ak dëgguk waxam ak ateem bu jub noonu la way juram wu jigéen maam jaara jaaratullahi soxna Mariam Buso doonoon moom itam jëmm ju baax ju fegu di ku am diine doon ku bari ay julli ak i woor ak i sarxe doonoon ku wommatoo ci dogalu boromam doonoon ku taxaw ci war-wari diineem ci digganteem ak boromam ak war war-war ya ko war digganteem ak borom kanam boobu yi ñu ko booleel muy Mamour Anta Sali mu doon ku daan yar ak njabootam ci mu doon ku daan yar ak njabootam moom maam jaara ci diine ak ngor bi leen yar ci ak laab bari na lu mu leen daan nettali say nit ñu baax ñi sëriñ bi ci ak ñawam ak bind bu set bi ko suñ boroom bind daf daan déglu nettali yooyu yi suñ maam jaara di nettali di ko jàpp di ko jéem a jëfe te booba sax amagul ak ràññe sëriñ Basiru nee na am na ku ma doyloo ku ma nettali ni mas naa fekk ab jataayam benn bis moom maam jaara wax ni nit ñu baax ñi di dañoo baaxoo woon di taxaw guddi waaye nee na sëriñ bi mujj bi mu déggee baat boobu mu ne nit ñu baax ñi dañoo baaxoo woon di taxaw guddi du ma ko déggee rek la tàmbali di def guddi gu jot mu jóg dem di taxaw ca ëtt ba te booba demagul daara waaye lépp ngir bëgg a tàmm jëfi nit ñu baax ñi loolu kon day mel ni sonne gu suñu borom sonne ay mbiram la ni Busayri tàgge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni alifan nuska wal ibadata wal xilwata tiflan wa hakada nujabaau muy miin na ak jaamu yàlla ci julleeg woor ak rendi waaye noonu la miine it wéetaay ca ba muy doon gone waaye naka noonu tànneef yi yëpp yëpp noonu la leen suñu borom di baaxee bañ tàmm ak jaamu yàlla ci seenu ndaw mu doon ko melowoo bépp jikko boo xam ni dañ cay tàgg nit yàlla yi rek noonu la sëñ bi daan doxe mësta dégg dara lu ñuy tàgg nit yàlla yi te du dana dem di ko jéem te booba mi ngi ci diggante ñaari way juram ak i mbokkam ñenn ñee ko mag ñenn ñi moo leen mag sëriñ bi yàlla def na mësta tumuraanke mësta euh, won ay way juram gannaaw mësta nekk fenn ci fudul ci ron ñaari way juram yooyu fa la lépp kenn mësta xam ci moom dara it lu wute lu juyoo ki teggin kenn mësta xam ci moom mer wala ab xuloo wala dàggoonte wala werante jamono bu ne day soxla wala koy amal njariñ mbaa muy wéet di jaamu yàlla sëriñ Bachir nee na euh, jigéen ju daan yor sëriñ bi nettali na ko ni ko lii di gaar gone yi dara mosu ko ci gaar muy ay jooy ak ay baj baje baj baji ak ak wadd wadd lu mu xiif xiif loolu du am wax na ne bi muy nàmp banim nim ba ak ragné kenn koo yor di romb béréb bu ñuy moye yalla mba béréb bu ñuy dajaloo di fo tadu dafa yëngutu daan yëngutu yëngutu bu tar di baj baje baj baj yu tar ba da ngay tit ci mom ba fokk nga depp jaar ci wenen yoon ba lol dañu muju xam ko ci mom ba béréb bu ñuy ba béréb bu ñuy defee ay tiaxan mbaa béréb bu ñuy mooy yàlla kenn du ko boot mbaa nga yor ko jaar jaar ak moom foofu loolu mujj nañu ko xam ci moom loolu mooy mbirum suñu borom tànn suñu borom la naka noonu moom moom yi ko daan yor daana nettali ni ba mu feree am soow la tàmbalee woon moytoo toog ci lal soxna jaar jamono bu ne da daan sax rek ci peggu jullikaay bi ci néeg bi julliwukaay bi ci biir néeg bi fa la daan sax ba mujjoon nañ sax di sikki sàkka ndax nit la ngir wóote googu mu wóoteeg li nga xam ba màgg tuuti ba mat a dem daara ñu dugal ko ci jàngukaay bi waaye ba mu dalee dañoo gis mu fonk njàng mi lool am ci it lool du tàggu ëlluwaam benn yoon duñ ko gis mu werante ak xale yi ñu xam nag eh, ni nag lii am na lu dox eh, lu nekk ci am na am na lu nekk ci moom ndax boroomum xel ak ku dese it duñ xam lu leen di jar maanaam boroomum xel fañ koy xàmme ku dese mooy ka mànkim xel ñu ngi koy xoole ca la koy war a ak la war a ndax lu cëpp du leen xàmme biñ gisee nag moom lépp luy aw yow mu farlu ca xamee nañ ci ni mànkiwut am xel ñu gisit lépp luy ab safaan mu di ko moytu te ku manqué fel ku ne ñaar yi di leen ci yow doo xam la baax ci yow ak la la lay lor ñu xamee ci ni moom mii dafa am lu nekk ci moom ndax gis nañ ni bu dee lu koy jariñ amu ca morom lépp luy nuru lu bon du ko jege fenn yoo xam ne kon am na yeewute goo xam ni ak dof la waaye am na ndof goo xam ni it ak yeewute la am na gàtt xel goo xam ni it ak yeewute lay teg moo tax lañu daan tiit ci moom lépp ñu mujj soppi ko ak rafet njort ak dëggal seen yaakaar ci moom sëriñ bi ba mu fereem soow lañu ko yóbbu ci maamam nijaay yi soxna jaar yi ñu daan wax tafsir Mbàkke Ndumbe ñu jaayee soxna jaara ñu daan wax tafsir mbàkke ndumbe fa la ko bàyyam yóbbu boobu ma nga ci jolof sëriñ Bachir wax na ci boppam moo ma nettali ni bi ma sama bàyyi di yebal ca sama maam jooji booba ma nga njax wax na ni at mu fere rek lañ ko fa yóbbu booba bi mu feree la Maam Mor Anta Sali tuxoo Mbàkke Bawol dem njax njakkan Nja mu ngi ci wetu Mbàkke noonu la la ko yóbboo ci euh, maamam tafsir Mbàkke Ndumbe moomu mu nekk fa ba mat a dal daal di tàmbalee jàng moom moo ko jëkk a tàmbalee jàngal sax di ko jàngal alxuraan ba lu bari ci moom la ko mokkale mu doog a faatu tafsir Mbàkke Ndumbe mi ngi doon jëmm ju baax ku bari xam-xam la doon ko am diine bokk na ci li ñu rafete njort ci moom euh, sëriñ Bichir wax na ne bi mu demee ba bay faatu dafa fekkoon muy bind ak kaamil boo xam ne dafa tàmbalee ci xaaju kaw bi tàmbulee ci xaaju suuf bi ngir di bëgg saabu demee ba benn paas bi noppi ba mu di ko wowal diir boobu mu war a toog muy bind ba ca des wax na ne bi muy faatu mi ngi tombeek mu toll ci xaaj bu njëkk bi mu ngi ci toll ci في سنبرم بوخني وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون خاج نيارل بي متولتي في سنبرم بوخني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يلن يال دقل قادم جاكمهم تيرم كوير من جياتو gannaaw bu maamam jooji muy tafsir mbakkendum bi faatoo la toxu dem ci nijaayam sëriñ busoo bi Mouhamadou Bousso la tudd ñu gën koo xam ci sëriñ Bousso bi mu doon imaam di boroom xam-xam loo doon ko boole ak sell akuk ñaw akuk njàmbaare ak kóolute ni waykat ba waxe ni jamaa shajaata wal xuduwa li rabbihi ma ahsana al mihraaba fi l mihraabi boole na ak njàmbaar ak toroxlul boromam ab mihraab cib mihraab nag dara dàqu ko waaye noonu la saxee ci nijaayam jooju ba tey ba mbir yi soppi ko mooy mbir yi nam soppi ko mooy e, kilifa gañ la wax Maba Jaxu dafa song buur yi xareeg ñoom daal di joxe ndigal ci ni mbooleem sëriñ si nañ ko fekk Saalum ginnaaw bum gañee boori Jolof la jox ndigal jullit yépp ni nañ gàddaay sekk ko Saalum mu joxe ndigal li la sàkku ci ñoom ne nañ xool kuñ wóolu koo xam ni sart yépp dana daje ci moom mu mën a yor mbirum nit ñi di ko segg te defaraat léegi ngir mu def ko muy eh, mufti bi doon seen kilifa bañ ne call moom moo leen xelal ni leen sëriñ Bousso bi doy na ma ndax bu fekkee d'accord ngeen ci ma def ko ko seen baat dëppoo ci ñu def ko sëriñ Bousso bi moom mu yóbbaale ko ba ko yóbbaalee yóbbaale mbooleem ñu mën a àndal ñu dem Saalum jamono bobu mabadi di togg nit ñi nañ ko fekk salum bobu serigne Mamour am serigne ma nga ca njax ànd ak nekk ak nijaayam ju bokk ak way juram day ak baye ku ñu wax Ahmadou Binte Kan moo sona soxna serigne bokk ndey ak baye nonu la leen ni momi ñoom nañ waaj laxas Eh, toxu toxu Saalum ñu ko fekk Saalum ñoom ñëpp mu diisoon lool ci ñoom booba ndax eh, nit diine yi fii ci Sénégal tàmmuñ benn joñ ju bari dañoo tàmm ab noflaay ba loolu metti woon na ci ñoom lool waaye teewul rek maba moom gis na ne moo nekk ci dëgg ngir la mu doon tiit mooy eh, ceddo yi dalaat ci kaw sëriñ si ngir mere guñ ko mere ngir gañe gi leen gañe mën nañoo jéem a fayu ci sëriñ si te booba it loolu mën naa nekk nag waaye sëriñ Bachir wax ni maba di def képp ku gàntal day jël sa njaboot jël say doom bàyyi dafa yow képp loolu bokk na ci li ko nit ñi critiqué waaye mu ni man mën naa mën na maa mën na maa wax ni mën mënees na ko jéggal ci lu bari lum njóobte yu bari yum def ci wàllu politik ak ñàkk gum ñàkk tey ak ñàkk gum ñàkk diisoo ngir dafa xëroon rekk ci taxawal diine islaam ak ñoŋal diine ak ñoŋal niti diine yi ndax eh, li ñu nga xamal xër gi mooy lu ëpp bu ñu ko masaan jàjj dana jàjj bu ñu ko masaan jàjj ci mbirum diine ko diine nangam nangam diine nanguwut nangam lu ci ëpp dana deltu ginnaaw te it mel na ni doonutoon boroom xam-xam te it wàllu politique yëpp xamu ko moo tax yàlla mën na koo jéggal ay njuumteem yal yàlla fay ko aw yiw Mame Balla nag jamono bi ma maba di dajale mbooloo mi di leen jëme Saalum booba mu ngi màggat ngi am juróom-ñeent fukki nangam mu jaar ngay bëgg ko yóbbu waaye mu gàntal ngir mag gi boobu fekk na bi mu koy bëgg a jëlit fekk na mu jël Maamoor Anta Sali moom boo mu ngi ko jël romb ngay nag bëgg a yóbbu mambal mambal gàntal ngir mag gi mu jéggal ko nii lii mooy sababu ñu sax ca sal ci biir situation yooyu nag ci la sëriñ bi dellusee nag ci loxoy Mamoor Anta Sali bi sëriñ bu Bousso bi àndeek moom ba ñëw saalum boobu la delloo ci loxoy Mamoor Anta Sali jàngi ci moom xam-xam ñu am fa ay at ànd ma ba yow na boobu mu gañe Kajoor ndax suñ boroom lay gañe Kajoor mooy suñu boroom moo ko dimbaleel boppam ba xëcc buuru Kajoor mu ñëw jëbbalu ci moom la sabab buru kajor di lajjoor muy jëbbulu ci maba moy ma jojja faal dafa dem ba dafa xëccoo ak lajjoor kajor ba not ko ma jojja ci ñi seen famille jëkka doon buuri kajor ci la bokk lajjoor it moom lañ gënoon a itam ay mbokkam yilif nañu kajoor lu jege téeméeri at ak ñeent fukk ci lat sukaabe ma ci jëkk ka ca mujj di sàmbalaw bi sàmbalaw bi nag moom la tubaab yi faloon def ko booru kajoor ay jamono waaye ginnaaw bi mujj rey ko bi ak juyoo amee seen diggante ñoo ko mu rey maa jooje yi dafa jàpp ni moo gën a yaay ngir ñoom la moom la ay mbokkam jëkkoon a yilif kajoor jëkk ñii di yilif xëccoo boobu rek Lat Joor nag bi muy xëccoo ak Maajooja mbooloo mu bari dañoo jóg ànd ak moom ngir ay mbokkam rek fi nekk ba tax na mu dàq Maajooja ay yoon ba Maajooja dafa mujj dem ci tubaab yi sàkku ci ñoom dimbal boobu tubaab yi ñu ngi fi biñ ñëwee dañu nekkoon ci liñ nekk rek ba ci dañ daan fab galak sax di ko jox buur yi damaa ragal ne galak googu tubaab bi daan joxe te di ko yokk di ko gën a dolli di ko gën a dolli moo dem ba mujj buur yi tàmbulee xëccoo ngóor gi ngir dañ ci ngir ciy gis intre ndax tubaab yi bi ñuy doog ñëw dañ daan joxe galak dañ daan fay waaye seen yoon nekkul woon ci nguur gi bi maa jooja demee ci ñoom sàkku ci ñoom ñu jàppale ko ci Lat Joor nag bañ ñëwee lañ dàq Lat dàq ko mu daw dem Saalum ba mu demee ba dugg suufu Saalum ci la ma ba yabale ay ndaw ñu xamal ko ne ko du la mën a recevoir ci lu dul nga tuub bañ xamee ne menn pexe amul la Lat Joor nangoo jëbbul ci loxoy Maba am ñuy wax Lat dafa waxtaan ak kàngam yi lu ciy pexe ñu ne ko tuubal rek boo fi jógee xam nooy def waaye suñ boroom def na loolu taw fi xam la ndax tuub na tuub ga rafet mu doxal diineem sax ca diine ja yàlla delloo ko nguurub maamam yooyu mu doon xëccoo di ko xeemeem ci lu benn coono jëbbalu gi ñu jëbbalu it sabab na mbooloo mu bare bare bari dugg ci diini islaam jëbbalu ñoom itam ndax kilifa moo mel noonu daje googu ñu daje nag ci Saalum mbooloo ñëpp daje fa ci la giir yi xamante ñu sore woon ay lool ci lañ xamante kilifa yafa fa nekk it euh, kenn ku ne ak mayam foofa lay feeñe ba ci lañ gisee Maam Mor Anta way juru sëriñ bi mu mel ni da leen raw ci rafetu jàngale ak wéruk fiq ak dëggu ci àtte ba mujj ñi ñëw ñëpp di laaj ak di sàkku xam-xam fa la ñuy sippi seeni e, bagage ci moom laaj jooju aju ci moom lool di ko laaj lépp lu soxla ci ay mbiram moom la koy laaj xaritoog moom ba ak ngoro dox ak ngorom la dox seen diggante mu yor doomu baayam muy soxna sa jóg loolu lépp nag maba mi ngi am kàttan rek dara manqué wu ci ba nim sooboo xarab siin xarab siin nag eh, ba mu ca sooboo fa ko yàlla moome siin dëkk bu ndaw la bu nekk ci Saalum ay séeréer fa nekk xeebu gim xeebu ak xat gam xat ak lim tàmmoon ci not not ci ab xare not Saalum not Jolof wann armob Kajoor buuru Kajoor nekk ci biiram tax na mu woyafal ndëkk su ndaw soos yi songe ko ak kàttan gu bare bare goo xam ni siin mënuñu ko dékku tolloowuñ sax ay doole waaye nag ba mu koy song it nag daf ko tegul ci waajtaay tegu ko ci ab nos moom maba te fekk waa siin ñoom ñu ngi waajoon ba jekk fas yéene dee ba jeex ci défendre seen bopp ak défendre seen réew dañu daal ba ci ki ci mujj sax bu ñuy dee ba jeex buñ ci bañ dara te képp ku ci bokkal ci noonu nañ ko fi ba bu kenn wax suñ secret ñoom ñu ngi waaj ba jekk ngir dee moom itam bi muy ñëw mi ngi bari mbooloo lool ak gàngoor ak ki bagaas ak ki jumtukaay waaye nosewu ko nag dafa jiitu di dox arme bi topp ci ginnaawam amuñ lu may rekk bali fetal yi di tàkk wet gu ne mu bàyyi ko leen fa ñu gis gawar yi di rot ni meññetum garab gu wow di di di di di rote noonu mbool bi amul lu may gis yaram yépp di nàcc mu xam ni day dee ndax daw moom xelam xalaatu ko booba waaye mu continuer di défendre ak doole ba ni mu daanoo bi mu daanoo it ba toll ci di waaja faatu am na ci encadrement yi ku ñëw bëggoon koo wëlbati bëgg ko jubale xibla waaye mu ne ko déet bàyyil ngir yéene jim amoon ci jihaad di moytu kanamam di jëm fenn fudul ci wàllu fa arme ba nekk noonu la faatoo mbooloo ma daw waa siin dellu seen dëkk euh, ña ko wóotu nag moom ma ba des fa di wattu lim jotoon a fatoo rek fatoo xaat yam jotoon a mooy dëkk yi mu jotoon a not ci salum ñu di ko wattu di doxal diine waaye dolli ci dara nag noonu la Lat Joor delloo Kajoor ndax ña yore wàllu fal ak folli ñoo dem ba jubloo folli maa jooja daldi xalaata fal Lat Joor jamono boobu français yi dañoo am doole ci mbir mi ndax bi maajooja jooja sàkkoo ci ñoom ñu jàppale ko ba mu dàq Lat Joor booba la ñu am ci nguur gi ab cër ba lu ñuy defat dañ ci waxtaan ak ñoom waaye mbooloo mi yor wàllu fal ak folli waxtaan ak tubaab yi ci ni leen dañoo bëgg a fal Lat Joor tubaab yi d'accord ak leen ko ñu bind lettre Lat ñëwee ñu falaat ko noonu la continuer ak ñoom ba ak juyoo amaat seen diggante euh, ñu ray ko daal di yilif suuf si ñoom tubaab yi bi Lat di dellu Kajoor nag ci la sonal Maam Mor Anta ci bëgg mu ànd ak moom ngir di ko yi ak di ko dimbale ci mbiri diineem ak yoral ko àtte bi eh, bu ko defee lépp lu ma àtte rek mu mën ko wéyal ngir nee na ko gisuma ci nit ñi kenn ku ma doyloo ni ma la doyloo sëñ mamaram sarit bi mu xoolee ba li gis ni loolu ci war wari diineem lu bokk bokk na ci laabiire nit ngir diine loolu moo waral amul pexe fokk rek mu jéem a ànd ak moom dem yaakaar ci it yool bi yonente bi Wahni ni li an yahdiya allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am yool bi yonente bi wax ni nit bu yàlla gindee ci yow kenn képp moo gën ci yow booy xonk juri kër yi yool bi ñu ci yaakaar tax na mu boole yooyu daal di takk ay bagage mu ànd ak ko xaaba yi di ko jubbanti ci yenati commandé moom dem mu daggal ko suuf ci peggu Pataar nag soriwut euh, dëkkub Lat Joor euh, soriwut cilmax mu amit heure yum ko fixé muy ñëw ngir àtte si waaye bu àttee ba noppi day dellu ci dëkkam boobe ngir bëggutoon jaxasoo ak nguur gi ngir euh, liy itteem muy wàllu jaamu yàlla ak jàngale laajul benn jaxasoo bi moo tax bu masaan ñëw àtte bis sàngam bu fa jógee day dellu ci tool yi ak njàngale ma mu mel ni jeexi eh, xew-xew yooyu yëpp nag jeexital na ci sëriñ bi lépp sëriñ bi mi ngi nekk ci tagg way juram te ku ne xam na ni boroomum xel mu am xam-xam eh, soppikuy jamono yii yëpp du romb sa xel nga wàcc noonu rek lu ci am lenn loo ci xalaat kon sikkuwut ni sëriñ bi ci ak ñawam bàyyiwut xew-xew yooyu rek mu dem ak soppiku yooyu rek ci mu dem rek ci càggante déedéet waaye am na ci xalaat bu gudd ba xam mbir yi la ko sabab dëgg dëgg xool sew-sew ya ca biir ba gis ni li muy li li jalt jalt yi bari bari bari bari ak wuute yi li muy bari bari bari bari ñaar képp a ko sabab wala benn mbir a ko sabab benn bi mooy bëgg a note ku bëgg a not ak kuy bañ ku ko not waaw neexoog noteel ak kuñ notoon muy jéem a rëcc ci notel bi ñaar yi rek ñoo andi lépp kii muy mabax gëm-gum gëm diineem moo waral mu bëgg koo tasaare te jaare ko ci yoonu force aku notel kee muy maajooja xool gum xool ni ay maamam ñoo nekkoon ci nguur gi naka jekk ñoo fi jëkkoon Lat Joor moo tax mu ne maa ci yell Lat Joor jot gém ci jot moom itam ni may itam fus ma yéen muy génn samay loxo xuloo bépp ak xeex bi lépp ak werante yépp coow bari bari bari ñaar yi képp la neexug noteel ak naqarik ñu not la nga bëgg a génn ci noteel ko bi ak xëccoo ay daraja biñ nekkee ci loolu nag ah, am jàmbur bu leen bett bu leen ëpp doole fuuf fekk ne nit ñi sol nañ sol nañ ci buur yi coono yi bari na ba dañoo mujj yokkat leen ba dañoo mujj sax ñoo sàkku ci tubaab yi wéeru ci ñoom ngir bëggoon sax ñu nangu pouvoir bi téye ko ndax nit ñi mën am jàmm ñun nag la tubaab yi daal di avancé ñu fexe ba foqar ci mbir yëpp ci loxo yi ñu ñu ko daan xëccoo mbir yépp delluwaat nag fa mu nekkoon ngir gune dellu ci la nga aada woon te sëriñ bi ak giiram ñu ngi aada woon jàng ak jàngale ak bay sëñ bi mësta dañ te sax ci jàng ak jàngale ngir boobu bépp nag gis na yi ci xew ak soppikuy jamono yi am ñi di yëkkatiku ñi di daanu ay nguur di sosu ay nguur di naxsaay ba xel yépp yokkat leen loolu lépp nag mu fab xelam ak xolam lépp di ko segg ba loolu dana ci jële loo xam ni dana ko puus ci xeeb àdduna ak woyafal ko ak sóobu yàlla ju dëggu ci moom joo xam ni yoonu wam cay jaar ngir woote ko lépp ci xekk ma lay tegu mu doon ko sunu boroom sonne moom sëriñ bi ndax pas-pasi diine dafa teel a sax ci xolam muy pas yi ko way juram wu tedd woowu nàmpaloon mu magg ca soneg yàlla peeg ko ci wet yépp loxol tawfiq wommat ko jaarale ko ci yoon wu jub tawfiq feeñ ci mboolem ay yëngutoom ak i dalam mboolem ay yëngutoom ak i dalamit lañ ca xamoon mooy lu wuuteeg li ñim tollool ay at di dund ndax naka jëkk mës sa bëgg ab jaxasoo naka jekk daan sax ci béréb bi jaamukaay yàlla yi lu mel ne jàkk yi naka jekk da daan taqoo jotaay nit ñu baax ñi naka jekk lañ xam ci moom mooy soxla woo lu koy amal njariñ waaye lépp loo mu njëriñ ñu ko ci gis mosuñoo gis ci moom benn rëcc rëcc bu bàyyi ko ci moom buñ koy jàpp buñ koy topp kenn xamul ci moom am pamba ay caaxaan loolu lépp nag bi mu dajee yàlla defal ko ak mokkal yomb ci moom mu mokkal alquran tel ko mokkal lool ci loxol maamam jooju muy tafsir mbàkki ndumbe mbaa boog la ko teewoon a mokkal bëriwut daal di sóobu ca xam-xam di ko jàng ci wayjuram juram ant Mor Sali ndax mi ngi bokkoon ci borom xam-xam yu mag yi daan jàngale jamono fànn yépp ay at rek la sëriñ bi jàng daal di raw ci xeeti fànn yépp nag gannaaw bu bayam demee ànd ak Lat mu des fa ab biir di jànge ci baayam bu ndaw bu ñuy wax Sàmba Tukulóor Ka ndax doomu ndey Maamor Anta Sali la ba ci moom la jànge lu ëpp ci e, xam-xam yi ngay jëkk a jot ba amuk ñaw dootu dellu ci way juram dëkk ak moom di xam lu ci moom ci diir boobu nag daana diir boobu mu delloo ca way juram ca pataar nag daana dem ca xaar yi ma jaxate e, booba mi ngi dëkk ak buur bi di xam lu ci moom lenn ci sew-sew yi làkku arab ak i mbóotam mbóoti balaax ak xarut ak ya ci aju Isa sëriñ bi daan ko andil ay bayit mu di ko xoolal Isa mu defar ci dara Isa mu xoolal xarut bi ba noonu la sëñ bi demee ba jàll ba gisatu ca dara lu mën a defar mu mujj bu andeetee ay bayit xaadir ko naa indi ma mokkal ko indil ma ko ma mokkal ko waaye gis ma ci lu may defar waaye nag noonu la nekkee woon ak moom waaye nee nañ jàngul ci moom sax ab téere bu mat sëkk nag naka noonu foofu ca njaañ am na benn borom xam-xam bu bokk ci waa Mauritanie bu fa nekkoon ñu di ko wax Mouhamad ibnu Mouhamad al Karim ci waa euh, Bani Dayman la bokkoon ci Bani Dayman la bokkoon euh, sëriñ bi daana fa dem di jël ci moom lenn xam-xamu bayaan ak mantiq bi bàyyam demee ba xam ak rawam ak wu ci mu njàng ak jàngale nag la ko féetale njàng ni Isaa daana ko jàngal yii Yisaa bindut ñen nat ci dong yi ñi ñëwagul sax sëñ bi dana euh, bàyyam dana ko jàngal yéen bu ko ñëwee mu jàngal ko ko ngir doyloo gum ko doyloo mu doon ko am fasaaxa am ko doon ko leer aw làmmiñ ci am njàngale moo tax daanaka ña ëppoon ci donga yi daan jàng dañoo mujj fàq jëm ci moom di jàng ci moom ci seen coobare bopp sëriñ bi di way juram it euh, d'accordal leen loolu yi ci diir boobu ci la sëñ bi wooyee laxdariyu ci fiqub malik tudde ko aljawharu natis ci diir boobu ci la sëñ bi wooyee téere bu ñuy wax ummul barahin ci tawxid te imam Sanusi taalifan ko sëñ bi mu ko wooyee mi ngi ko tudde mawaahibul quddus naka noonu jamono boobu la woy e, ab téere ci ay jikko aki i teggin imaamu dalxaaj yi ko sëriñ bi wooyu ko tudde ko naxju xadaayil xaaj yi kooku dafa boole woy ak wesal yi yëpp naka noonu diir boobu ci la woyee masalikul jinaan masalikul jinaan nag dajale na ci lu bare bari ndax xaatimatu tasawuf nga ci biir bu yadaali azhabul ibris ma nga ca biir junnatul murid ma nga ca biir Cheikh Sidi Muxtaar Kunti jële na ci ihya ulumuddin ak xikam ibn ataillah yëpp nii dajale na ko mi ngi ci biir masalikul jinaan ci jamono yooyu ci la sëriñ bi talif yeneen téere lu mel ni tasawudu sixaar ak jasbatu sixaar ak tasawudu subbaan ak mulayinu sudur bu ëllëgee kon danañu wax ci ñawub xelub sëriñ bi kon fan yi noo ngi toll woon ci waxtaane njàngum sëriñ bi fi jaar ci ak tuut tànkam am njàngam alxuraan njàngum xam-xamam ak lim jot taarif ci ay téere tey ji jóg ngir leeral ñawuk xelum sëriñ bi ndax xel day mbir moo xam ne sunu borom daf ko tagg ci alquran te it dara mënta taxaw ci mbiri àdduna ak mbiri àllaaxira te am xel lalu ko xel mu rafet lalu ko sëriñ Bachir mi ngi wax ci minal baax xadim di leeral xel ni xel ak leer la leerul sunu borom la boo xam ni daf koy bind lay doon ci nit ki xel dana dolli ci bari loo koy jëfandikoo dana dolli ci bari ay nattu ay jaar-jaar xel mu demee noonu mu ne ñu ngi koy tuddee xel mu ñu fàggu xel mi nga xam ni jaar-jaar yu bari moo ko tax a àgg fa mu àgg lu mel ni mag moo am téeméeri nga xam ne lu bari ci li muy xam daf koo dund xel moom la ñuy tuddee xel muñ fàggu waaye noonu it la xel di yaatoo lool ci lenn ci nit ñi am na nit ñoo xam ne dañuy juddwaale rek xel mu rëy ci seenu ngone amul dégg gu gaaw amul ñaw muy non la amé won ci ibnu ibnu Zubair ibnu Zubair, dafa teel a ñaw lool teel am amum xel omar ibn khattab mu rombu len ben bes mu andak ak ay goné bo mi ngi muram ay di fah. ñepp daw biñ seenee omar ñepp dañu daw bam mu des abdullah ibnu Zubair mu taxaw moom omar tayé ko ne ko lutax daw dawoo ak sa moroom yi mu ne ko yow kilifa ak julisi nekkuma ci sikk ba tax ma di la ragal teyit yoon wi xatut ba tax ma war laa yaatal mu ne nag maanaam xoolal tontu bu gàtt bii te jub tarafet rafet nan la mën a génnee ci xelum xale boo xam ni weesoogul focc ay mbedd yàlla ni ma waxe woon léegi dafa tagg xel ci béréb yu bari ci alquran am na aaya bu mu wax ne wa maa yaqiluha illa al aalimuun am na beneen bu mu wax ne ayaatun li qawmin yaqiluun ay kiimaan la waaye ña ko moom it mooy ñi xellu am na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax abu darda ni ko yow abu darda dollikul am xel kon da nga dolli ko ak jegeñ yàlla abu darda ni ko jote naa la sama ndey ak sama baay anaf mooy jële am xel nee na yonente bi ni ko del mooy tuyo araam yi tey jooxe say farata faratay suñu borom dee ko jooxe tey moytu yi mu araamal ci yow boo ko defee danga doon ko xellu te loo man ci jëf yu baax loo man ci naafil la ci jëf yu baax yi nga di ko def bu boobaa da nga ko ci àdduna am xel danga nga dolli ko ak jegeñ sunu borom da nga dolli ko teraanga ci yàlla it borom xam-xam yi daal wax ni ki xellu mooy ki sàkkoo xam ndigali yàlla yi ak i tereem loolu am na borom xam yoo xam ne nañ xel mooy di luññutu bëgg-bëgg yàlla ak i tereem di luññutu it la muy tere di luññutu la muy digle di ko jéem a def di lu luññutu la muy tere di ko jéem a moytu sëriñ Bachir wax nañ xam-xami xel yi benn muy xam-xamu diine wala muy xam-xamu àdduna te xelit mënta ja mënta jëlandoo ñaari mbir yépp ñu am képp ci moom fokk dana am bu lëng nit ki mën mënuta yeewu ci àdduna jar ba noppi yeewu ci diine jar ñaari yépp wala boog bu mënee amit mënuñoo yem fokk dina am bu lëng te ki xel lu dëgg mooy ki ràññee ñaar yum doon mu xarañee ca lëgën ak lañ gën ki xel lu dëgg it mooy ki nga xam ni jamono bu ne bu xamee li gën daf koy xeemeem jéng jëm te lay dëgg mooy li suñu borom wax ne wal axiratu xayrun wa abqa ne alaxira mooy liggante moo gën a des kon ki xellu mooy ki tànn ëllëg ci tey tànn alaxira ci àdduna te lu ëpp li ñuy gis ci nit ñi lu ëpp ci li ñuy gis mooy nit ki nu mu muusee ci li muy sàkku rek dana ko dofe ci safaan ba nu mu yeewoo ci wàllu àdduna ci misaal mën na koo dofe ci wàllu yàlla waaye nu mu yeewoo ci wàllu yàlla it mën naa doon ku gàtt xel ci wàllu àdduna moo tax yonente bi wax ci xadis ni inna akthara ahlil jannati al bul di ko firee ni ay fii umari dunia daa wax ni ñi ëpp ci waa aljanna mooy way gàtt xel yi ñu ne ko mooy ñan ñu ni borom xam-xam ñu ne mooy ñi gàtt xel ci mbiri àdduna noonu la ko imaam Xasaali fire waaye nag ki tànn ëllëg alaxira mii des nga gënal ko ci àdduna mii di jeex amuk cawarte ci rëbb lu lay may ëllëg ak dajale jumtukaay yu lay may ëllëg ñàkk néew doole ngirug dese aku gàtt xel ci yëngutu ci fàggu àdduna kooke de mooy ki am xel ci boroom xam-xami alaxira yi xulamaul axirati day kañ jàppee boroomum xel mooy ki nga xam ni itteem jëpp ak yëngutoom yëpp ak xalaatam yëpp def koo jëme ci lu koy may ëllëg ba noppi nag mel ni ku xaw a dof sax ci lu ko may adduna sëriñ Bachir ne lii nag kon ci la xamee gudd xelum sëriñ bi ndax ak dëddoom àdduna akuk dooye dalam àdduna ci ak ngo ak ndawam akuk mageem liñ xam ci moom naka jekk ca ba mu doonee tut tànk ba ni mu fi jógee mooy ak dëddu àdduna liñ xam ci moom te loolu dana leer ci histoire am ci kanam waaye fan loolu musibay àdduna ya ko ciy jot ak xeeti balaay sëriñ bi depuis mu xàmmee ndijooram ak càmmoñ bi mu xàmmee ndijooram ak càmmoñ suñu xam ci moom benn rëcc rëcc mësu ñoo gis mu tooñ kenn ba ci way juram mu góor ak way juram wu jigéen mësu ñoo gis mu tooñ ci kenn sëriñ Bachir na dégg naa ni naka jëkk daf daan beru daanaka du siggi xool nit ay sëngeem sëgg fu mu toll naka jekk mësuñoo gis muy jàmbat mbaa ñu teg ko dara mu wonk lépp luñ ko def loo day dem sax ca loola ñu koy defloo wéy ca mësta xëccoo ak kilifa bokk na ci liy tegtale xelam mu rafet ba tey moom sëriñ bi des gum des ci bind ba ko suñ borom bindoon bind bu sell bind bu sell nag mooy nit ki bu juddoo xol bu set wecc wecc wecc la judduwaat bañante ak noonoo ak wujje loolu lépp gannaaw bu xelum nit ki màggee day ñëw waaye nit ki ci ak ngoneem lépp xol bi day set wecc làpp mooy tax ñaar da gis ñaari gone ñu ànd di fo ñaayoo xeex waaye balaa ngoon ñu fàtte ko àndaat bind boobu suñu borom binde woon sëriñ bi ci ak ngoneem nag daf koo sàmm daf koo sàmm bu dee fii moom la ñuy wax ak naalee muy lu doon rek nga jàpp la nga ca gis te doo jàpp dara di continuer dara luy nuru ak noonu doo ko garder ci sa xol ku tooñ ba jikko yaa jikko doomu aadama feeñu la ba nga mer bu tubee nga daal di koy jégal fàtte ko bokk na ci ñëw ak xeluk sëriñ bi bëgg gum bëgg xam-xam naka jekk am ci cofeel lool ak doon ku gaaw a dégg ku gaawoon a am ku gaaw a dégg la yomb am njàngam lool am njàngam dafa yomb lool wax na ni mësta dugg mukk ci jàng ab téere ànd ko kenn ci waa jàngukaay bi te du dana wax mokkal bindam boobee wëlbatiku di leen ko dégtal ñoom nattango yam daan jàngandool mu wax ni Maamor Anta Sali dafa doon ko gaaw am jàngale ba noppi bañoon laaj yu bari ginnaaw boo toppaatee yoon wu jëkk wi di laaj laajee daf ko gënalu toon sëriñ bi doon ko amoon kersa ci moom wet ko lu ci ëpp dafa daan toppaat ab dersam wéet fële di ko toppaat di ko fexee dégg yàlla di ko ubbi mu di ci amuk dégg bu ko suñ borom ubbee ba mu dégg ko daal di delsi ngir leeral ñu mu doon jàngalool mu digtal leen ko te booba jàngukaay boobu ci jàngukaay yi ëpp ay nit ci réew mi la bokk bokk ci yi ci gën a siiw it mu doon ku xër ci xam-xam xër gi mu xëroon ci xam-xam it xel mu rafet lay tekki sëriñ Bachir nee na dégg naa sëriñ bi muy wax ni jàngukaay bi de amu ci kenn ku doon rawanteeg man ci xër ci xam-xam ak sàkk ko ku dul benn waay bu bokk ci waa Lappé ñu di ko wax Balla Maam Touré Balla Maam Touré di amoon na itte lool ci sàkku xam-xam ni ma ko amee waaye la ma ko ëppale woon mooy ak sàmmoonte dama ko gënoon a tar ci wàllu sàmmoonte te lool yi daana ma ci roy sëñ Bachir ni lii mu ma nettali xamee ngëneel boobu bi mu wax ni moom la ko raawe woon nettali gën ko nettali danoo jubloo laabiire ci ñu xam ne xam-xam ak leer la leer suñu borom nag sàmmoonte mu mënu ci ñàkk am na benn woykat bu wax ni شكوت إلى وكيع سوء فهمي فأرشدني إلى ترك المعاصي وعندما جامبت برم خامم بني وكيع سما داو ديغ مو مو ون ما موني ما da باي موي mooy da باي fexe bay moytu mooy وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي مو مني خم خم اك لير لا تني لير يالا كان دوكو جوخ موي موي كات بوك سي جيني سيري خلام مو رافال موم نكا جيك ييب مسا جيفانديكو لودول حكمه حكمه نك مبير مو نك nga tek ko fam deuk ci bamuy don gone ba lu ne rek xikma la cay jëfe mooy ci jaamu yàlla yi ak ci aada yi li dul xikma mooy fab mbir dëkkale ko fa mu dëkkut bu fekkee li nga bëgg mën nga ko am ci jàmm boo ko wutee ci aw ay jëfandikoo xikma nit ki lu mën a am ci ak yomb bu ko wutee ci ak jafe jëfandikoowul xikma nit ki yoon wi mën a jaar mu gàtt mu am dara bu fekkee dafa wëri fu sori doo caa a jot ba tey jëfandikoo wëri xekk ma sëriñ bi naka jekk biñ ko xamee ci ak tuut tànkam ba ñu ko mujjee gis lu muy def rek ci xekk ma la koy def mooy ak xari ko tax lu benn borom xam-xam buy wax ni bokk na ci njuumte yi gën a mage ci jamono bii nu toll du aad yi te muy ñiy woote yàlla dañuy jaxase ñaari mbir yu bokkul mooy jikkoy daaya ak jikkoy jihaad jikkoy daawa ak jikkoy jihaad jihaad la suñu borom wax yonente bi ni ko yaa ayuha nabiu jaahidil kuffaara waxluz alayhim xilsa te mooy teeng ak teeng ci jihaad lañ ko war jëfandikoo waaye bu fekkee da ngay def daawa te mooy woo nit ñi ci yàlla ci uh, yoonu laabiire ba noppi bëgg a jëfandikoo teen googu li ngay yàq mooy ëpp la defar te daawa la ci suñu borom wax ci alquran mooy udduu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati alxasana mooy booy woote wooteel jëm ci sa yoonu borom ci xikma mooy ak xariñ ak waaraate waaye bul jëfandikoo ak tar kon bokk na ci rafetu xelum sëriñ bi naka jekk ci xikma la daan dox te mooy lum doon mu seet la fa yell mu jëfandikoo ko fa mu doon ko amuk jàpp daanaka du fàtte dara lum jàpp ci am xelam moo xam xam-xam la wala ab xibaar buñ ko jox la yi saa daanañu waxtaane mbir moo xam ni yi saa daana mbir moo xam ni ba muy xew nun ñëpp fekke nañ ko wala mbooloo fekke nañu ko mbooloo mudul nun fekke ko te kenn du ca fàttalikoo dara walla ku koy fàttaliku yi tuuti nga ca fàttaliku te moom bu koy wax du ca bàyyi dara te bàyyi dara la ca sew ak la ca dijj lépp lay leer naka noonu noonu la mu ak mokkalam xam-xam noonu la demoon mësta mokkal ab téere fàtte ko moom sëriñ bi sëriñ Bachir mi ngi wax ni am na benn bis ma toog ak moom ñu yor téere bu ñuy wax at tashir wayu wayu at tashir wayu ñu way at tashir te ibnu bu na def ko mu ànd ak saraab ak lépp ak shawahid yi nee na sëriñ bi ne téere bi dama ko mokkatoon jamono ba may jàng mook sawaahid yi waaye fan yi damaa toogaatoon di seet ba xam mokkalees naa koom déet ndax fàtte naa koom déet waaye bi ma ko seetee ma fekk mu mel ne ko ma fekk mu mel na ma ko mokkale woon sëriñ Bachir li ci yéeme ni mooy li ci gën a yéemu mooy jamono boobu mu may wax lii Boba mi ngi toll ci digg mbolo mu bari muy raj raji jamono bi jamono bu ne mbooloo maa ngi raj lo mbolo mu bokku idi di sàkku si ak ñaan ñi doon ñuy sàkkoo joxe seen bopp ngir tarbiyawu ñii di ay borom xam-xam yu fi jaar ngir segg ko ñii di ñoo xam ne nit yàlla lañ yu ñëw ngir sàkku ci barke ñii doon niti àdduna yoo xam dañuy ñëw ngir sàkku ci ak cofeelam ba noppi moo am jotul nag toog di settantal naxwu ba mokkaloon ci jamono yam daan jàng mu ne loolu li ma gën a yéem ci ay mbiram la bokk sëñ Bachir neen dégg naa ci sama mag sëriñ Modou Moustapha ak sama baay sëriñ Massamba ñu wax ni sëriñ bi nee na leen dafa mokkaloon lu bari ci yax yi ay yax yi téere yu bari ay fànn yu bari yu bokk tawxiid ak tasawuf ak ay ñaan ak fiq lu mel ni xikam ibni afaillah ak dalailul xayraat ak nafa tayib ak risaala ak taarifi sanosi yu yëpp daf ko mokkaloon mu wax ne xalil yi xalil muxtasarul xalil yi lu ci bari daana ci waxtaan di ci jàng ay jumla yu bari yu bokkut ci béréb yu bari yu wuute yoo xam ni daal ku ko mokkalut waroo koo mën a waxee noonu ba tey loolu niiw leen mokkal naa ko de waaye mu ne nii ma gisee mu daan ko waxee ci xalil de ku ko mokkalut mënoo ko kiimaan la ci ak mokkal moom sëriñ bi alxuraan ak xadis nag moom mooy mooy ndab li ñu ko denc moom mooy seen ndab moom ci nu mu ko xereñ ak tafsir ko xeeti xam-xam yu bari yu bokkul la ci andi di ko dégtal ñi nga xam ni ñoom la toogal li ko déglu bokk na ci matuk xelam ba tey bari mbooloom nit ñi fa ñi daan ñëw ci moom diggante bóor yi ni ma waxoon léegi bóor yi ak boroom xam-xam yi ñi ay awliya ule ñi ay murit la ñi di ziyaare si ñi doon néew doole ñi doon ay miskin yoo xam dañuy sàkku si ndimbal ak coow lu bari ak raj raj loolu booxu booxu loog nit ñi ci mbooloo mu wuute ay mbir ak i aajo ak i melokaan ñëpp taxaw ci bunt bi guddeeg bëccëg ñu ngi fi jamonoy sedd ak jamonoy cooro na ci am ak ittewoo gum ittewoo waxtu yi juróom jamono bu ne moo koy jiite ci jàkka ja te yam àndal yëpp da ko saxalaale ak mbind mu téppale mu daan bind ca tagg ak julli ci yontam ak tawxid Isaa daana nu génneel mbind ci weer wi nit li ci weer la ko bind bu dee ci weer wi laa ko bind dañ daan wax ne lii fukki nit yu seen xalima fenniwul sax waruñu ko war a mën a bind waaye ànd ak loolu lépp nag benn aajo du lënt ca ba des du jaxasoo ba des amul menn mbir mu muy joxe rendez-vous faussé ko dara du jaxasoo dara moo tax wax ji abul nuwaas waxoon ni laysa ala allahi bi mustankarin an yajmaa al aalama fi waaxidi kenn wërta fakk ci mbirum yàlla mu fab monde bépp dajale ko ci kenn fab monde bi dajale ko ci kenn nit mu ni wax ji ma waxoon ni ci ni dëggoo ci sëriñ bi dëggoowu ko ci kenn ginnaaw yonent bi ak saxaaba yi ginnaaw yonente ak saxaaba yi li mu dëggoo ci sëriñ bi gisuñ ku mu ko ko dëggoo ci moom mu jeex tàkk ci yàlla des ànd ak nit ñi mbooleem ñi ñu ko waroon a gàllankoor mbaa yi aju woon ci moom yépp da leen a dagg jafandu ci boroomam yëgatul lori noon yi xéemeematul it njariñi soppe yi ak ñu lor ja tollu ak ñu njariñ la mën a toll jafandu ci boromam ak wéttali ko boromam kon bu ñuy xool manees na ni mooy ki sut nit ñi ci am xel ngir dëggal gum dëggal bi ndigali borom ñu wax ci xasida yéen zaka u xaqlil mustafa anaara qalba muridillahi fastanaara wax ñaw xelum yonente bi moo leeral xolub képp ku bëgg yàlla ba leer amna fo xamne mom ne bi moo fa waxal boppam ne daka wa xaq li lii yuniirul waxya am na feneen fu waxit ni zaka wa xaq sara misl al waxyi sama ñaw xel mu jëna melni ak wax la sëriñ bi doon jëmm ju jàmbaare doon ko tabe mom sëriñ bi radiyallahu anhu dafa doon jambar waaye ci biir njàmbaare gépp nag mu sori lool ak rëy rëylu doon ko toroxlu waaye toroxlu gi it mu doon ku sori ak doyadi ak toroxtaane toroxlu ak torox bokkuñ sëriñ bi xamul tiitaange xamul fër-fër waaye ak tab rek jëmmi ak tab dañuy wax ni dafay firndeel ak njàmbaare xol bu rëy ba yéemoo joxe dara dafay ferndeel ak njàmbaar sëriñ bi doon ko tabe ku rëy ab xol doon ko amuk lewet te mën muñ waaye ci biir loolu lépp nag mu doon ko am respect am ak xëyba te muy raglu waaye raglu ak respect boo xam ni ak teey ak ku jéggale ku bale moo nekk ci ron moo nekk ci suufam mbir mu maa doon ya ca kawe la bëggoon waaye ku siboon mbir yu suufe yi la dafa bañoon yu suufe yi te tànn lool mbir yu kawe naqar yépp daf ko yanu te du wonk dara lu mu tartar bu ko wóoree ne bu ko bëttee am yamuy mébét am ca taxe aduna ak alaxira am ca ngërëmul suñu borom dana bëtt tarsat yooyu moo tax sëriñ Abdul Ahad radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi am na genn màggal muy leeral sababu tukki sëriñ bi ci géej gi ba muy leeral sababu tukki bi wax na ca ne fii ci jumaa ji jàkk ji sëriñ Mbàkke Madina defar booba sëriñ Mbàkke Madina ngi toll ci di ko defar te yeggagul danañ ko wax ca kanam buy agsee ci sababu tuxuk sëñ bi Tuubaa di dem Mbàkke Bari waaye li ma jubloo leeral fii rek mooy li sëriñ Bachir wax ni lu dara tartar bu fekkee wóor na ko ne ak texee nga ci ginnaawam rek tartar ba mën na ko bët foofa sëriñ Abdul Ahad ba mu waxee dafa wax ni yonante bi daf ko wax ni ko ñii ma àndal léeg ci mën a boole ay nattu la daan doon ak i tartar yoo xam ni nit daana dem ba toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo laaj ko lu mu bëgg du bëgg lu dul lii nga bëgg waaye bu demee ba ci biir du ko mën a dékku te boobaa dina fa dox yàqu la faw te yow da ngay sama waaye bopp yoo xam ne bëggalu ma la loolu waaye sëriñ bi ni ko ruu gi de laa xamut lu mu àttan waaye lépp lu sama ruu àttan sama jom àttan na ko kon foofu la nekkoon ci ak njàmbaare moom sëriñ bi yu baree baree bare la yenu di jànkoonteeg ay njàqare yu rëy waaye lépp nag mu ànd ak lewet ak ug dal benn yoon jeexiti tartar du feeñ ci jëmmam jeexiti njàqare du feeñ ci jëmmam mérite mënu ko yóbbaale dafa mel ni xamutoon lu ab coono di teg am noflaayam ni nga ko def ci am texe sunu borom am li bëgg loolu mooy am na fulaay bànnee dafa mel ni dafa nekkoon ci jëf ju tëppal jëf ju sax dàkk ci biir ak bitti nag doon ko tabe bu xéewal amee waaye doon ab muñkat ci bu tartal amee moo tax ci biir tombam daana ci wax ne bu ngeen xëyatee ngeen jiital jaamu yàlla teg ci nangoo liggéey def seen naqar muy seen bànneex def seen coono muy seenum noflaay wettalikoo topp ndigal yàlla yi te bañ a wettalikoo jëm na ngeen di def ndigal yàlla yi muy ab sëriñ te bañ a jàppe aw sant muy ab sëriñ daana wax ne ku bëgg a texe fii ci àdduna day nangoo liggéey ku bëgg a tedd fii ci àdduna da ngay liggéey ku bëgg a texe ëllëg da ngay nangoo jàmm yàlla waaye li mooy noonu nii muy waxe noonu la meloon ni mu waxee noonu la meloo mu doon jëmm ju bari kersa ba daana àgg ci sax di dox ci biir kees gi ba seen nit kuy luubal mu bañ koo gàcceel tax mu randu dëpp ba ko luubal la muy luubal ba noppi war gi mu war ci moom mu defar leen jubbanti leen digle lu baax di tere lu bon dana tax mu dajale mbooloo dajale waale ca waa joojee doon def lënt moom yi waaraate ca fànnuk loolee kooka doon def ba waaja bu amee am xel dana xam ni wax ji moo ko moom waaye nag loolu yar bi diine jàngale mooy yar bi alxuraan jàngale danañ koy nettali ci histoire di wax ne xaatib ibnu abi baltaan bi yonente bi waajee ngir fatxu ji màkk dafa bind bataaxel waa màkk ni leen yonente baa ngi waaj ñëw waaye yàlla mi dara tawut dara ump ko xibaar ab yonenteem ni ko wàccaay wi ngay waaj am na ku bind secret bi ba mu ngi koy waxe yonente bi yebal ay ndaw ci bitti dëkk ba ñu leen am na jigéen ju fay jaar bataaxel ba mu yor na ngeen ko nangu indil ma ko jigéen ja ba mu ñëwee ñu ne ko indi bataaxal bi nga yor mu ni leen yoruma ab bataaxal ñu ne ko yonente bi ko wax te du fen boo génnewul bataaxal bi dañu lay futti mu làmbu ron musóor gi génn ci bataaxal bi jox leen ba ñëwee bañ ko jàngee yonente bi woolu xaatib ibnu abi baltaxa ba mu ñëw mbooloo mépp teew ñu jàng bataaxal bi dañ jàngi bataaxal bi yonente bi ne ko lu tax nga def lii mu ne ko buma yakamti buma gawto ma gaawtoo ndax dumab yéefar dumab naafeq waaye dama fa am ak njaboot te awma kenn kuma len aral ma bëgg seral xolu ñooñ rek ci bind len bataxel bi ngir ñu aral ma sama njaboot foofa amru ibnu Xataab dafa jóg ni yonent bi bàyyil ma ndax ki am nafiq la waaye yonent ko de ndax kii ci ahlu badr la bok mën a nafiq waye alquran ba muy wàcc wàccewul aya rek yàlla wàccewul ab aaya ni yow xaatib ibnu abi baltaxa nangam nangam déedéet dafa wax ci adressé ko jullit yëpp yaa ayuha alladina amanu la wax laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم آية بمين يفوحني نجم bu leen jàppati ñi nga xam ne samay noon lañ di seeni noon ngeen féetee ak ñoom ndax li ngeen am ci dëgg ñoom dañ ko weddi waaye dama jublu wax foofu rek mooy dégg gu sëriñ bi dégg alxuraan ak tënk gum tënku woon ci ay njànge njàngalee alxuraan nga xam ne ba ci ki defum lënt buy wax ak moom du jàggeen daf koy woo dal ci kawam waaye daf koy booleek mbooloo wax leen jàjj leen ci lu jëm ci fànn googu loolu mooy jàngaleenu alxuraan ku ne war na koo jàng teggi yooyu muy booy wax nga wax ak jubbanti adressé ko mbooloo mépp boo koy see ka jubati ca fànn googee mooy seggal boppam ba jubbanti jubbantikul boppam waaye nit kenn du ko gàcce sëriñ bi noonu la kersaam toll woon aku déggam njàngilem alxuraan mu daan wattu deri nit ñi moom sëriñ bi mooy moytandiku lool jëw ak rambaaj àggoon na ci foo xam ni nit ñi mu wut a taxaw di ko wax benn baat ci kenn ba ci li ñuy wax ni dagan na ci ab jëw sax bokkul ci jëw bu araam sax mooy waxtaan ak sa mbokk ci jëmm joo joo xam ne da ngeen da ngeen seq dara nga di ko ca leeral loo xam ne jubluwoo ko ayibal jubluwoo yàq ab daram jubluwoo ko manquil waaye da koy dugal ci cadre labiré loolu yi ci dagan sax muy mbokk moo seqal ndax nit bu ñëwee sàkku ci yow ni dama bëgg jaxasoog nit ci liggéey sàngam ak sàngam te fekk muy ab société bu war a dugg diine dafa maye société boobee la nga ca xam la nga xam ca kilifa ak société ba bu dee ko naqari deret la bu dee ko gaaw dàqe la bu dee koo xam ne ab warkat la loolee nga ko ci wax ngir laa biir sa mbokk mi dina moo la ko sant naka noonu jigéen ji ñëw ni da diw dafa muy bëgg ak diw la nga xam ca diw moomee nga leeral ko ko benn nga ne ko kii dafa naqar deret kee ab dumaakat la kee yorul ñaar dërëm wax gooy nga koy wax diine daf la koo may ngir laa biir sa mbokk jurit mi waaye dañoo wax ni lii nuru ab jëw te diine mayee ko sax sëriñ bi daw ko jege tal moo tax lu bari ci ay waxam sax daan réyal mbirum jëw ak mbirum rambaaj di ko moytandiku nit ñi lool ci ay waxtaanam ak i xutbaam ak i bataaxelam ak i ndénkaanam sëriñ Bachir nee na dégg naa ko muy wax ni deri yonente yi ak waliyu yi ak borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam dañ ko posone seeni der dañ ko posone wax ci ñoom lu ñaaw moog naan posen buy rey ñooyam wala iyaasu billah dana bari na loolu lu mu daan wax xadis bi yonente bi da wax ne al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi bari na lu mu daan faral di bamtu ba xadis boobu lool jullit mooy ki nga xam ne jullit yi mucc nañu ci aw làmmiñam mucc ci ab loxo ak xadis bi yonente bi di wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla ak bis penc nañu waxu yiw tey noppi loolu xadis boobu bari na lu mu ko nett lool moom sëñ bi bari na loolu lu mu ko daan wax buy wax ak nit ba yëg ci maanaam wax ji luy junj jëm ci ab jëw sax wala rambaaj dafay daal di jàjjee ca saase jàjjee ci mbirum jëw ba bu fekkee da bëggoon jëw kooku doo jàll mu doonoon jëmm ju tabe am dara lu rëy ci lu mu rëy joxe lu mu doon rek la ko xelam di puus xolam puus ko te mooy joxe ko mu daan dépensé ci jàpp jàppandi mu yomb ci moom lool Euh, mu daan def iisaar te mooy soxla dara lool ba noppi yëkkati ko jox ko nit loolu ba tey bindam la woon waaye yooyu yëpp nag daanaka buñ demee bay jàngat mbirum sëriñ bi dinañ ci jàngate ni li usul di jàngale muy al jasaaw min jinsil amal euh, sunu boroom buy fay day seet qualité ba nga liggéeyee woon mu fay la xeet woowa waaye niko yàlla faye mbolo mo xam ni lu am lu rafet rek mom lañ ko yéné lolu daf ko liggéeyoon lolu mo doon jikko jamono bu ne da ran def iitaar ta moy lim gëna bëgg mo di ko fab di ko joxe buy def lu baax di ci am mbégte ak tabit ak tabit bu koy joxe du jox nit dara melni kuko mere di ko ni ko xëru xëtu sànni waaye day bég ci bu koy joxe ابن المعلى من كتجني إذا اهتز للمعروف وارتاح للندى وأعطى عطاء السمح غير المؤنب ولا غير المؤنب فدعني من معن وكعب وحاتم ومن هرم دعني وآل المخلب ونسابو بوري جمسي أويو بامو جوك جمسي أكتب بامو ci bu ma tuddal Timaan bu ma tuddal Kaab bu ma tuddal Xaatim bu ma tuddal bu ma tuddal al-Muhajir du seen moom sëñ moo àlla moo ko tagg ci tab guré googu mu doon dund moom sëñ bi sëñ bi yamukaayu tabe ci la àggoon ndax bokk nañ ci ak tabeem métier daf ko joxoon way juróom métier bi nag mooy amul li mu war a liggéey di ca fayu waroon caa am teraangay boppam lépp daf ko bu wéere ko ci baayam nekk ci agronome di ko liggéeyal bëggul dara boobu amul dara te teewul mu fab dooleem jox ko baayam ba mu defee lu ba tey nag moo tax mënatu ta nay ci dara lu nit di sàkku mbaa nga di ko laaj rek yées na loolee mu jox ma moo tax day woyof moom tooy moo tax ba mu fabee méccam boppam ak doole boppam jox ko baayam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 loo yor te àttanoo ko jox ngir yàlla boo doon wër àdduna ba mu dajit doo gis ku la ko àttana jox ngir yàlla ku bëgg a doonu buur da ngay nangoo doon dag kon bëgg a doonu sëriñ da ngay nangoo doonu taalibe boo ko masaan wax nag day wax ni lii ma leen wax nag bi ma leen ko daat na wax dama cee jaar ba jàll daf ko dund ba jàll dul ko wax moo tax lépp loo fi gis suñu borom defal ko ko xolam la ko yàlla fay ni mu bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi nit aggu ko ci wax waaye yàlla def koo fay xolam fab xol yi ñu bëgg ko ngir cofeel gu mu amul ci yonente bi lum masa am mën na koo joxe fu mu masa dégg nit ku baax mën naa yëkkati àllam yónnee ko ko loolu moo waral yooyee moo doon aw jiwu wuy sax lu mën a doon rek ñu yéene koo fab indil kooku moom itam fu mu mas a dégg nit ku nituk wilaaya mbaa ku ñuy wax ni boroom xam-xam la buy jëfe xam-xamam dana fab ay hadiyaam yéene ko ko moom sëriñ bi mu doon jëm mujj sàmmoonte ci digganteem ak boroomam sàmmoonte digganteem ak jaami yàlla yi ndax sàmmoonte gi digganteem ak boroomam mooy waxtu julli bu jotaa du nangu kenn defal ko ci dara sëriñ Bachir mi ngi wax ni waxtu julli bu jotaa ñi daan liggéey la ñuy liggéey bu dee lu demee ni aw sàkket te ka cay nekk di di wéy ci liggéey bi sax mooy ku xamul programme bi maanaam doon ko yees ci mbir mi waaye lu fa lu fa jëmm joojee liggéey ci diir bii nga xam ne mooy diir waxtu julli bi dañuy tëri lépp ba set ñu defaraat ko bu dee biir weeru koor ku wóor du la ci nangoo jëf jëfloo dara du la ci nangoo defloo dara bu dee sàmmoonte digganteem ak doomu aadama yi mu wax ne am na benn waaye bu mas a ñëw jaamub jàmbur bu mas daw ba ñëw rek dugg sërxalu ci biir donga yi tarbiyaw am fa ay fan boroom topp si ko bi mu ko topp see sëriñ bi laaj woo jëriñ bi mu ñëw mu laaj ko ni ko kii muy laaj ndax dafay nekk mu ni ko waaw euh, sëriñ bi dafa wax ni nañ xayma lépp lu mu fi liggéeyoon diir bi mu fi nekkee jox ko boroom te wax ko mu dem te lu mel nii bu leen nangooti muy dugg ci biir liggéey ak sàmmoonte la boo xam ne digganteem ak suñu borom la tabaraka wa waaye ak sàmmoonte la it digganteem ak mbindeef yi loolu it ab bind la boo xam ne dañ ko war a jàng waaw léegi kon loolu mooy li aju ci xelum sëriñ bi leeru xeluk sëriñ bi loolu rek ngir xam leen ni am xel dañuy wax ni buñ ko doon jaay dina lamu ndax ku ne la ci suñu boroom jox doy na la waaye nag xel ma gën a rafet ci xel yi gën ci xel yi mooy xel moo xam ni daf laa bëgg loo bëgg-bëggu yàlla bañ loola la yàlla di bañ nga fab sa xalaat bépp ak sa ite jëpp ak sa bëgg-bëgg yépp jëme ko ci di luññatu ngërëmul suñu borom kon xel moom mooy xel mi gën a rafet ci xel yi waaye lijjanti àdduna ba am ko képp bu dee loolu la yéefar yi kenn demagu leen ci ndax suñu borom saxalal na leen xam mbirum àdduna yaamal mooy yaalamuna zahiran min alxayaati dunia waaye waxum xanil axirati hum xaafiloon kon jullit rawatina ab murit la mu war a gën a xëntewoo mooy ngërëmul yàlla yi seen muridu laa yuridu abada gayra rida arrahmani xaysu qasada bi sëriñ bi ñëwee noonu am xel jaar ci jàng alxuraan ak xam-xam ba xereñ ko ba yor njàngale mi ci ron baayam booba la tàmbuli di yër nag téere tasawuf yi mu mu ñor ko lool kon ab ak yëram téere tasawuf yi ak sóoboom kon ginnaaw bum yëree lu bari ci téere tasawuf yooyu xam lu lu bari ci xam-xami tasawuf bëggoon na maa def tamhiid ci tasawuf leeral ko waaye loolu dama ragal ni du ko jar ndax bu histoire bi jeexee incha allah ci ni mu yéenee dafe sunub liggéey muy jàngale ak tasaare xam-xam danañ def gëstu bu yaatu ci tasawuf ak wax tur yu fam bàyyi ko ak la tax ñu di leen tudde ay sofiyu ak xalaat yi ci nit ñi am ak na mu tàmbalee woon ak bi mu demee ba ci biir yi ci sosuwaat ak fi muy mujj ak lim indi ci àdduna bi ci ay wax yooyu yëpp incha allah dinañ ko defal gëstu boppam waaye sëriñ bi ak yërëm tasawuf ak sóoboom ngirum tasawuf moom lañuy jàngale ci bunt bi ginnaaw bum jàngee lu bari ci kër yi tasawuf yi dafa sóobu seenum ngir te teggin yañ daan doxe ak dëddu ga ñu dëddu woon àdduna mu yëg ko ci xolam di ko dund jamono boobu yi muy doog a yër téere tasawuf yi ak di ko tàmbulee sóobu nag ñaari mbir ko daan xëccoo ñaari mbir yi mooy benn bi mu ngi ci ron baayam yëg na ni topp wayjur suñu borom moo ko digle liggéeyal ko suñu borom moo ko digle te tasawuf boo ko yéree ba mu dugg sa xol nga war a dëddu àdduna di moytu jaxasooy àdduna yi war a beru ci àll ba war a wér di sikkat di jaamu yàlla guddeeg bëccëg suba ngoon loola mbirum boppam la moo xam ni ndax mënees na koo booleeg war-war yi la war ci sa waajur di ko liggéeyal foo toll kon ñaari mbir yooyu dafa mel ni ñaari eh, lëfee yu koy xëccoo kii di ko toogloo topp waajuram xalaat bee dikk di ko sóobuloo génn dem wéet di jaamu yàlla di dégg bëccëg suba ngoon kon mu ngi ci diggante muqimin muqaid lu lay toogloo ak lu lay la mooy ñaari point yi positif ak négatif lii ni fokk nga toog lii ni dee fokk nga dem te booba wàllug njàngale mi lu ci ëpp moo ko yor ab baayam ni mu yore woon daara ji ëpp ci daara yi daara ju réer di jàngale alxuraan xam-xam noonu la doone woon dajewukaayu buur yi ngir ko wéetul la ci jamonoom moom maam Mor ci wàllu jàngale ak àtte comme ni ñu ko waxee woon ci gannaaw waaye sëriñ bi bi ko ñaar yooyu xëccoo ab diir rek mu jiital sharia doo cee teg xaqiqa bi sharia mooy xam ni topp way juram daf ko war te suñ boroom moo koo ko teg mu fab topp googu jiital ko te sóob ko ci yéene ju rafet nag yéene ju rafet joo xam ni lam yéene ca lële muy beru di jaamu yàlla di jàng alxuraan di sikkat di julee ko war mën na koo am ci lii ci kaw yéene ju rafet moo tax mu far féete jiital fànn googi muy jóg fas yéene topp way juram togo li ko suñ borom teg gërëmloo ko nangu ko def ko yit moy ab occasion bo xamni man na ci amé ngërëmul yalla top way juram ba ñepp di ko waxtane don ko yéme ñepp di waxtane nim mu nangoo toppi bàyyam nit sopp ko lol bëggu ta mom waxtu ngir rafetuk jikko ak akuk am diineem akuk sàmmoonteem nga xam du laal dara luñ ko laal lawut du def dara luñ ko def lawut ak wéruk xam-xamam ak yaatuk xam-xamam ak rafet gum rafet num taxawe woon ci ay mbiram moom baayam moo taxoon daanaka mu bëgg ko ba mënta tagoo moom waaye lépp nag mu ànd ak mu mu mu wéy ci yoonam wujj boobu ànd ak waajuram bàyyam jox ko lu ëpp ci wax yu jàngale yi bataaxel yi ñu daan tontu it moom la ko féetale mu di ko tontu di tontu lettre yi lu ñu war a bind moo koy bind ba ak leer tàmbalee feeñ ci moom jamono boobu leeru sunu boroom tàmbalee feeñ ci moom mooy nit ñi tàmbali ko gendiku di ko xool nag weneen xoolin wu bokk nañ ko daan xoole bu jëkk xol yi jàng jëm ci moom xel yi wommatu jëm si ci moom daanaka taalibe yi sàkku xam-xamit ñëpp di walwal jëm si ci moom ci tànnal ko seen bopp gannaaw ñu daan jaar ci bàyyam mujj leen booleeg moom dañoo mujj nag moom ñoom ñoo ko mujj tànnal seen bopp léegi mujj di leer bu lii daan ñëw ak kàngam yi it mujj di sàkku di ko sàkku xam di sàkku ci moom liñ daan sàkku ci baayam waaye booba amul genn xememteef ci ñoom daanaka yi du nangoo e, jëse kenn ci ñoom ci lu dul ndigalul waajuram ndigalul Maam Mor Anta te bu ko ko digalee it dana ko def waaye ànd ak xol bu gàntu nag te loolu lu yé lu tum rank woon ci jamono te li gën a lu tum rank ci jamonoom la bokk ak ci suñ jamono ji sax kay ndax jamono bii nu toll yi daanaka ñay tuddoo ni ñoo fi nekkal diine la ñuy gën a xëntewoo di ko ndamoo mooy xaritoo guñ xaritoo nituk àdduna ka mbaa buuru buuru àdduna ba mbaa nangam nangam kon loolu lu tumuranke la ci jamono waaye ak jamono bi ñu toll ñu daan waxtaanee dëddu gim dëddu àdduna dëddu gim dëddu bóor yi ak sib gum leen sib ñenn ñi di wax ni dafa dof ñi ci des ni euh, xel mi gàtt rek waaye léegi moo ñëw ba bàyyi ko ci am xel xel xelam toll foofu dégg wax ni am xelam xel mu gàtt leer waaye nag diir bu gàtt mandarga yi wilaaya feeñ ci ñu am ci mom ak ragal ñu tay ko ñu gën ko respecté sax ci bàyyam gën ko respecté ci borom xam-xam yam jamonoon tees ak lamuy doon doon ko ne bo ñu wax ni sambalaw bi faal dafa ñew benn bis ci bàyyam boobu moo doon buuru kajoor di sàkku ci baayam mu yabalal ko ko mu ñëw këram di ko jàngaleel di ko jàngaleel ay gone ak it mu féete ko rek fi baayam féete woon na jaayam ñu Maamor Anta Sali nekke woon ak Lat Joor sàmbalaw bi moomu sàkku sëriñ bi nekkee kook moom ci këram bi ko bàyyam woo ba mu ñëw mu wax ko li buur bi wax sëñ bi ni ko waaw kon xam naa ba mu génn rek daal di génn ca bitti di ko fa xaar bi sàmbalee bu génnee sëriñ bi fekk mu doon jàpp ba mu noppee lalal ko ab tappi waaye ba mu ko lalee ñemewut a toog ca tappi ba dafa toog ci suuf sëriñ ne da gis nag ak ragal yàlla li mu def ci nit ma nga toogoon ak bàyyam ci kaw benn lal te bi mu ñëwee bi mu ko laalee tapin bi nanguwu ci ñemewu ca toog néewul bàyyam dafa ragalutoon yàlla waaye cërub suñ boroom ba muy sédd nit ki ëppante teguwul ci ëppanteeg at yi teguwul ci ëppanteeg daraje zahir yi kon nitu yàlla yi wàlli yi li leen suñu borom di may ci ak ragal yàlla poids bi mooy diis ba keneen mën naa amul ragal yàlla te poids bu diis diisaay bu àgg waaye noonu la sëriñ bi euh, bi sàmbalaw bi faal moom yi defee noonu daal wax ak moom ci nim ko bëgge sëriñ bi ni ko ñi ngay seen ñëpp dañu fee ñëw ngir sàkku si xam-xam te yàlla képp tax mënuma leen fee bàyyi di def leneen nee na foofu sàmbalaw bi may na ko fa aw fas daal di sàkku ci moom ñaan waaye sëriñ bi laaj fas wi lu mu mën a jar na am kooku ci fay ñetti téeméer ñetti téeméer ba mu ko jëlee séddale ko ñetti nit ñoo xam ni kenn ku ne ci ñoom yaa ngi daan topp sëriñ bi borub yaa ngi daan topp sàmba buur bi borub téeméer te ñu ma ko wax loolu doon lu yéeme lu leen yéem waaye noonu la wéyee ànd ak baayam di farlu ci ñàkk a baayam mësta beru ci menn mbir ak lu mu tuutul rek day bëgg mu bàyyi ko ci ndigalul lu fu ci baayam yam mu yam te lépp lu ko feeñu ci wàllu adduna it ci alal ak daraja ak teraanga ak tur wu ak personnalité lépp daf koy delloowaat ci liggéeyal baayam ngir jëmmi suñu borom kon loolu ba tey ab ah, dërs la bu mat a jàng ci histoire sëriñ bi muy fonk way jur ak topp ko noonu la àndeek moom ba ni woy juram toxoo dem ca yërmande yàlla ba ni maamoran seli wàcce ab liggéey ca Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor nag ab dëkk la boo xam ni Lat Joor ko ko daggaloon ba mu toxoo kër Amadou Yàlla dem sugeer boobee la dagg aw waar foofu mu tudd Mbàkke Kajoor mu jox ko Maamoor Anta Sali foofu nag ñaari at rek la fa am muy Mbàkke Kajoor kooku dal di faatu mu ngi faatu guddik talaata tolloog ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru muharram ci atum junni ak ñetti téeméer ci gàddaay sëñ Mat Lamin mi ngi nettali ni sëriñ dégg na ci sëriñ bi muy wax ni bi woy juram woowu tollee ci noppalu dafa toog fa tolloog bopp ba wàccee fa alxuraan ci bisu altine bi la wàccee kaamil bi altine ci ngoon ci guddi talaata gi mu daldi noppalu ñu yóbbu ko déqale te armée li déqale yooyu foofee dañu ko denc ba ñu koy yóbbu it sëriñ bi mi ngi ànd ak mbooloo mi ko doon yóbbu bokk ci ñi koy gunge di dox ak ñaari tànkam yiisaa dina am ku war ba jege ko sàkku ci moom ni ko te ngaa war waaye sëriñ bi day wax ni dox ak sama tànk moom ma gënal bañ demee ba ca barab ya sëriñ Tayba Muhammad Ndumbe Marsil moo ñëw jullee ko ba mu ko jullee bañ denc ko ba noppi sëriñ Tayba daal di jox ndigal mbooloo mi ñu daje ak déglu ak dal ñu daje te dal te déglu ñu defe ko ni mu ko waxe mu daldi di jóg daal di xutba daldi waaraate daal jaal sëriñ bi jaale ko ñépp dal di tuddu serigne bi ni ana ahmadu bamba serigne bi wuyu dal di jog bo ma nga ci ciatul mbolom mune ko jegeel serigne bi jage tuti ba man ko gis diko ko ba bu waxe mu man ko tontu ta du ka don ci kaw ba mu ko nee jegee mu ni ko la tax mu taxaw foofu mooy bañ a jéggat mbooloo mi ay teggin teggin yooyu it ba tey la mat a bàyyi xel bañ a jéggat mbooloo mi ba mu ko nee jegee mu ni ko maa ngi dégg li ngay wax mu jagleel ko njaalum boppam daan ni ko li ma bëgg ci yow nag mooy nga ànd ak man ñu dem ca buur ba te mooy Sàmba Lawbe nu jaal ko tàmbale bi wala Lat Joor ñu dem ci buur bi yaakaar Lat Joor reenu ñu dem ca Lat Joor jaale ko jaale ko ko ndax euh, ginnaaw xaritam la woon di woon ab sëriñam doonoon conseil technique am mooy mu daan gisoog moom bu ko defee ñu mën a waxak moom ci yow ngir mu samp la fam sampoon sa baay ñu boobaa léegi lu baax rek lay doxal si diggante ak moom ñu ko lii daal mooy sama xalaat yow nag luy sa xalaat nee sëriñ bi tontu ko ne ko waaw li nga wax ci nañ dem jaale ji ko de dénk ko loolu moom baax na yàlla nañ ci yàlla fay aw yiw waaye nag euh, man di dem ci boor moom déglu sama mbir loolu moom dama ko baaxawut amul dara lu may sàkku ci kenn yit ko dul yàlla nee na mbooloo mépp tirim ñenn ñi ñee ko lool ci dëggu gi mu dëggu diggante ba boromam waaye ñenn ñi ne kii daa def daa dese ci xew-xew ci la waxe ñaari xasida yi benn bi mooy qaalu safihun li sarfi an humu basari wa ragbati an zawil isyaani fi l bashari muy nee nañu dama dese guma soppi gu ma soppi sama gis won leen ginnaaw ak bañ guma bañ mooy kat yàlla yi ci mbindeef yépp xaalu safihun li xubbi xaaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari mu ne dañoo wax ne dama dese ngir bëgg ma bëgg sama borom te duma fab sama lorit di ko jàmbat mbindeef qaalu safihun li kaw nii lam axaf ahadan dañoo wax ne damaa dese ngir li ma ragalut kenn wa ma rajawtu siwa rahmaani lil xadr te yaakaaruma kenn ku dul yàlla mi aji yarame ji te yor dogal qaalu safihun li tafwidi ila maliki amri an il kawni fii safwi wa fii kadri ne nañ damaa dese ngir joyal gu ma joyal sama mbir jox ko suñ borom wan gannaaw mbindee fii ci jamono buy sell muy buy neex wa fii kaddat yi ak ci jamono buy nax te mooy buy naqari beneen way bi ci des mooy way bi àggul nag dem na ba ni in safaho niya fi wirdin axastu bihi li cheikhi siidiya cheikhi albadwi walxadari fala akunu rashidan misla rushdihimu fa sawfa yamtaazu yowman anzamu siri wax ne muy waxee ne fekkee ne yoo xam ne damaa dese ngir wirdu ma yor muy wirdu cheikh siidiya moom mi nga xam ne mooy sëriñub mm, taax yi di sëriñub kaw yi seen xeetu njubin woowu ñu jàpp mooy ak njub ne du ma ko jub te bisa ngi ñëw ca kanam boo xam ni euh, doxin yi gën a jub yi gën a màgg dana leer ñëpp bay di ji des mooy fi mu waxee ne xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tugni kullama xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayra al ilmi wa ddin mu ñu ngi may wax ni ma jàng jëm ci bunti buur yi kon da am ay may yu kawe yoo xam dana la doy waxtu wu ne waaye ma ni leen sama borom doy na ma te doyloo naa ko te man day gërëm lu ma lenn lu dul xam-xam ak diine wax na ne an naa ahwaali liman hajasu وقال إن كنت ذا وطر أو كنت ذا حسن دعوت ذا العين قبل الراء والشين موي سما أمي آجو باما أم جقره يالا لا يوه فهو الذي فهو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكون ما شاء أي تكوين موي أجي ديمبلي جيغا خامني دارتلو دارلوتلو te mooy ki nga xam ni lu mu bëgg a sosit dana ko sos mu nekk na ko bëgg wax na bañ leen an ne ufawidu ahwaali liman an xaali anfusihim ajisal masakin nan laay fabe samay mbir di ko joyal ci ñoo xam ni seen bi bopp sax tëna leen xanaa dafay def loolu sëriñ bi ginnaaw bu mamaro antisali làqoo des na ci digal loli mu ko digalon ata kuslef ni ko top ñep bobu dañ doon sakku xam-xam rek moom mu doon kat bu set wecc katu kese waye lo lepp nak mi ngi and ak di xam-xami niti tasawuf amuk tafel lol ci futtiku won gannaaw aduna ak daru am cofeel lool ci siyaaxa te mooy dox wër nit yàlla yi na ko suuf yu jëkk yi daan def isaa daana xeet xeetal ci seeni waxin léeg-léeg mu wax loo xam ni day junj rek ngir ñun bëgg a junj topp alluwa bam àgg mu ne alxuraan day nga jàng ko ba mën ko bind doo gis lu am solo la waaye nag fexe ba malawul ala déedé déedéeyante nga dégg ko di moom itam lu am solo la da leen di junju tasawuf noonu la doxee ñoom ab cib junju ba ba itte ji kawe ba not ko nag ba mënatu koo nëbb fuur duusu daal ba tuuru des ci nag mu daal di taxaw nag daal di la la ne woon teg mu yëngal ko daal di woote wax mbiram bu leer ba mu woote it am na ñu ko topp aji ci moom nangoo tarbiyewu waaye ñi ca des it ba woote wootee euh, woote boo xam ne ba tey fërsiwut waaye waxin la woo xam ne am na ko leeral leeral na ko leeral na li mu bëgg am ñu ko topp nangu ko tarbiyawu am ñoo xam ni dañ faa des rek ngir jàng waaye ba jamono boobu it mu ngi jihaad ak bakkanam jihaad ju tar jihaad ji it jihaatut ngir di séentu ay maqaama yu ci war a amee waaye suñu borom moo ko ko ilhaam loo ko ko saxal ko ci ab xolam wirdu xaadir ñu ko jële woon ci way juram Mamour Anta Sali ba mu demee dama deme dem ba duusu nag ba tuur ba mënut a ñàkk nag mu leeral la mu bëgg nag daal di woote jam dajale mboolem ña fa nekkoon ci ay jàngkat daal di jóg waxtaa wax ak ñoom ak dogu gam dogu nag ni leen nag léegi li ma bëgg ngeen xam ko daal mooy képp ku àndoon ak ñun ngir xam xamlo na seeti fu mu xamloo ji na dem seeti ku ko jàngal ku àndoon ak ñun ngërum njàng képp demal seeti ku la jàngal te seet fu la neex ka dem koo xam nag dafa bëgg li nu bëgg na dox sunu doxin te taxaw ci suñu mbir suñuy su suñuy suñuy digleeg suñuy tere mooy na ñëw topp si ma nag te diglu ma te wàccandiku foofu nag ñu daal di baj baji baj baj ju tara ñenn ñi daal di ni kon ñun ñoo ngi dem ñenn ñi des fi am ñoo xam ne dañuy tere seen xarit dem na leen déet bu leen dem ëpp na def ñenn ña di tere seeni xarit toog naan leen fii bu ngeen fi toogee jëm leen fenn waaye werante yee bu muy bari lépp yi suñ baa ngi ni teg mu ngi noppi ni cel waxut dara eh, dogu it ci leen dogu déngi déngiwu ci ba mbir ma fa mujj mooy ñu bari dañoo dem ñu néew des fa bimu mu demee nag ba ñii dëppoog moom dëppoog moom ci ñi dangoo ànd ak moom ci lim nekk mu daal di yéeg ak ñoom nag jàll bàyyi xaalu jàngale jam dem ci xaalu tarbiya ak tarqiya sëñ Mat Lamin nee na am na ci ci kilifa yi ku ko wax ku kum doyloo ku ko wax ni ko sëriñ bi nee na ko yonente bi ci boppam mu waqanteeg moom ni ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars ne ko yonte mu waqanteeg moom ni ko yaral sa àndandoo yi ci itte te bu leen yar ci am njàng gis yonente bi ak waxak ak yonente bi ak jële ci yonente bi dana ñëw ci kanam tuuti ak li ci boroom xam-xam yi wax ak nattable kat ya la ñu cay nattable waaye لكي إن شاء الله لي كو سرين لي سيني لي مو سرين لي اندك نك لم ليرال تي عجائب ابن عبد الله صلى عليه بسلام الله باق اضاء ارضه بالاولياء الى القيامه وكل ولي سنته وصانها عن بداعي tabshiruhu xadimahu bi fasdai waaw loolu Sëriñ Tuubaa moo wax ne bokk na ci kiimaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ni moo leeral suuf si ci wàllu yi ba bis penc di taxaw wàllu yi yëpp kenn ku ne féetewoo sunna si yonente bi di ko ñoŋal ci ay bida bokk na ci kiimaani yonente boobu bégal gum bégal ki koy liggéeyal ni ko fasdaq fasdaq bi ma tuumar amarahu salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man walahu bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu minhu nusha min ahli zaman mu ne yooyu sallallahu alayhi wa sallam digal na ko mu xamal murid yi ak ku nangu ak laabire ci moom ci waa jamono fasdaq nag lii maanaam mooy yàlla dafa digal yonente bi mu leeral woote ba mu daan woote ca màkk te di ko woote ci suuf daf koo digal mu woote ko ci kaw bu dee ci àqi Sëriñ Tuubaa nag fas daq jooji dañ koo digal mu woo nit ñi ñu wéeru ci moom ak jële ci moom yoon wi nga xam ne moom la ko suñu borom baaxee yenkiwal ka ko mu di ci jubbanti nit ñi di leen ci gindi di leen woon yoon woo xam ne yiwu adduna ak alaxira mën na caa gindi noonu la sëriñ bi sooboo ànd ak ñi ko topp di leen tarbiya jaarale leen ci yoonu tàggatu ci sikar ak dëddu àdduna ak liggéeyal nit ñu baax ñépp nag ak liggéeyal mbooleem jullit yi liggéeyal goo xam ne liggéey nangoo lay doon ak liggéeyal leen ci isaar te mooy gënal gënal leen ci sa jëme bopp moo tax am murit foo ko fekk bu murit ga dëggoo ci moom xol ba day set wecc dara lu ci nekk lu dul yàlla te kum gis ku ne day jàpp ni kookee ku gën ku ne ku da ngay xool yàlla ci sama loolu bu ko ñëpp dundoon jàmm ju daj kapp lay doon ci àdduna bi moo tax bi mu sooboo loolu ñee nga xam ni xamoon nañu aslëf ci xam-xami tasawuf ak melo yi tasawuf dañ leen doon xool xooliinu yéem ak respect waaye lenn ci boroom xam-xam yi di leen woyafal di wax na ñun wenn yoon wu jëm ci yàlla wudul li ñu nag xamuñ ko muy jàng ak jàngale waaye fekk na euh, lu xar ci la nekk ca suufu jàng ak jàngale te mooy jikko fexe ba jikko rafet noonu la sëñ bi continuer amul benn jafe-jafe digganteem ak kenn nag gannaaw bu fi woy juróom jógee e, problème bi jëkk am daal mooy ginnaaw bu Ibrahima koddu Jóob jébbaloo rakki Lat Joor ba noppi nag rakki Lat Joor la doomu ndeyam la ba noppi nag bokk ci dag yi suñ ci moom kàngam yi ñu ko doon jàppale bi mu ci sëñ bi te fekk ne kilifa la woon ca ñooñe bokkoon ci jàmbaar ya bokkoon ci doonoon ko wooma sax nag nga xam ni amoon na cër bu mag ci màng mañ jëloon ci xareb Samba Sadio Samba Sadio ab dëkk bu nekk ci penku Njaambur digganteem ak Jolof ci la xare boobu yi xewe woon Ahmadou Cheikhou Ba moo jóge woon Fuuta ñëw déclaré jihaad ci ñoom gannaaw buñ doonee ay jullit nag yuy jullee ko war déclaré jihaad yàllaa xam la mu jublu woote waaye ginnaaw bu ñuy jullee di woor daal la dekk daal di jihaat ci ñoom hmm. digganteem la xewe woon ak digganteem ak Lat la xare bi xewe woon waaye Lat Joor it tubaab yi jàppale ko ndax booba dañoo jàmm dafa dox seen diggante booba ko jàppale ñu xeex mu not sëriñ boobu yi muy Ahmadu Seexu rey ko armab Lat Joor jële ca màng mu bari alal ju bare bare ak i jaam waaye mboolem ñeen jàppoon ci ay jaam nag waa réew mii la muy diggante jolof ak fuuta ak kajoor jolof ak fuuta ak kajoor ñeen ci jàpp ñëpp ñooñu képp lañ ay jullit lañ yit nag bi mu leen jàppee moom buur bi muy Lat Joor dafa laaj ndax mënees na leen a def ay jaam lenn ci boroom xam-xam yi na wax dagana la fu ne ko mënees na leen def ay jaam ndi ngir sëriñ bii di xare muy ahmadu seexu dafa woote ni ab yonent la kon léegi deretam dagan na ñu rey ko dagan na it ñu lekk lañ màngi ci moom ndax doonatul ab jullit ñu wéyal loolu yi waaye nag li mooy woote gum woote woon ak nubu woomam saxut fan gisuñ ci benn dalil buy tegtale ni dafa woote woon ni ab yonente la bi Ibrahima Koddu Jóob moom yi jébbaloo ci sëriñ bi sëriñ bi daf ko wax ne ko mbooleem koo ci ñu koo ci jële woon ci jaam bu bàyyeeku woon foofee nañ ko bàyyi mu dem ndax du ñuy jaam alal joo ci jële woon na dellu léegi nag bi mu delloo jaam ya lam ci amee woon mu set ca Lat Joor ak ñam àndal dañoo gis ni lii sëriñ bi digal Ibrahima Kodd mi dafa mel ni dafa féeri seen fatwa boobu ñoo xam-xam bañ jàppoon daal lii dafa dàqoonteeg loolu ngir ñoom lañ ubbee woon mooy nit dagan nañu jaamu leen ñu mere ko dag yi fexe ba dajaloo ci kanamu Lat Joor fexe ba woofaa Ibrahima kodd moom mu teew ñu wax ko ci kanamu Lat Joor ni ko yow ana lu waral nga ànd ak say moroom nekk ci ndabul teraanga nga jekki-jekki ni wëlbët wan leen ginnaaw doyloo ci doyloo jóg gi doyloo jóg gi waaye da ngaa tibb xëpp ko ca ndab la mun leen waaw weñe ma sarax ma ni bërit suuf si xëpp ci seen kaw waaye jubluwuma ko mu mel ne saraxu weñ woowu li mu mooy leeru islaam gi dugg ci xolam rek la jubloo wax la jubloo jàppe noonu ndax noonu la noonu lay demee maanaam bu la nee car fan rek fokk nga soppe aw doxin fokk nga soppi aw toogin ñu xam ni li mu wax dëgg la sëriñ bi nag moom Lat Joor di ko woolu ndax dañ ko ne da war a woolu sëñ bi nag moom itam laaj ko ba xam lii mag ñi àtte woon di ay boroomi xam-xam lu tax mu firi ko ak fam ko tek nga wax ci kenen borom xam-xam yi ba xam ko tek la jor di wolu serigne bi ci ak ñewante ta moy dank dank rek woowu ko ci force waye da koy wolu dank dank di ko bind bataaxel waye señ bi digantal bu ko bindee bataaxel mu bind bataaxel tondu ko bu yónnee ndaw mu wax ak mom mu yabalat ndaw li waxat ak mom ne ko nekk nang ben bis mu wax eh, ndaw li la Joor yéen ne ko bo demee ne dama rus malaika yalla yi dama gis may dox jëm ci buur buru yalla sey sëñ dem la mi ngi nett bu ñu wax serigne Adama Sall ci ñi jëkko na top serigne bi ci wajolof ci la bokk wax na ne bataaxel bi mujje dox diggante sëriñ bi ak Lat moo ko yóbbuwoon nee na sëriñ mi ngi ci bind nii leen Muhammad ibnu Maslama di radiyallahu anhu wax na ni boroom xam-xam bu taxaw ci buntu kër buur mi ngi mel ni woñ weñu wu ci kaw yi xayit bi mu bataaxel bi Lat jox ko xaadi ma jaxate boobu moo doon mufti bi nga xam ne moo joxe woon xam-xam bee ñu weesu xam-xamam ni mën si na jaamuloo xaadi ba mu jàngee bataaxal bi dafa déclaré istirja mooy ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ca kaw dañuy e, laaj jot ne ko lu mu doon mu ne ko waaye diggante yàlla wax ma li mu doon xaadi ni ko dafa wax ne boroom xam-xam bu nekk ci buntu kër buur mu ngi mel ni weñ wu ci kaw xeet buntu buur mi ngi mel ni weñ wu ci kaw xeet ne eh, la jot ne ko yow mbir mi ci man mi la gën a tare ndax yow la jàpp ngay weñ wi waaye man mi kon may la ca des daal di laaj xaadi ni ko waaye lu ci sa xalaat xaadi ni ko man li ma gis mooy nga bàyyi ko ñu bàyyi ko ndax notanteeg moom danse la ndax bu la notee ak kawem euh, ak kawe ak lay te yow bu boobaa da nga ci ñi gën a suufe ci àddina bi lay bokk bu la bu la notee ci ñi gën a kawe ci àddina bi lay bokk yow da nga bokk ci ñi gën a suufe ci way suufe yi te it naa ne bu ngeen notante danga la not nag nee na laaj ni ko wax nga dëgg ndax ab baykat mën naa ci ay toolam ab pàkk boo xam ne du nooy ba mën koo rijji te du ko saxalal dara nee na ba mu ne ko waaw nee na xaadi ni ko waaw nee na laajoo ne na nañ ko jàppe muy pàkk boobu rek nañ ko jàppe muy jànj boobu nga xam daa nekk biir sol bi kenn mënu ko rijj ba mokk ko bay mu saxalal dara suñ mu demit nee mbir mi ba mu jeexee ci noonu yi yàlla dafa àtte nag benn bis bu lajoor tukki ànd ak xaab yi ma jaxate moom yi ñu wàcc ci ab dëkk bu jege fii sëriñ bi nekk bi sëñ bi déggee ni xaaba yi mi ngi ànd ak Lat Joor ñëw fii mu daldi jóg am mbégte lool ci nuy ji xaaba yi ngir jokk ko jokk gi ngir ñaari mbir benn bi mooy xaaba yi ab sëriñam la ci wàllu li boroom xam-xam yi wax ni ku la xamal benn araf képp sa kilifa la te am na tuuti ci xam-xamu naxwu lum jàng ci moom ñaareel bi xaaba xaritu baayam la woon Omar Anta Sali kon mu war koo delloo njëkk yi ngir loolu jokk ko ngir xaritoo gi mu baayam ndax eh, yonte bi ne na bokk na ci njëkk ji gën a doon ci njëkk nit ki di eh, doxuk bokk digganteem ak soppee way juram soppee baayam muy loolu ci ak topp bokk loolu ci ak topp topp way jur la bokk na ci topp wayjur ngay xool ñam xaritooloon nga di leen jokk bi ñëwee ba fekk leen ñu toog ci benn laltaay mu nuyu leen nuyub wor ma daldi toog ci suuf tànkam nag tegu ko ci tappi ba daldi sax tuuti am fa ab diir daal di leeral qaadi yi ni ko damaa ñëw rek ngir nuyu la nuyu la képp moo tax jóg bi mu leeralee loolu nag ah, Lat Joor xamee na ci ni li mu jubloo leeral mooy bëgg ñu xam ni moom mii taxu koo jóg waaye Lat Joor daal di wax qaadi ni ko waaw mbir moom war nañ caa wax ak moom ndax yow li nga ubbee woon moom daf ko firi woon li nga waxoon daf ko dindi woon bëggoon nañoo dajeeg moom ab jataay mënuñ ko am léegi jataay bi am na mu ngi nii kon wax ceeg moom nee na xaabri ni ko waaw man maa waxoon ni ahmadu seexu dafa woote ak wa ci lool yi la teg xare bi mu doon xare ak nit ñi ba tax na deretam dagan na dagan na it ñu lekk lañ jële ci moom dagan na it ñu jaamloo ñañ ci jàppe nee sëñ bi noppi mbooloo mi noppi ab diir nee na sëñ bi wax xaadi ni ko ndax dangaa wax ngir ma tontu la ndax xaadi ni ko waaw mais wax kay waxuma waxuma loolu la ngir bëgg nga tontu nee na sëñ bi ko waaye digal nga ma tontu digal nga am naa ci ndigal xaadi ko waaw am nga ci ndigal digal naa la nga tontu sëñ ko kan mooy sa seere ci ne Ahmadou Seexu dafa woote na ak nubuwa xaadi ni ko waa Kajoor sëñ bi ko waa Kajoor ñooy ay noonam di moom di xareeg moom da nga nangu seen seere ci moom xaadi ni ko déedéet waaye waa Samba Sadio ñoo ko wax waa Samba Sadio fa nga xam ne fa la xare ba xewe woon ñoom ñoo ko wax sëñ bi ne ko waa Samba Sadio kuréel yi dañ leen a jóge penku ak soow fitna ji xewee fa ñoom ñoom yëguñ ku leen xamal ni kii woote na ak nubuwa xaadi ngi cel mbooloo mi ngi cel laab diir ginnaaw bi xaadi yi wax sëriñ bi ni ko doom danu laa tegtaloon buur ba nga jiitu fa kon nag maa ngi lay ndokkeel ñu daal di tàggoo foofu la pënd ba tasaaroo loolu mooy li sëriñ Mat Lamin nett li ci mbirum xarib Sàmba Saajo ak la ca am sëriñ Basiiru ak sëriñ Mat Lamin ne dëppoo nañu ci nett li bi tuuti ak juyo rek moo ci am goo xam ne juyo ga du mënees na ko leer du ak juyo du juyo bu am solo Euh, ndax fi sëñ mat la muy waxe ni Lat dafa diisoo ak yi ma jaxate ci mbirum sëriñ bi ci mbirum sëriñ bi bi mu firee fatwa boobu foofu sëñ ma Lamin daa wax ni euh, Lat Joor dafa diisoo ak xaadi laaj ko lu ciy pexe xaadi xamal ko ne ko li ma xam mooy boo notanteeg moom mu not la kon ñàkk bàyyee ko moo gën nañ ko jàppee ni ab jaañi bu nekk ci biiru tool rek bañ jàppee ko noonu sëñ Bachir bi muy net li dafa wax ni lenn ci surge yi lenn ci dag yi ñoo ko wax ni ko kii daal boo sakkul ci moom taxe boo wutul dana fi def lu ëpp lii ma wax ni ñaar yooyu mën nañoo ànd ndax xaado yi ci xam-xamam lee rek la war a mën a tontu ndax lee mooy xel mu rafet moo dëppoo it moo tolloo it ak euh, qualité xaado yi xalaat bu rafet boobu waaye xaado yi mën naa wax lee sëñ mat lamin jàpp loola waaye lii sëriñ Bachir wax ne lenn ci dag yi ñoo ko wax ne ko léegi da ngaa war a dal ci kawam sàkk ci moom pexe ba Lat Joor daa mujj bind xupp sëriñ bi ba mu ko xuppee sëñ bi ni leen régalu maa jàkkaarloog moom tax may bañ ñëw lii ma nekk it oma ci sikki sàkk ba tax may ragal a jàkkaarloo xam-xam yi waaye nag xam-xam dañ koy fekk waaye du fekkee sëriñ Bachir nee na xelum Lat daa mel ni daa mujj daa jëng jëm ci bëgg eh, teg sëriñ bi fitna waaye sëriñ bi yàlla mi mi ko aaral boppam moo ko fegal fitne Lat Joor jooju ne na ba diggante Lat Joor ak tubaab yi am rëng-rëng ngir lu doxoon seen diggante njàqare lool yi ñëw not njàqare yi amoon yépp ba Lat Joor telatu ko waaw sëñ Basiir bi ma waxee loolu nag taarix a ngi nii nag mooy delloo si boppam toujours daal lii mooy la xewoon ca muhammad ibnu ismail al buxaari yi ndax buuru amirul buxaara dafa sàkk woon ci moom ni ko dama bëgg nga indil ma saxiix bi waaye buxaari yu tontu ba ni ko du ma toroxal xam-xam ci ko yóbbu fenn ko yóbbu ci bunti buur yi buur bi génnee ko dëkk bi buxaari yu ñaan ko yàlla ay fan la am ñu kuudetaa ko waral ko ci kaw mbaam di wër moom dëkk bi noonu lañ ko tëje ba mu faatu mboolem ña ko doon jàppale it ku ko ca jàppale ci loolee mun a moon rek yàlla nattu na la sëriñ Bachir ni lool yi nekk mooy li xew ci diggante sëriñ bi ak buur boobu muy Lat Joor ak ñi ko daan jàppale mbooleem ñi nga xam dañ daan feeñal ak mbañeel seen diggante ak bi di ko jéptaane di wax ci biir mbooloo naan xool leen rek ndeeteet lii di tantan lu ci kanamu tan mu mag mi mag ma te booba lam jublu mooy xaad yi mooy tan mu mag mi li tax mu àtte ba noppi sëñ bi di ñëw di ko firi am na koo xam ne noonu daan reetaane sëñ bi di ko sabote Lat ba tey noonu la amee rakkam jigéen joo xam ni ñi daan sabote sëñ bi ci la bokk waaye kenn ku ne ci ñoom rek sëg mujj rafetut ndax Lat Joor ak la ca mujj daanaka dafa continuer rek di am ay tolof-tolof ay xew-xew yoo xam di gën di dolliku naka noonu sëriñ bi di gën a dolliku ay leer mbooloo mi gën a jëm si ci moom adduna itteelu leen dara dox seen diggante dara mënut dox seen diggante sëriñ bi ba ni latjoor Joor faatoo moo sàmbalaw bi mi mujj ci buuri Kajoor te euh, colonial si rey ko mujj rek mënuñu koo tal daal seen bopp lañ gënoon tal ci moom ngir problème boobu yi leen gaar problème bi gaar la joor ba tëlatul mbirum sëriñ bi jafe-jafe am diggante ak tubaab yi ba mënatu koo dékku ci la gàddaayewaat dem Saalum yoonu ñaareel bokkut ak gàddaay gu jëkk gaa jëkk jëkk nga ko maa jooja dàqe waaye dafa dem ba yëf yi xat ci moom lool jafe-jafe yu bari moo ci la gàddaay waa dem Saalum ànd ak mbooloo ànd ak ay surga ànd ak waa këram mu sax ci ab ca Saalum ab diir waaye foofa yi amuñ fa ku dul Saïd Ba Saïd Ba doomi euh, Malick Ba la Maba Maba Jaw mooy Malick Ba mooy Maba Saïd ba képp moo fa ànd ñoom ndax ci moom la moom la jaayanteeloon ginnaaw ma ba waaye Saïd ñi jaayanteeg moom mooy ñi toppoon baayam te jóge feneen gàddaayee ci diggante Kajoor ak Bawol ak Jolof ko gi ak ñu néew ci waa Saalum nag waaye ñu bari ci waa Saalum dañ ko won ginnaaw te ka jiite mooy eh, taalib bépp maba ba fa gën a mag ñu di ko wax Siise tam bokk ci ña am doole foofu lool ci réewu Saloum yooyu tax na ba mu wonee gannaaw Saïd mbooloom salum salum népp woon ko gën a daanaka Saïd daal lam fa dese mooy ñu gàddaaye woon feneen ànd ak bàyyam ñëw waaye nag mbooloom bare bari lañ Lat Joor nag bi mu xamee ni waa Saloum gépp Saïd ba képp la fi am yëf yi di daal di nëx ci moom ndax suuf si day xat ndax buñ xasee génn fii rek ñu ñëpp seen noonu lañu àndu ñoom ñoom te ni leen doon arrangé mooy ñu mën a dëppoog suuf su dëppoog waa Saalum gépp waaye buñ ca amee ñenn am béréb yu ñu fa mën a dox ya ca des mënuñ faa dox rek daal di xat ci ñoom ndax tamuñ lool foofu nag eh, fi la mbooloo mi xàjjale ko ñaari xaaj ñenn ñi ni ko nag léegi fokk nga dellu kajoor benn nga xeex ak tubaab yi mbaa nga jàmmoo ak ñoom waaye fii moom mënu su fi nekk ndax dafa xat xalaat boobu Lat Joor nanguwu ko kon def na ñaari xaaj léegi ñi xalaat nañu dellu képp ay dëgg moom nanguwut xalaatu dellu bi ñu daal di koy wor bañ ko waree ànd ak jarbaatam bu ñuy wax sàmbalaw bi sàmbalaw bi moom nag lañu àndal dellu kajoor dem jàmmoo ak tubaab yi daldi koy fal buuru kajoor sa boppa Lat Joor mi ngi saalum Lat Joor des saalum ba foofa metti ci moom mu delsi waaye bi mu bëggee delsi kajoor it colonialiste si bañ ne suufu si kajoor moom du fi dugg mu des mom la jor di wër di set taxé yisa ma nga jolof yisa mu nekk diggante kajoor ak jolof ci wetukaay yum daan wét dama dama dem ba yokkat mbir yi am xelam del ci mom gënaaw bu ko ay surgam, ak dagam yépp woré ak mbokam jeng dem jappalé ji sàmba law bi ab jarbatam ñoom ñépp ñu ànd takkutoo dem mm, ànd ak nguuru tubaab yi euh, kenn desul ànd ak euh, Lat Joor ku koy defendre mu mel ni laaf yim daan naawee daal damm na léegi mu jaaxle lool des ak ñu néew ci waa këram ñoo xam ne ay gor lañ la leen fa bàyyi mooy gore ak fàttaliku démb ñu jaaxle ba am xelam jëlis ne mu mu mu xalaat xalaat jullit yi xalaat ceddo yi kum ci war a diisool gisul kenn ku ko xelam jox gisul kenn koo xam ni biiram set na wecc ci ay farfarlooy àdduna gisul kenn koo xam ni ab xolam jàpp na dara ci xëccoo ki bañante ak sàkku kilifteefu àddina ku dul sëriñ bi sëriñ bi képp daal la gis ci koo xam ne xam na ni yàlla kese kese kese moo nekk ci xolam amul lenn lu muy jàpp wax ci kaw di jàpp leneen ca suuf amul fenn fu muy demit di fa di ko fa reetaane mbaa mu di ko fa sabooti naan bàyyi ko rek nangam ak nangam comme ni ko nit ñi gisee moom képp la xelam dal ci ni na diisoog moom ba xam lu mu gis mu dem jàmbat ko li xew ci waa ak njabootam rawatina nguur gi ñëpp niñ ko wane gannaaw ni ko dañoo tàkkatoo jàppale sama jarbaat ñu dem négocier ak tubaab bi léegi nag man am naa ak jaaxle dama lay laaj ba xam ndax dama war a gàddaay dem ci réew yu sore sori ngir sàkku foofa kàttan gu ma jàppale ngir ma mën a delloo si nguur gi ci samay loxo wala damaa war a fexe ba lijjanti ci waa réew mii ñu ma jàppale ba ma xeex ak ñoom ba jotaat ci nguur gi wala euh, nu may def daal nu may def daal xalaat daal laa lay laaj waaye sëriñ bi tontu ko euh, te booba xarit yeeg noonu yi ñëpp doyloo nañ ko waaw ndax sell gum sell diggante ak borom ni ko man de lii sama xalaat ci ku àdduna woon ginnaaw mooy nga woon ko ginnaaw bàyyi waa nguur gu yees gii ak seen àdduna ndax na nga xam ni force bii fi ñëw kat muy doole ji doole ju ñëw la joo xam ni dara mënu ko dëpp lu dul sunu borom mi ko fi indi waaw te ku am xel ku ne it doo jéem a xëccoog ñun ni ñu la ëpp doole ëpp na ne ko sewaa këri bopp ak sa nguur bopp gi ci àdduna la bokk bu la wane gannaaw wan ko gannaaw ne ko man nag mën naa laa dogul ni la boo bàyyee mbooloo mi gàngoor gi ñu dem nga bàyyi ngànnaay yeeg fas yi yëpp des fi yow képp def ni sa mbokk mii def da am lu gën ci yow ci sa diggante sa borom te danga nopp lii it ci mbiri àdduna yi ak njàqari àdduna yi def nii sa mbokk mii mooy Ibrahima ko def mooy jaayante féete yàlla te bàyyi nag kërëb kërëb bi àdduna yi laajoo ne ko li nga wax dëgg la wóolu naa ni mooy li gën mooy li gën a yaay waaye nag diis na ci ku mel ni ma ne mu dekk jekki génn ci àddina ku yël banding rek ba set ci wecc waaye nag léegi li ma xalaat lépp léegi dañ na ci sama xel léegi léegi li ma doon yaakaar it eh, ni nga ma yee jàpp naa si labiré yi nga ma labiré léegi kon duutuma waxateeg yow ci dara lu dul lu may jariñ fa sama borom alaaxira ak loo xam ni dana ma ràmmu ëllëg rek kon nag nag ma dimbalee jox ma benn tur yàlla bu may sikkar ak wu ñaan ku may ñaan loo xam dana ma jariñ ci sama bàmmeel te jox ma sa yére yi bopp loo xam ni su ma faatoo moom lañu may sànge te bañ may fàtte ci sa ñaan nee na sëriñ bi digal ko mu wattu ak ñaan goo xam ni moom moo ko defoon ci ay istixfaar moom sëriñ bi moo ko téléphone ay jéglu yi mu téléphone jamono yooyu euh, jox ko am mbubbu it la joor tàggoo moom ba mu moom ñaari semaine rek lañ ci E, bu armob e, nguurub nguur gi fàq ci kawam booba lu ëpp ci waa réew mi ci nit yi boor yi réew yi e, ci këri boor yi ña nga ca fàq doon ko wër mu xeex ñoom xeex bu tar waaye ab diir bu gàtt la am rek jam-jam yi wër ko fu ne mu daal di daanu wàcc fas yi daal di faatu waaye nag Euh, déng-déngiwut ci taxawaayam euh, mu ngi jàkkaarloo ak noon yi ngir amoon yéene dee ci xare yéene dee ci jihaad moom la amoon moo tax wonu leen ginnaaw ña ngi ko reye fa teenu déqale loolu bisub àllarba la euh, ci atum junni ak ñetti téeméer ci gàddaay gi ñu denc ko ci bàmmeeli deqale yooyu loolu mooy mujjub mbirum Lat Joor li ñuy wax népp nii donte bokkul ci histoire lu sëñ bi dañoo ànd dañoo roofaloo ba nga xam ni déggaale ci eh, jikkoy waa Sénégal ak seen doxin ak la nekkoon jamono sëñ la dina tax manee sa dégg dëgg sëriñ bi loolu mooy mbirum mbirum Lat Joor bu boo kàngamboo boobee nga xam nag moo daan saboote sëñ bi moo rakki Lat bi jigéen jooju may wax ñoom itam seeni mbir eh, fa mujj bu dee kàngam boobu te mooy képp kooku yi bokk ci eh, dag yi sësuñ ci Lat dafa gudd fan lool ginnaaw Lat Joor ba benn bis sëriñ bi romb ko boobu mi ngi ànd ak mu bari ay talibe yu bari ñu ngi sikkar ko rombee moom moomee booba ndeysaan mi ngi nekk ci e, pindub ab teen di wëggal ay nagam yoo xam ni amul kenn ku leen di sàmm ku dul moom moom ci jëm bopp mbaa doomam daal ñoo leen di sàmm mu sol yére yu ràpp bi ko sëñ bi rombee mu xàmmee ko dafa daal di lem goj ba daal di daw ngir mën a nuyu sëñ bi siyaare ko yërëmtalu lool rakki Lat Joor jooji it moom itam sëriñ Basiir nee na dem naa ba gis ko muy ñëw ci buntu kër sëñ bi ak sunuy buntu kër ak buntu kër yi murid yi delluwaat ginnaaw bi la tuub ci loxol kenn ci talibe yi jébbalu jébbalu mbooloom njabootam gépp yëpp jébbal waaye sëriñ bi moom yàlla daf ko binde mu doon ko am yërmande ci xeet wi doon ko am ñeewante ci mbindeef yi mësta rëcc ci aw yi mu ñaan yàlla kenn xanaa loolu luy sun borom dogal la ci ñoom da daan muñ wakkiirlu ci yàlla di won gannaaw seeni lor ba noppi dencal leen nag ak ñeewant di ñaan yàlla mu gindi leen comme ni sang ba waxe sallallahu alayhi wa sallam e, allahuma axfir li qawmi fa innahum laa yaalamun ndax yonente moom dafa ñaanoon yàlla yal na nga jéggal sama nit ñi ndax dañoo xamul rek waaye sëñ bi musta wàcc taxawaay boobu waaw nag léegi ku doon laaj nag dëgg dëgg li sëriñ bi woote mooy lan ba muy jàngale ba mu jàng mu ne ku fi njàngaleem kese kese andi woon demal seete foo jànge ku bëgg li ma bëgg nag ñëwal topp si ma Euh, ku bëgg a xam dëgg dëgg li mu woote mooy lan li mu woote dëgg dëgg dëgg mooy sellal sellal daal la jublu woote sellal sellal nag mooy ruug jëf jëf sellal mooy ruuga jëf jum ku doon fanaane naafil la di yendoo woor jàng xam-xam ba jeexal téere yëpp te ak sellal amul ci yàlla da ci dul nangu dara moo jëmm ju amul ak ruu ñooyam foo ba ma xamul daal foo ko wër dara kon ak sellal rek la jublu woon a woote sellal mooy ruug jëf sellal mooy résultat xam-xamu borom nit nit yàlla yi xam-xamu nit yàlla yi nit yàlla yi yëpp li résultat bu mooy sellal ak ci xama sellal sellal ci la nit ki mën a amee ak egg ci yàlla egg ci yàlla mooy lan egg ci yàlla mooy jaam bi dem ba set wecc set wecc ngir jëm yàlla lu muy def bu yëngatu yàlla tax muy yëngatu buy dal yàlla tax muy dal pas-pasam yépp yàllaa ko fees dell ay waxam yépp yàllaa koy fees dell ay jëfam yépp yàlla ngir yàlla kese kese kese lay doon ay mbiram yépp ngir yàlla kese kese lay doon zaahir ak baatin loolu la ñuy tuddee egg loolu nag dafa mënta amee ci njàngaleem kese kese kese ndax jàngalekat bi daf lay won aw yoon rek yoonu barab sàngam laa jëm mu ne la yoon waa ngi nii bu ndakaaru laa jëm wala ndakaaru nga nekk jëm si Touba mu ne la yoonu tuubaa ngi nii la ca des nag ka ñuy tegtal mooy seet ba xam dana àgg wala du egg jàngalekat bi foo fii la yem ak ki muy jàngal sëriñu tarbiya niñ ko mën a misaale da ngay laajte yoon wa mu jàpp ci sa loxo ni la nañ dem baa mu ni la duggal ci oto bi ñu dem ndax dal bàyyi ndax day am war-war yu mu war li nga war a def bu fekkee ay sikar la ay julli la jàng alxuraan la joxe la dindi ci yow ak nay la dindi ci yow ak rii la yooyu yëpp nii daf koy waral ci yow di la ci forcer di la contrôler ba xam yaa nga ca di xool ba xam jéego yaa nga cay dox fekkee sàkku xam-xam la dala ci forcer bu dee jàngale la mu jox la ci ndigal nga diko def mu dile ko contrôler wax ya koy defam dit bu fekkee ay sikar la bu fekkee daf lay liggéeyloo bu fekkee ay joxe joxe addiya la ginnaaw bu bu bu mu sosee sa mbir ci ak ragal ci ak ak ak ak cofeer cofeer gu set ci nga xam ne ngay bëgg yàlla seexum rabbi bi boo àndeeg nit ki ci noonu du tàggoog moom te du dem na bax li feeg mu koy xamal ay bi boppam xamal la it nooy laabe ci ayib joji dana fexe ba xamal la sa ayib bopp xamal la ni ngay sete ci ayib joji loolu yi mooy tax mu mën laa eggale ci yàlla ci kàttanu yàlla ak ndimbalu yàlla moo tax sëriñ bi bi ñu ko digalee mu yar ay taalibeem ci itte ña ña ña dëppoog moom dëppoog moom ca la mu woote dafa ànd ak ñoom nag ci ngirum tàggat tàggat leen ci xiif xiif bu tar liggéey bu bari sikar su bari ci laa ilaha illallahu ak jàng ay xasida ak saxoo laab ak beru nit ñi rawatina nag jigéen jigéen ñi nag lañ gënoon di moytoo jaxasol ci noonu la moom sëriñ bi ci njëlbeenu atum assasine te mooy mille trois cent un ci foofu ci Mbàkke Kajoor noonu la ci wéyee ba nim sañce Mbàkke Bawal xaaje murid yi it jamono booba ñaari ñetti xaaj lañ benn bi mooy ñi nga xam ni dañ ko doyloo ci seen dañoo ñëw rekk ngir siyaare si Eh, di sàkk mu laabiire leen bu ñu siyaaree sàkk mu laabiire leen mu jox na ak laabiire ñu dem seen yoon ñoo ñoo benn bi ci des dañ ko doylu ci seen bopp kon du ma ne sax ñetti xaaj la waaye ñaari xaaj la benn xaaj bi nag moom lañ xaajaat ñaari xaaj benn xaaj bi mooy ñi nga xam dañoo ñëw di siyaare di sàkku ay laabire di dellu beneen xaaj bi ci des ñu xaajaat ko ñaari xaaj ba mu nuru ñetti xaaj mooy xaaj bi nga xam dañoo yëkk dañoo ko doyloo ci seen jën bopp jox ko bu ko fi ñooñu la xaaj ñaari xaaj ñenn ñi di leen liggéeyloo ñenn ñi di jàng alxuraan baa ñu jàng xam xam ñetti xaaj yooyu ñoo fi nekk mu doon diine ju leer naññ waaye nag lam jubloo def ci nit ki njàngaleen kese kese kese kese daf koo mënut moo taxoon mu sóobu ngir moom mi te it lu ko sun borom baaxe la yenkiwal ko ko sol ko ko mën loo ko ko boolta ñoo ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir tarbiyewu si jox ko seen bopp bu wóor wàccandi ko moom mooy xool kenn ku ci ne la gën a yell ci ay mbiram mu sóob ko ca ñoo xam daa sóoboog ñoom yoonu euh, tarbiye gu tar ci feral sa bakkan ci xeeti bànneexi àdduna yépp ak dëddu luy nuru daraja ak alal ak sax dàkk ci jëf ju baax ak sellal yéene ci lu mën a doon jamono bu ne ngay nattale nattale jublukaayu sharia jublu jublukaayu sharia yi ak xikmay sharia ci mbir mu mën a doon ndax sëriñ bi ko réew mii fi la ganee àdduna yaroo fi ko xam ko lool xam nit ñi it qualité ni ñu leen a xam xam jamonoom xam na nit ñi nit diine ñàkk a xóote ci ñoom maanaam nit ñàkk a xóotloo ci xam-xamu diine ndax booba ak réer dafa tasaaroo ci àdduna bi jikko yu bone tasaaroo fi moo tax la lam la muy la mu leen di jëkk a defloo ci li ko xekk maam jox ginnaaw bu ñu saxalee warte fi diine yi ak yi diine sopp ba noppi mooy liggéey liggéey ci yaram liggéey liggéey ci liggéey bu bari ndax tayeel mën a wàññiku te tayel booba dafa tasaaroo dafa daanaka mooy ba fii ñu toll sax tayel lu nit ñi ñàkk moo leen ko xañ moo fi mooy yàq gi fi gën a bari te tayel gépp yàquteeg adduna maa yàquteeg diine ci tayel lay bàyyi ko moo tax sëñ bi ngir tayel googu dañ da leen di sóob ci liggéey bu tar ginnaaw bu bu war wari diine yi jàlle ak rëy ak yéem sa bopp it dafay dafa doon lu sax ci xoli ñu bare bare bare ci waa réew mi ngir seeni tabia noonu deme muy xëccoo ci rëy rëylu ak di ndamoonte ci ay askan waaye nag bu leen tamalee liggéeyandoo bu ñuy dugg di duggandoo bu ñuy wàcc wàccandoo bañ caa ràññatle kenn ak kenn xamul doomi diw xamul doomi diw ñépp yam ca ci biir loolu mu jublu leen a jàngal ak yamoo ci diggante nit ñi nga xam lay ràññeetal diggante nit ak nit ngëneel lay doon ngëneel lay doon suñu borom def ci jëmmi jikkoy nit ki wala mu def ko ci jëf joo ju rafet joo ëppale sa morom waaye du doon lu ngënanteeg askan moo tax daa daanaka liggéey bi ñëpp yamoon di xëyandoo di wàccandoo nit ki kon mu ngi gëne moroomam ci jikko di ko gënee ci jëf ju baax ju mu ko ëppale di ko gënee ci num ko num soree lu bon ci biir loolu dana leen dégtal ni leen ndekete baatub ragal yàlla bi ñuy wax benn baat la boo xam ni dafa dajale mbooleem jikko yi ñu sant jikko yu rafet yi benn baat la boo xam ni bu xasee nekk ci yow dana dox sa digganteeg mbooleem jikko yu ñaaw léegi taqwa bu ñu ko waxee mooy sori yu ñaaw yëpp yu rafet yëpp yi nga dajale ko di ko jëf mooy topp ndigal yàlla yi ak bàyyi tere yi ci diir yi ñu noppalu bu ñuy liggéey liggéey bu tar boobu diir bi ñuy noppalu mu di leen jox ay ma ay waaraate loo xam dana leen wanal dana leen wan seen ay bi bopp mooy lu mel ne li ma waxoon léegi rek tomb ay tomb ni bu ngeen xëyatee na jiital jaamu yàlla teg ci nangoo liggéey def seen naqar muy seen bànneex def seenu coono muy seenu noflaay di wettalikoo ndigal yàlla yi te bañ a wettalikoo jëm jàppe ndigal yàlla yi muy ab sëriñ te bañ jàppe aw sant muy ab sëriñ ku nangoo ku bëgg a tedd fii ci àdduna da ngay nangoo liggéey ku bëgg a taxe ëllëg da ngay nangoo jàmm yàlla façon waaraat yi mel noonu ak tomb yu mel noonu ak leen leeral leeral yu gàtt yoo xam ne lu ñu waroon a jàng ci téere yi dir bu yàgg-yàgg mën na ko tomb ci ñetti tomb leeral leen ko am na tomb yu mu daan tomb di wax ni diine ñetti képp la waajib la ak mandoob ak mu baax daal ne xam ngeen lan mooy seen waajib yéena bu ñu ne mun li leen eh, wàcc lal yi te dem ci der yi ndax ab tëre ngi ci kanam boo xam ne buñ ci àggee day eh, nit ku ne da nga tëdd loo bëggoon a tëdd da nga tëdd it loo bëggul woon a tëdd xam ngeen luy seen man doog ñu ne ko déedéet mun leen wàññandiku ndam yi ba ñu ne démb woon bis penc xam ngeen lan mooy seen mu baax ñu ne ko déedéet mun leen dara dara dara dara jëkk ji mooy yàlla mi ko xam ci moom dara la muy tere doo ci def dara mooy adduna mii ko xam ci moom dara doo ko fàggul dara ngir dara du fi des daray ñetteel ji mooy àllaaxira mi ne ko xam ci moom dara doo ci def dara ba naw ko ngir dara du fa doy léegi façon waaraate yooyu ak tomb yooyu moom la sëriñ bi soppee woon njàngaleem fab ay téere di tëral bu noppee nag ba mu dugg seeni xol mu yebal leen ñu daal di wéyaat ci leen daan yare di leen tarqiye ci e, ñuy takkaayoo takkaay yu mat takkaay yu mat mooy sellal seeni jikko ak laabal setal seen xol ak leeral seen xel ci itte seen itte jëpp ñu dajale ko ci yàlla jamono bu ne it mu di leen joxañ tuub ak jëm ci yàlla fab seen lépp jëmale ko ci yàlla ak dëddu àdduna ak rafet ci àdduna ak bëgg ngir jëm yàlla booy bañ li ngay bañ ci jëm yàlla ak sa xol tëj ko ci xalaat ci mbindeef yàlla saw làmmiñ nga tëj ko ci tudd tudd yàlla say cër nga tëj leen ci topp yàlla ci kaso topp yàlla duñ ko génn loolu yi nag bu ci nekkee ak ñoom ba loolu yi jaxasoog seeni xol ba loolu yi mu leen di giddi jëme not leneen lu dul moom ci ñoom léegi nag mu daal leen di yabal kenn ku ne mu am liggéey ba mu lay liggéeyloo kenn ku ne mu xool la gën a la nga gën a war a man ci liggéey mu def loola ko ka mën a jàngale mu jàngale loo ko ka mën a jàngale alxuraan mu jàngale loo ko alxuraan ka mën a jàngale xam-xam mu jàngale loo ko xam-xam ka mën a yor tool yi di liggéey dugub ju bare bari mu féetale ko ci fànn googa lépp delloowaat ci maslaxa julli ji rek lii mooy dëgg-dëgg ngeen moom tam woote ànd ak nag lii leen fuglu fuglu bu tara tar ak critique bu tépparle tarbiya critique bu tépparle la laaj ci mboolem yëngutu yi ñu yëngutu ak la ñuy tekkeral lu ci wuute ak li ci wuute ak zahiru sharia mu daal di jàjj ka ko def lu ci wuute ak teggini tasawuf mu daal di jàjj yeete ci ni fii la jàdd yoon wi nii la waaye loolu ku ko ci bañ ci tarbiya sax la ngay def du mën a sotti fokk da ngay jaxasoo ñi ngay tarbiya di xool jiitu leen di jëf ba noppi nag lépp lu ñu wax saa bu ñu wàccee yoon lu mu gàtt gàtt lu mu tuutul rek nga leeral ko moo tax sëriñ euh, Saalihu daana wax ne yoonu mu rek yoonu ñëw leen ñu dem la waaye du yoonu dem leen ma ñëw lépp nag mu teg ko ci ak digg doomu ci diggante sharia atab sharia ak fugluk xaqiiqa digg doomu ci diggante ñaar yi benn du ci ëpp benn du ci sab saagal kon loolu mooy première tarbiya ak sëriñ bi loolu mooy lim woote woon loolu mooy lim daan jàngal murid yi ci njëlbeen noonu la wéyee ba nim toxoo Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawal noonu la wéyee ba nim toxoo Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawal loolu mi ko tàmbali woon ci atum assassin njëlbeenu atum assassin mm, muy tolloog mille huit cent quatre-vingt-quatre mm, at la fa am daal di tox si Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol am na fa ñaari lépp nag mbooloo maa ngi fàq di ñëw wet gu ne nit bàyyi ko ak nag yeneen di tax a jóg nag ñii dañoo bëgg a ñëw aju si ci moom ñii dañuy indi hadiya ñii dañuy sàkku ndimbal mu mujj yoonu këram mujj mel ni yoonu marché ci diir boobu yi ci la sañce daru daal fay toxo ndax daa mujj nag diir boobu it euh, ay xat-xat yu bari am digganteem ak mbokk yi ndax ñàkk gu ñàkk a miin doxin wi muy doxe ñi di ko bu ndoxataal ñi di xeex ak taalibe yi ñi di leen jam lu ne ay xew-xew yu bari am na fa ba tax daanaka loolu bokk na ci li tax mu sanc daru salaam tuxu fa muy randu mbàkke tuuti rek tuxu noonu ci atom ci njëlbeen ko atom desesin muy mille trois cent quatre ci ati e, juddu kan Isa mille huit cent quatre vingt six daru salaam boobu ne dafa daan ba tey e, di dem di wéet ci àll bi moom képp di wéet ngir jaamu yàlla ak diyaale ak boromam ci xur yi xur yooyu xur xur yi dend ak moom woyte ab diir dellusiwaat ci njaboot gi ci Darou Salaam foofu nag ci biir loolu ci la Touba sosoo ndax dafa am benn xalwa muy wetaay wu yàgg woom dem ci àll bi woo xam dañoo mujj nag njaboot ji ak taalibe yi ñëpp dañ cee mujj jaaxle ngir yàggum yàgg ñu jóg nag ni fokk ñu gëstu ji ko gëstu boobu nag ay nettli yu bari yu wute am na ci ca jan jëmm moo ko euh, doon seeti walla jëmm yaa ko doon seeti ba gis euh, ba fekk ko fii ci dëkk bi ci béréb bii mu nekkoon te mooy Touba waaye nettali bi sëriñ Moustapha Abdourahman Lo nettali euh, moom lañ tànn moom lañuy tànn indi ko nee na ña ko doon seeti mat nañu fukki nit ak juróom fukki nit ak juróom ñoo jógoon ngir di gëstu ci sëñ bi ba fekk ko fa nekk muy Tuubaa tey ñooñu ko doon seeti dañoo gànnaayoo ay xeej ñu yor ay jaasi ñu yor ay fetal dugg ci xur yi ba dajeeg benn rëbb bu ñuy wax buuba jax euh, bañ ko ko laajee mu tegte leen di leen ron bëgg gële di gisoon naa fa benn waay bu mel ni ngeen wax daal ànd ak ñoom jiitu ñu topp ci ginnaawam bañ seen euh, jëmm ji bi ñu ko gisee lañ xam ni jëm sëriñ bi la ñu daldi di bóof ginnaaw buñ nee tekk ab diir sëriñ bi woo leen waxtaan ak ñoom wax leen ni leen eh, li ma bëggoon diir bu yàgg ba tey eh, sunu borom may na ma ko mooy pàkk bu laab bu ma doon gëstu di ñaan yàlla mu may ma ko ngir ma mën faa wéy dafa jàmm yàlla may na ma ko mooy fii ngeen nekk tey daal leen di jox ndigal ñu dellu daru salaam ngir indi ay jumtukaay yoo xam ne danañ ko fi mën a euh, taxawalal këram fukki nit ak juróom ya doon wër moom la euh, seeni tur moom la sëriñ Moustapha tudd seeni tur mooy ku ñu wax Omar Jalayaabe ak sëriñ Jori Ka Madaamin Njaay Ahmadou Guèye sëriñ buso Bousso sëriñ Massamba Bousso Adama Sall sëriñ Mayasin Ummi ak sëriñ Ahmadou Muxtaar Jeng ak sëriñ Muxtaar Pend Jeng sëriñ Daam Abdourahman Lo ak sëriñ Ajara Mbàkke ak sëriñ Momar Mbay ak Ibrahima Jeey ak ku ñuy wax Omar Soose ñii la wax ni ñoo àndoon jëli ngànnaay di wër ba gis sëriñ bi ñoo ko jëkk a fekk ci béréb bii muy Tuubaa googu bañ ko fa fekkee mu jox leen ndigalul dellu Daru Salaam euh, jëli ay bagage yoo xam ni danañ ko mën a taxawalal kër fii loolu mi ngi amee woon ci weeru euh, léegi nag ñu tàmbali liggéey bi ñu di jëli bagage yi tàmbali liggéey bi ci weeru muharram ci atom wasasin te mooy mille Eh, ci gàddaay gi tolok 1888 liggéey bi mi ngi mat ci wéru saabaan mu doon kër gu yaatu go xamni ni eh, gudde na eh, juróom-ñaar fukki mètre yaatoo juróom-benn fukki mètre ginnaaw bu liggéey bi àggi la fa sëriñ bi ànd ak njaboot gi toxu si fa waaw muy toxu si Cheikh Ibra Fati ma nga ca Cheikh Ibra Fall ma nga ca ak fukki talibé ak juróom-benn daru salam mu may ko mbokam Serigne gawan ak juroom ñen fukki talibé ak juroom ñen ci ña jaayante won ak Serigne bi gina bu mu agsee Bawol ñen ñep da bolé bolé boole leen ak Serigne gawan fofu ci Mbàkke Bawol. ginnaaw bu Serigne bi saxé Touba la tàmbali di so ci yenen kër Darul khudus mu ci ko ngir difa fa ak boromam ak bind ay khassida ak difa defé yennati khalwa di fa wéet darul mën naan sëriñ bi sanc ko daan fa def eh, di def ngoon gu jot mu dem fa toog fa ba mu guddi mu dellu si Touba fanaan si fi darul rahman te mooy fii sëriñ Soxna bu nekk tey eh, sëriñ bi sanc ko ba tey daan fa eh, dëkkal ay gan gani sëriñ si ak boroom xam-xam yi daanañ ko wax daru naar wax ni dafa daan dalal ay gani naar sëriñ bi digal ñeenti ci taalibe yu mag yi ñu sanc ay kër yi tarbiya ci peggu Touba digal sëriñ Cheikh Ibra Njaañ mu digal ko mu sanc ak kër ci ndijoor sëriñ Masamba Diop Saam mu digal ko mu sanc ak kër ci càmmoñu Touba sëriñ Ndaama Abdourahman mu sañ digal ko mu sanc ak kër ci penku te mooy ndaamaatu Cheikh Ibra mu digal ko mu sañ ci këru tarbiya ci soowu dëkk bi moom itam muy Touba Fall noonu la xur yooyu tàmbalee dunde nit ñi tàmbali nag di laxas di fi ñëw ñenn ñi dañoo ñëw ngir siyaare si ña ca des it ñëw ngir euh, bokk ci mbooloo mi tarbiyewu ñi daan tarbiyewu booba matoon na fanweeri nit noonu lañ wéyee ba ci atum jaysasin te mooy euh, atum jaysasin mooy mille trois cent treize tolloog mille huit cent quatre liñ gënoon di liggéeyee jamono boobu yëpp ci diir boobu yëpp mooy euh, tarbiye rek tarbiye tarbiye nag ci ñaar ci jàngale ak liggéey jàngle ak liggéey jaamu yàlla jàngale liggéey jaamu yàlla sëriñ bi tànn sëriñ daam abdourahman mu jiite njàngilem alquran mi maam Thierno borom daaru mu tànn ko mu féetewoo njàngilem xam-xam mi moom ci jëmmi boppam nag mu féetewoo moom euh, tarbiya gi ak tarqiya euh, tarqiyatu ruux tarbiyatu ak doon euh, al musrif al am mooy yilif leen ñoom ñëpp nag di xoolaat njàngale ma ak liggéey ba lu ci ne li ëpp ci liñ mooy bay waaye at yooyu ñeenti at yooyu yii mooy at yëm jot a def Mbàkke Bawol ak Daru Salaam ak mu ñëwee tubaab mu siiw fi siiw bu siiw lool ba ñëpp di yéemu ci moom te boobu mu ngi toll ci fanweeri at ci diir boobu ci la sëñ bi doon wër réew yi wolof yëpp wër na ko daanaka fii ci senegal yëpp wër na ko dem na Saloum euh, ba dem ba Waalo kajoor ak bawol fépp wër na ko kilifa yi nga xam ni ñooy nit nit ñu baax ñu fi daan dund ak ñu faatu ñëpp mu siyaare ji dem naka noonu di boobu ci la euh, siyaare ji dem Mauritanie dem na seeti Mauritanie dajeeg lenn ci borom xam-xam ya ak wàlli yi ba jële ci ñoom ay ijaasa wirdi yim jëloo wirdi yim yoroon nit mu jëlewaat ko ci euh, ña ko ci kilifa kilifa ya ko yor foofa foofu la jëlewaat wirdul xaadir ci eh, ci baaba ci sëriñ Cheikh Sidi baaba baaba baabawul Cheikh Sidi ci bappam gën naa bu mu ko jëlee ci baayam jëfandikoo ko ay at la ko jëlewaat ci moom direct mu mel ni kon jëlug ijaasa la jël kooku mu ko jëlaat ci Cheikh Sidi jëlug lijaasa la dem na it seet si barabu eh, Cheikh Sidil Muxtaar foofa ca Tandoox naka noonu mu ngi fekk baaba ca dëkk bi ñuy wax maymun tagg na leen ci jamono boobu la woy as silsilatul qadiriya mi ngi tàmbalee ci قال الفقير أحمد anhu afa wa ورحم العلي الحمد لله الذي لنا جعل سلسلة ننجو بها عند الوجل ثم السلامان على محمد والآل وصحبه وكل مقتدي ما دام أهل الكشف والعرفان توصل سالكين للرحمن هذا ولما جمت الهموم في كلكلي واعتادني الغموم وقام إبليس العظيم المكره يوسوس الفؤاد كل دهر ولم يزل يريد أن يسيء أن يرديني بكيده الماهر كل زمن حتى يكاد يسلب الإيمان في القلب كي يحدث للحرمان فوضت أمري إلى الله البصير بكل عبد من جليل وحقير مشتكيا إليه بالتوسل بسعادة الغر ذوي التسلسل عساه أن يجمعني في حزبهم يوم الجزاء منخرطا في سلكهم رتبتهم على تناسق كما تعاقبوا تسلسلا منتظما مبتدئا بشيخنا سميه غوث الزمان جده الولي فقلت طالبا من الرحمن نيل, نيل الهداية مع الرضوان بسيد الدم المزايا بابا من كل خير ربي لفتح بابا نون لا تامبلي قصيده غو تدو السلسله القادريه noonu la ko wooyee eh, tudd ci ñi eh, wirdu xaadir jaar ci seen loxo mu tàmbulee ko ci eh, baaba te mooy baaba wulu Cheikh Sidiya noonu la leen wooyee kenn par kenn ba àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ci ay ñaan yu am solo loolu mu woy loolu moo tax lenn ci e, sëriñi moo sëriñi naar yi laaj nañu ko ni ko kan mooy sa sëriñ mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ni ko waaw lu tax kon ngay tudd àllu Cheikh Sidiya di leen e, tuddee ay sëriñ nag di leen tagg yi boole ci sëriñ bi ni leen booba dama mel ni gumba guy sàkku ku ko gindi dana ko sàkku ci ko wi dana ko sàkku ci xamul waaye ba ma demee ba boroom yoon wi feeñu ma te mooy njiitul diine islaam xëcc ma jëme ma ci boppam muy sonne gu sunu boroom def sama diggante ak moom foofee nag lépp lu doxoon sama digganteeg moom day daal di wadd mu des fi moom képp ànd ak nag ni sëriñ soosi dinaa leen di jokk ci yàlla ak bëgganteek ñoom ci yàlla ak jëriñanteeg ñoom ci yàlla waaye li wér mooy yonente bi sallallahu alayhi wa kenn doxul sama diggante ak moom wër googu mu doon wër sëriñ si moom la leeral ci lenn ci ay xasidaam ba tey di leeral tolluwaay yam toll woon ak jaar-jaar yam daan jaar ñu koy leeral di wax ni tàmbale ko ci tagg sant yàlla alhamdulillahi alladi sallamana min arrada wa rushdahu allamana li maa ngi sant yàlla mi nga xam ni munu musal ci ay alkande te moonu xamal ak njubam sallamana bil mustafa al muxtaari salla wa sallama alayhi al baari wa alihi wa sahbi al axyaari wa kulli taabiin al abraari yàlla mi nu musal ci daraja yonente bi salallahu alayhi wa sallam te mooy ki leeral ngir yi sayidina qad awdaha al manahija liman yuridu an yakuna walija wa baadahu ni moo dimbule nit ñi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bi aw rasahu sahaba fi dalika al islaahi bil ijaba ginaaw bi sahaba yi wutu ko ci defar goge wana ba anhum fi ittiba' al-bari mashayikh at tasawuf al akhyar ginaaw sahaba yi ñaleen wutu ci top sunu borom moy serigne tasawuf yi walam yasaalu yataaqabuuna li yuslixoo wa yatawaarasuuna mosuñu dañ di wuutoonte ngir defar di donnante taxaaqabu fi sha'ni diinillahi qarnan fa qarnan taariki nawaahi mu ni ñoom wóotoonte nañ ci mbirum dina yàlla ji xarnu ci ginnaawub xarnu bàyyi mbooleem lu suñu borom di tere mujaddidiina bi imtisaalin wajtinaab li wajhi baaxin minhu jaa'ana alkitaab di yeesal ci ndig ci topp ndigal yàlla yi ak bàyyi ay tëram ngir jëm yàlla walam azal munzu aqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taiba man mii nag musuma dañ dëpp ma xelloo di sàkku ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya moo tax ma daan lu ci diggante borom xam-xam yi ak wali yi wa amali wa qawliya ànd ak sama yéene ak sama jëf ak samay wax kay laa yadiha umri itaaba bi xusni dannin qaadal di e, e, sànku ci ab coono ma ànd ak ku rafet njort nag moo ma womatoon xatan saraftu ama jaysasin ila xidmati xayril alamina fil ilah ba ni ma wëlbatikoo nag ci atum jaysasin jëm ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musalliyan maham tidaahin kulla aam wan xaada kullee ila rabbi anam bi mu sooboo ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag li mu boole mooy julli ci yonente bi ak di ko tagg euh, sama lépp nag wommatu jëm ci yàlla fa xaadani min al baraya ajmain ilayhi bil maahi wa zahsahal ayn yàlla nag wommate ma ci mbindeef yëpp xëcc ma jële ma ci mbindeef yëpp Euh, euh, jëme ma ci moom ci daraja yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa kaana ma waqaa ama jay sasi loolu moo waral la xewoon ca atum jay sasin xew minal xuróo ji ci génn gu ma génn mooy jaayante gu ma jaayante yonente bi ngi fas ko yéene liggéeyal ci la yàlla jaarale sababu ma génn dem ci loxoy tubaab yi ñu teg ma natt yooyu ñu ma teg bi xidmati lil mustafa wal mujtaba salla alayhi man hadaahu wajtaba kon loolu rek ba tey dana leeral ni euh, yoonu géej gi ñëw ci kanam euh, la ko sabab lépp mooy soobu gum soobu jaayante ak yonente bi ngir liggéeyal ko ci tagg julli ci moom ak cër yam war a amee ci loolu yi nag euh, moom la sunu boroom jaar la ci mottale ko ci nattu yooyu ñu ko doon teg kon sabab bu leer la am ci mbirum biir muy génn gi mu génnoon dem ci géej gi ak jaar gi mu jaar ci loxo tubaab yi sëñ bi wërdu saasali ak wërdu tijaan yi yëpp jël na ko boo fii ci euh, tukki yooyu ci la jële wërdu seeni sëriñ yooyu jëfandikoo juróom-ñetti at jël na wërdu saasali jëfandikoo ko juróom-ñetti at jël ak tijaaniya jëfandikoo lu mat lu toll noonu diir boobu dajal na ci lu bari ci ay euh, taalif yi tasawuf yi sëriñi tarixa yi ak borom xam-xam yi lu mel ni taalif yi euh, Cheikh Sidi Moxtaar Kunti yi ak euh, doomam ci tarixa xaadiriya euh, yëpp da dajale naka noonu taalifu euh, tawaalifi tarixa chadaliya ak seeni ahzab lu mel ni téri ibnu abbad ak zarruq ak ibnu ataillah ak nag yëpp daf ko dajale naka noonu dajale téri tijaan yi ci lu mel ni jawahirul maani ak rimah ak al jaysh ak al bughya lépp daf ko dajale naka noonu seeni wird ak ci tasawuf ak yeneen téere yu am solo lu mel ni téere bi imam Yadaali xaatimatu tasaw bu Yadaali ibnu Mattaal ci ña leen jiitu woon it seeni téere mu dajale ko lu mel ni xóotul xulóob al maddaxal ak ihya ulumi diin ak yiñ jële ci Junaydi ak siriyu saqti ak Maaruf al karxi ak abu yasir al bustaami ak ñi nekk ci arija gaa ñi nekk ci arrisaalatu xuseyriya ak xeliyatul awliya ñun ñëpp ñu ci bari dafa dajale seen i dajale seen i téere jël ko aju ca dund ko yëpp daf ko xool ak itte ju kawe ak jublu gu dëggu dajale ca la nga xam ne moo ko réewoon lépp mu fekk ko ci biir yooyu mu gën a dogu nag jëm ci suñu borom gën a sori mbindeef yi loolu yóbbu ko nag mu gën a sóobu ay xalawaat dugg ci àll yi bëccëg bépp mu di ko woor di fanaane taxaw di naafil la du nopp lu ci sikkar jàng alxuraan guddi ak bëccëg benn itte képp di itam jubloom gépp di genn muy ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi gëlëm ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam bari loolu mu daan julli ci moom ak di ko tagg xëccu gu tar yi nag ci la ko suñ borom tànnale boppam tànnal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon tànnug yàlla googi ca asal moo waral mu mel na meloon ba mu juddoo rek la ko mel dañ ko bind mu doon rabbaani mooy nitu yàlla xamul leneen lu dul mbirum suñu borom garabu tawxiid sax ci xolom waaye nag euh, aada lii aada li baaxoo am mooy ba noppi eh, suñu borom teg ko ci xikmaam suñu boroom lu ëpp ci lu muy dogal daf koy jaarale ci ay sabab mbir yëpp mbir dogalam yëpp daf ko jaarale ci ay sabab moo tax ba ci ndox jëm ci yàlla sax mënta ñàkk nga sóobu ca yoon wa nga xam ne moom lañ baax woon moom lañ xamoon naka jekk ak roy ña la jiitu woon comme ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallama doon roye jibril naka noonu suñu borom digal ko it eh, summa awxaynaa ilayka an ittabi millata ibrahima xanifan comme topploo ko sunu maam ibrahim kon loolu mooy eh, mbirum yàlla ci kaw suuf nga xam ne lu mu ko tànn tànn ak lum man manoon a jële ci moom direct rek li lim lim tënk ay mbiram moom suñu borom mooy la muy dogal daf koy takk ci ay sabab moo tax mënta ñàkk jaar ci yoon wi ñëpp daan jaar comme ni yonte bi daan royee ci Jibril moom mu sóobu euh, ci yoon woowu di roy jeexeeti nit ñu baax ñi ko jiitu woon ak donte loolu tekkiwut nit ñi dañ ko gën ngir yonente bi jële gi mu daan jële ci topp gi ñu ko topp loo Ibrahima mbaa jële gi mu daan jële ci Jibril taxut ñu gën ko boroom xam-xam yi tasawuf yi dañoo saxal ni ki nga xam ne mun jasib la nga xam dafa xëccu suñ boroom xëccal ko boppam ci soppal ko boppam xëcc ko it ba mu àgg ci yàlla it mënta ñàkk mu wàccaat ba ci suuf mu tàmbalewaat fii ñëpp daan tàmbale tàmbale ci njëlbeen ga rek doxaat ji doo ko yéegaat moo tax sëriñ bi tàmbulee ci jàpp ci sëriñ si ko jiit woon ak sàkku leen a xam ak topp seeni i jeexi topp seen i ndigal loolu sonneek suñu borom la gum ko sonne gum sonne ay mbiram jaarale ko ci yoon wi nga xam ni euh, ci la daan jaarale mbooleem nit ñu baax ni sëñ bi doonte dafa judduwaale tawxiid am ci martaba bu kawee it taxul mu mas a xëccoog benn boroom xam-xam maarifa lam xam mu sa xëccoog kenn ab xaalam yemut it ci jële ca kaw rek ni naa jële ci Cheikh Ibrahima Abdou Khadir Jilani maa Cheikh Ahmad Tijani waaye ñi ci suuf ñi muy jëkk jot rek te jàpp ne ñoo ko fete kaw ci ñoom la jaar yéeg jëm ko ba àgg ci ne yéeg nag jàll ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam muy li suñu borom baaxee dox ak ay nitam baaxoo doxee ak ak ci nitam mësta woyefal topp kenn mësta woyefal topp seeni jeexit musta bàyyi dara ci li war ci topp leen te defu ko li war ci teraanga digganteem ak ñoom it si cee sàggane dara luy néew ak bëri moo tax suñu borom loolu moo ko jagleel ngir mu mën leen a donn seeni maqaama mu mën koo téye waaye nag ba mu demee ba doon leen téye ko it nag taxawul taxawul fa ñoom yàlla moo ko yéegal moo ko yéege mu jàll ngir daf ko waajaloon ngir mu war a donn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu borom bi mu ko yéegee nag euh, fiir gi mu ko fiire digganteem ak lépp fiir gi mu fiir digganteem ak lépp bëgg mu féeteeg yonente bi sallam du ci booyee dara moo tax mu rekki lépp jaarle ko ci ay natt yoo xam ni dana dem ba cër boobee mu ko waajee waajaloon mu man caa jot moo tax sëriñ bi leeral na euh, ka ko laajoon wax naa ko léegi ki ko laajoon ne ko kuy si sëriñ ma ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ci tontu la tontu woon ak niru ndar mu ko laajee ba laajaale ko moom fan la jële wérti yi daf ko xamal ne ko dama ko jële woon ci ñu ma jàppoon ne ay mu xàqi lañ mooy ñu wér lañ ginnaaw bi ma dem ba am lu ma leer ci na ma ko yaakaare woon demee woon sama boroom yóbbu ma ci géej gi jox ma ñetti wérdi yépp jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bari gu ma bari lu ma koy liggéeyal jële ci yonente bi it mbir la moo xam ni euh, moom bu dee ci biir cadre tasawuf moom dafee mutawaatir la fi ñépp daanaka ñi soobu ngirum tasawuf jaamu yàlla gu set wecc ci sellal seen xol seen diggante ak seen borom dara raxu ca amuñ kañaan amuñ njësal amuñu rëy mbooleen ñi jaar foofu ñi dem ba qualifié ñu ca bare bare bare dañoo dem ba mën a jële ci yonente bi direct mu sax ña cay werante ñeneen lañ ñoo xamante ne jaruñ ci ngir moomu ñoo ñu jaar ñu bare bare ci borom xam-xam yi euh, tasawuf yi doon nit yàlla yu mag yee mag a mag a mag jële nañ ci ñoom ñu ne gis nañ yonente bi yaqasatan dañ koo gis jëhran ci lu du ay nelaw saaraani ci téeréem ba ñuy wax la waaqixul anwaar lim na ca moo xam ne gis nañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jaxran yàqataran laa mën a naka noonu suyuuti yi ci téeréem bi ñuy wax la xalak fii imkaani na nabi wal malak eh, ba tey eh, ma nga cay eh, tontu ñi nga xam ni dañuy wuute ci loolu dañ koy weddi ni mënta nekk indi ci ay tegtal yu bari tegtaloo xadis bi ويتيان النبي صلى الله عليه وسلم وعن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي عند نتائل الربل مم الحافظ السيوطي تحديث بمغيتي صحيح البخاري ومسلم tudd na it wóote ga boroom xam-xam yi wóote ci xadis ba ak yoon ya yañ jaar ba taxrij xadis bi ci yeneen eh, téere ya dul ñaari talwa saxiixay tax nañ ko taxrij ba lépp la génne ba ci ñoo wax ni sax gis gi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dana ma gis ci eh, dana ma gis ña ko bëgg a féetale nii gis gi gisug ëllëg la yowmal xiyaam la sax ba tey su yoote yu weddi na leen ni loolu tax taxsiis amu ci ndax xeetam yépp danañ ko gis yowmal xiyaam ñu ko gisoon fii ci ay nelaw ak ñi ko gis fa ci yam kon ñi dekk laa ni gis nañ ko te xamuñ ci ñoom lu dul ak ragal yàlla xamuñ ci ñoom ludul ak njub xamuñ ci ñoom ludul tegu ci aw yoon ñaari mbir lekk rekk war a mën gëm leen mbaa nga maandu ci waaye ama xuus ci der jullit rawatina wàlli yu di ca wax lu la neex loolu posen la boo xam ni ku koy def la la cay fekk mat nay bàyyi xel mat di moytu foofu mu toll jamono bu ne waaw te loolu ma waxe woon léegi jël nañ ci mbooloo mu bare bare ji bëri ci ahlul xaas lañu wax ne gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel ne Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Abul Hasan ash Al-Mursi Abu Madiyan ak ñu bare bare bëri comme ni mu ko limee ci la waxe wal anwaar al-Qudsiyya noonu kon ci ci la sëriñ bi ajoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab liggéeyam li jëkk ci liggéey bi mu daan liggéey yonente bi mooy taxawal sunna su yonente bi ci ben ba ca mujj ga ben ngeen mujj lepp taxawal sunu yonte bi ginnaaw ba faratay jalle ci xéeti jaamu yalla yépp la nga taxawal ci sunu yonte bi sallam ak di tuddu yonante bi di tuddu ay martabam ay manaqibam ci diko tag ak di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam sallam sëñ mës cadre tawhid tawhid bu set wecc ak liggéey yonte bi alayhi wasallam musko genn comme ni mu waxee dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadu li samadi ñaar yooyu diggante yàlla yonente bi yàlla yonente bi yàlla yonente bi diiniya tawxiidu ilahi nnaasi bi sunnati lmaahi mun al unnaasi wax nañ sama diine mooy tawxiid ak liggéey yonente bi sansun am na fu mu waxee ne kasbiya tawxiidun wa madhun linnabi alayhi taslima gafuur lil muslimi sama pàgguteef lépp mooy tawxiid ak wéetal yonente bi ak wéetal yàlla ak tag yonente bi dundam bépp mu seddle ko ñaari xaaj at mi mu seddle ko ñaari xaaj benn xaaj bi julli ci yonente bi des tagg yonente bi salaatu sitta batta matisa yi al itisaa mooy jaamu yàlla ci sunna si bi sama mooy roy noonu la dunde moom yonent moom euh, sëriñ bi naka noonu murit yim daan yarit ci loolu yi la leen daan yar yàlla def barke ci yaram boobu yi mbooloo mu bare bare bari jariñu ci moom ba ña daan génn ña jëkk a génn mu jëkk leen yeew yi dañoo dem ñoom itam doon ay rootukaay yu ñuy roote ñuy tarbiya di defare ñoom itam ci kenn ku ne nag ca kem na nga tànk ci géejug sëriñ bi rek kii ma ngay jàngale alquran am ci cër bu rëy kee ma ngay jàngale xam-xam am ci cër bu rëy kenn ma ngay tërbiyee nit ñi ci ay jikko am ci cër bu rëy kenn ku ci ne na nga tànq ci moom te yooyu yëpp ni moom la sëriñ bi boole woon di leen ci yar lañ seetlu woon mooy kenn mësu fa bàyyi ko dellu ca fa mu jóge woon te du gis nañ ci ay doxinam ak i melokaanam ak toroxloom akuk farloom ak sax gu muy sax ci lu koy amal njariñ loo xam ne duñu amati sikki sàkk ci ni kii lii mu nekk moo gën lañ nekk ko fa mas bàyyi ko rek foo dem yaa leen di gën a rafet aw doxin gën leen a toraxlu nit ñi lañ daan xëccoo mooy ay daraja kenn ku ne jàpp ne yaa gën sa morom sëriñ bi la muy jëkk def ci nit ki mooy bu demee ci nit ña day defar boppam ba dañuy wëlbatiku di defaru ci moom boppam lay defar waaye du jóg ngir defar nit daana wax ni nit ki day yar boppam ngir mën a àndak nit ñi waaye du jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd ak moom loolu mooy yoonu sëriñ bi da ngay sa bopp ba mën a ànd ak nit ñi waaye da ngay jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd ak melokaan yooyu nag bu ñu ko gisee ci nit ñu baax ñëpp jamono bu ne dañuy xëccu jëm ci lu baax loolu moo waral mbooloo mi di toftaloo di walwali def genn saawa rek jëm si ci moom ñi ay borom xam-xam lañ ñi ay xëriñ lañu ñi ay jàngalekat lañ wet gune mbooloo dafa bàyyi ko ci ñi xam nag ñoo jiite woon adduna ak ñi jiite woon diine doon ay boroomi cër kilifa yooyu nga xam ne ñooy borom cër yi ak borom yi ak jàngalekat yi biñ jëm si ci bi kon niti kese kese yi daan ci ginnaaw ñooñu moom taxuñ dee si loolu moo fàqaale ñëpp ñu ñëw def ay mbooloo ku ñëw ba dem bala ngaa àgg sa kër sax sa xel nekk ci dëpp daanaka doo ngir liñ gisoon ci ak taxawam gum taxaw ci buntub yàlla ak sànni gim daan sànni di duusu duusi xikma yoo xam ne eh, jasaay boo fa am lu mu gàtt gàtt rek nga jëlee fa njariñ lu rëy wax nañu ni eh, dafa am ku ñëw taxaw di déglu sëriñ bi muy wax loolu yéem ko lool bu ma waxee ba noppi mu jox sëriñ Mbay Jaxate sàll wi mu waroon fas mi mu waroon ko joxal ma ko ba sama sàll wii ngir lii muy wax ci yàlla waaye sëriñ bi ne ko nee na ñëw ma jox ko sàll wu gën ci moom wii bu mu ñëwee sëriñ bi tomb ñetti tomb ne ko li mata def ak li matula def ak li ëpp def ñetti tomb yi mooy li mata benn bi mooy li mata def tomb ñaareel bi mooy li def tomb ñetteel bi mooy li ëpp def li mata def mooy jaamu yàlla ngir moo lay may àjjana di la musal ci safara li motu la def mooy fo ngir du la may dara du la musal ci dara li ëpp a def tabu ko sax xel xalaat ba mu ko waxee dafa dindiwaale tom ba sànni ko tabu ko sax xel xalaat nag mooy ak mooy yàlla kon duusi xikma yooyu ba tey la daan duusu fu mu toll ak li nga xam ci moom ci jikko yu rafet ak tab sab goo xam ni suñu borom moo ko ci dimbale ndax la mu ko ci dimbale mooy dafa xëcc àdduna jox ko ko dajalee àdduna jox ko ko ak ak teggin teggin yu rëy yu kawe ak jëflante yu rafet loolu tax aw turam daj tasaaroo réew ni kapp nit ñëpp di banamti ko ak xetam mu mujj doon waxtaani guddi yi ci ëtt yi doon euh, waxtaanu ñi war ca kaw rax lay doon béréb bo euh, doon gëstukaayu gouvernement yi tàmbali ci gëstu buñ dajaloo ci seen i diwaan mbaa assemblée ba tey seeni waxtaan mooy mbirum sëñ bi di lijjanti ba xam fu mu jëm ak lu ko tax a jóg waaye moom radiallahu anhu mësta dañ ca nam meloon di wéet amul kenn kum wéttali kooku dul yàlla amul benn àndale bu mu jàpp bu dul ci yàlla yëngutuwut mbaa muy dal ndale ci Yalla ak lu neex yàlla ak ngërëmul yàlla ci biir loolu benn borom xam-xam du ko mën a bañ kenn ku maandu du ko mën a bañ kenn ku maandu ma nga am xam-xam doo ko mën a critiquer ndax gisuñ ci moom dara lu ñu war a critiquer moo tax ñaar képp lañu woon wala ñett kii day soobu si ànd ak moom kii ñëw lu si kii di xeemeem bu déglu si wutit xeemeem li mu nekk di ko rafetlu noonu la doxe ba daanaka buur yi këri buur yi ñépp ña ca bokk dañoo mujj ñëw jébbalu si ci moom lu ëpp ci buur yi kajoor ak bawal lu ëpp ci eh, ña ña bokkoon ca nguur ga niti nguur ga kajoor ak bawal dañoo ñëw jébbalu si sëriñ bi loolu tax siiw gi gën a dolliku mbooloo mi gën di yokk yàlla yi dogalal ko giir gu ne ña ca ñooy ñëw di jébbalu si ci sëñ bi giir gu ne rek tànneef yi ñooy jëkk ñëw ci sëñ bi kilifa ya ak doomi kilifa ya loolu moom suñu borom dafa ko jagleel ci njëlbeen nga ak ci mujj ay taalibeem dëkk bu ne ak métier mu ne ak jël gu kilifa ya lay doon ñaare ña leen topp dootu leen a topp tey kenn mësta manqué daraja topp ko te du yàlla yëkkati na la ci sa biir nawle ba nga xam ko ba doo ko nattable mu mel ni suñu borom dafa sose ay mbiram da koo fondee ay kilifa mel ne loolu la sëñ bi jubloo junj ci benn lenn ci xaside yi di waqanteeg sunu borom ni ko nafaxta ni fanfa biyal iyaala yaa man xawal amira wal aqyala jariñ nga kon na jariñ sama njaboot yow mi yilif buur bi ak i kàngamam loolu nag dana tax Euh, ñu di ko fuglu gouvernement bi di ko bàyyee xel di bàyyee xel ñi ko topp ndax siiw na waaye liñ ko xamee woon mooy xam-xam ak diine ak ko sàmmante dañu ñu bare bare bare ci nit ñu baax ñi it doon nañ séentu ci moom ak wilaaya loolu waral ñi nga xam ni boroomi xam yi àdduna lañ àdduna képp lañ bëgg te kuusuñ ci yoonu yàlla dañuy daal di eh, tàmbalee lu ñu gis seen diggante ak moom tàmbali ko woon gannaaw ndànk par ndànk ngir ni muy doxee nit yi àdduna yi day feeñal seen awra ñoom ñoom boroom xam-xam yi di àdduna yooyu boroom xam-xam yi diine yooyu nga xam ne àdduna képp lañu doon sàkk seen xam-xam nu sëriñ bi doxee ak niti àdduna yi day feeñal seeni awra bañ gum bañ seeni alal sori gum leen di sori ñàkk gum ñàkk mu daranteeg ñoom loolu day feeñal seeni awra naka noonu niti àdduna yi dañ ko daal di bañ ngir léegi amut ak ñoom maslaa seeni alal bëgg ko murit yi ko gëmit ci doxin woowu lañ daan dox noonu lañ leen di woyafale ba tax na kon boroom xam-xam yi diine yi nga xam ne àddunaa leen taxoon di sàkku xam-xam moom lañu bëgg sëriñ bi day metti ci ñoom naka noonu nit yi àdduna yi it sëriñ bi day metti ci ñoom ngir amul mel ne ak ñoom waaye nag ñi nga xam ni boroom xam-xam yi ëllëg lañ te mooy boroom xam-xam yi sellal te wéral seen diggante ak seen boroom ñooñu moom dañ koy bëgg méngoo ko nangu mbiram ñeyit lañ koy bañe bokk na ci lañ koy bañe murid yi leen woyefal te woyefal seeni murid yi daanaka bu dee boroom xam-xam yii nga xam dañoo bëgg àdduna bokk na ci lañ koy bañe murid yi ni ñu ko fonkee ak ni ko ko la kenn comme doone noonu ngay woyefa ci seen xol noonu ngay woyefa ci seen bët loolu dina tax ñu bañ leen bañ ko loolu moo waral nag njàmbat yi bari ci fànn gu ne len li ñen len li mi ngi jóge ci julit yi yeneen eh, njàmbat yi ci des mi ngi jóge ci buur yi ndax bu dee julit bi la muy ragal ba tax mu di ko jàmbat ku ci dul ko sellal diggante mag borom la muy ragal ba tax mu ni ko jàmbat mooy day ragal mbooloom fàq de mu jëriñ bi tey daana am nag benn lu cëpp seen mbooloo dañ daan fàq dem ci sëñ ba ngir yàlla lañ doon xeeñtu te fee lañ ko yëg buuru adduna bi li tax mu di ko bañ mooy mbooloom lay bañ ñuy fàq di dem ci sëñ bi ndax ba tey loolu dana am na benn benn yu daan fàq ci ñoom yu bare bare sax di fàq di ñëw loolu nag lu mënta ñàkk la ndax yonente bi ne woon na jullit e, ci diggante juróomi mbir lay nekk dana nekk ci diggante jullit bu koy iñaane ak naafiq bu koy bañ ak yéefar buy xeex ak moom ak seytaan su koy réer ak bakkan buy xëccoo ak moom te it nit koo xam ni da ngaa jekk ki ni fëll ci sa biiri nawle kawe leen fokk rek euh, loolu du ci mën a ñàkk sëriñ bi juróom ñii yonente bi wax ne jullit bi ne yaa ngi ci diggante jullit bu lay iñaane ak naafiq bu lay bañ ak yéefar buy xeex ak yow ak seytaan su lay réeral ak bakkan buy xëccoog yow sëriñ bi sikk amul ci ni moom seytaan yàlla musal na ko ci ragal yàlla wattu na ko ba mënta topp bakkanam ko ñett ñee fi des muy ki koy iñaane ak naafiq bi koy bañ ak yéefar bi xeex moom ngir balaa bi suñu borom dogal ci ab jullit bu mu tànnal ay cër bu ne mu war ci ajaar mu war a jaa jot ci balaa bi nga xam ni képp ku sun borom tànn da nga ci jaar muy aji iñaan ji ak ay naafeq bi ak yëfa bi te yonente bi nee na nit ñi gën a tar ab nattu ci nit ñi mooy yonente yi ñi gën a topp ca gën a topp ca te na ci balaa yu tar yi fitna yi soppe bu réer ak pexey noon bu amum xel loolu it yàlla na tawoon ko ñi soppe lañ bëgg nañ ko lool waaye ak ëmpule ñee doon ay noon ba noo fi bari pexe lool gudd ay xel la jo des nag mooy posé nu jege ñaale yi nga xam ne mbokki diine lañuy ñuy doon ci nit ñi nii rek nga xam ne duñ doon ay borom xam-xam duñ doon ay nit yàlla ba tey ñooñu itam seen posen day royaat di ñëw ci moom jullit yi sax lu bari ci seen njàmbat duñ ko mën a fësal ngeen mbirum sëñ bi dafa leer ci mbirum diine leer ci xam wàllu xam-xam leer ci nekk bu nekk ci yoonu sunna wu leer ak yoonu nit ñu baax njëkk ñi kon lu lu fi des la fa des mooy mbooloo mi fàq jëm si ci moom bàyyi leen nag di dolli ko jamono bu ne ba noppi nag ñi ko gëmit woyefal ñu dul lu dul sëñ bi woyef ci ñoom ñenn ñi bàyyi seen i mbokk bàyyi ñañ xamoon féete ci liggéey bi ànd ak lenn nag ci majso bi nga xam ni duñ mën a dékku mukk kuy woyefal mbirum sëriñ bi ñu ngi xeex ci yoon wi yooyu yëpp nag buñ ko dajalee bokk na ci li tax njàmbat yi bari di tasaaroo ba jafe-jafe rek du mën a ñàkk am bu yit lenn ci majso bi yaa ngi feeñ ñii dañ yéeg ba ci kaw garab ñu fa daanu ci du ben loh loy yep yépp ko bolé moy sabat sabu ndambat du meuna ñak ci dir bobbi ci lañ ragniko ci turu ñu di leen ay ci diir boobu ci la ñu ràññikoo ci ñu di leen wooye ay murit ràññiku nañ ngir sóobu gi ñu sóobu ci loxol sëriñ bi sóobu yoonu iraada ci loxol sëriñ bi noonu ñu sooboo tax nañu di leen wooye almuridoon ndax ñooy mbooloo mi jëkk soobu rek topp ab sëriñ di ko tarbiyawu futti ko bàyyi lépp noonu donte ay xaadira ngi fi woon di ay murit ay tijaan ak nii ñu ko sooboo kenn da ko sooboo wutoon noonu moo tax bu dee boor yi ak kàngam yi ñoom dañ daan jànkonte ak murit jànkonte yu metti fitnaal nañ leen nangu nañ seeni alal lu ne def nañ ne ko mbir mi di gën a dolli ko rek di gën a dolli ko rek di gën a metti waaye nu mu gën a metti nit ñi gën a jàng jëm ci sëñ bi xanaa loolu mooy leeru dëgg ndax xiraq la ba ba ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ab bataaxel di ko woo ci diine dafa wax ni kii di woote diine ji ndax am na fi ci dëkk bi ñu jóge ci réewam ñu ko waaw ñu dajale mboolem arab yi jóge woon Makka doon commerce sa foofu ci saam boobu Abu Sufyaan ma nga ca boobu jëbloogul xiraq li dafa wax ni e, kii ji woote ab yonent ana kan moo ko gën a jege ci yéen ci ak mbokk Abu Sufyaan ni ko man boobu moo ko gën a jege ci mbokk mu ni ko taxaw nii mu taxaw ci kanamam ñi ci des mu taxaw loolu ci ginnaawam ngir nee na dafa bëggoon bu fenee mu xam ko ci ñe ci bëti ñe waaye li ma jubloo foofu rek bokk na ci laaj yam ko laaj dañu ko dañuy dolliku wala dañuy wàññiku ña koy topp mu ni ko dañuy dolliku mu ni ko ndax mas ngaa gis kenn dugg ca ba mujj mu mere ko weddi dem mu ne ko déedéet mu ne ko loolu leerug nubu wala leerug suñu borom bu duggee ci ab xol du ko jënd dara bay bàyyi naka noonu it mbirum suñ borom bu tàmbalee day tuuti waaye day dolli ko waaye mbirum sëñ bi lu lu lu tartar yi gën a bari ci seen diggante ak nit ñi ñu gën a jeng jëm ci sëñ bi gën koo bëgg gën a walwali jëm si ci moom noonu la buur yooyu du defee lañ man lépp ba mujj nañ njàmbar yi ñu daan njàmbar ma ñu yóbbu ko ca gouverneur général ca Ndar euh, tuumaale na fa tuuma yu bare bare gouverneur bi laaj leen leen ana kuy ana seen sëriñ ñu ne ak fan lañ sosoo ñu ne ko seen sëriñ mooy ak Cheikh Ahmad Bamba boroom xam-xam la jaamukatu yàlla la xamuñ ci moom dara ci muy tooñ kenn xamuñ ci moom dara boroom xam-xam yi xamuñ ci moom dara lu ñaaw mu leen kon dangeen leen di génnee ñu dem ci seen sëriñ baatu joxe googu mu joxe ndigal ni génnee leen leen ñu dem ci seen sëriñ ci dëkk ba seen sëriñ nekk te mu jug bawal te mooy Touba loolu yi nag ci lañ amee occasion daal di fàkk dal ci kaw murid yi ci waat gu lakk seeni kër jël seeni mbay dañ amoon ci alal ñu nangu ko bundu yi yu métti ñu bundu yi ko ñu daal di dajaloo ñëw ci sëriñ bi dañ ko jàmbatee mu bind bataaxel moom sëriñ bi gouverneur général wax ko li xew ak ni mu amee waaye gouverneur bi daal di yable moom itam def lu ay gëstoom waaye gisul dara luñ leen war a ragale Eh, gis nañ daal dara sababut mbir mi lu weesu iñaani leen benn buur yee leen iñaane ña des di ay jullit ni ñoom it fiir buñ fiir ci seeni tali bi ak ñi leen daan topp moo tax ñu di leen jàmbat waaye defuñ dara dara dara lu lu leen war a jàmbate noonu nag la gouverneur général joxe ndigal ne nañ bàyyi murid yi ñu dëkk fu ñu bëgg a dëkk li fekk Euh, ràññiku wuñ ci ñàkk sàmmoon sàmmonteeg loi loi générale bi loi rek mbaa ñu ràññiku ci ñàkk a topp seen diine diine islam dam leen digal li fi ràññiku wuñ ci loolu nañ leen bàyyi ñu def bëgg a dëkk ba leen ken defat dara xew mi ngi nekkoon ci diggante mille trois cent six mille trois cent sept yi dal iñaankat yi it dal tuuti waaye jamono boobu sëriñ bi mi ngi Tuubaa Euh, la mu leen daan digal na murid yi it ginnaaw bu mu defee la ko lam lam la mu war a euh, def ci diggante ak euh, ñoom ci wàllu zahir te mooy bind bataaxel ki nga xam ni moo joxe ndigal loolu pour mu lijjanti ko yëpp da leen di dajal nag di leen digal muñ di leen dëgërloo di leen di yëkkati seeni itte ba mu yéeg ci ittey saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax daan leen wax ni leen saxaaba yonente bi day daje daje nañoo lu gën a tar lii ngeen dajal ndax rey nañu ñenn ña ñenn ñi tuur nañu seen i deret ñenn ñi nangu nañu seen i alal ñenn ñi génne nañu leen ci seen i kër te loolu duxul seen diggante ak lañ du sàkku ba dañoo mujj am taggu sunu borom wu leen tagg ne lil fuqaraa il muhajirin alladina uxrijo min diyaarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ni leen muñ guñ muñ moo tax ñu am taggu yàlla ni leen yéen xanaa xamu leen ni ñooñi ñooy seen i bàyyi ci diine kon tiitaange ji ak fetfet ji lu ko war a waral ci yéen te yéen de moo ne xanaa dee war naa doon lu lu tuuti ci yéen te yonente bi mooy seen royteef suñu borom wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal axir muñ leen te képp ku rafet ku ñaawal seen digganteeg moom it yéen ngeen rafetal rek ku ñaawal digganteem ak yéen ngeen rafetal seen digganteeg moom idfa billati hiya ahsan waaw fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa ma yulaqaaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaaha illa du xadin azim lu maa doon nañu ko défendre défendre bu rafet rek yéen ku ñaawal jëm ci yéen na ngeen rafet dem ci moom loolu mën naa tax ñi leen bañoon soppi ko doon ay soppe euh, te loolu ak muñe ko mën a may yéen daal na ngeen bàyyi xel li suñ borom wax ni yow mën a da'u kulla unaasin bi imaamihim xanaa su ñu leen dee woo jiital jiital ma ci seen kanam loolu war na leen war na naa daal seen xel te bu boobaa ka leen di bañ du leen naqari waaye saa bu leen masaan waar dañuy màndi ci ndoxum waaraate moom yi dañuy daal di sawaraat ñu jóg di fecc ñu jóg yooxu ñu jóg daan jël noonu la bi nekkee ñoom foofu yi ba nim toxo Tuubaa dem Jolof euh, toxuk sëñ bi ci Tuubaa jëm Jolof nag jóge Jolof te mooy Mbàkke Bari dem ci tukkib géej gi euh, toxu gi dafa am ay sababi zaahir am ay sababi baatin sëriñ Muhammadul Amin day wax ni Euh, sunu sëriñ di doomi nijaaye yi sunu sëriñ sëñ Mbàkke Bousso mu ne sëñ Mbàkke Bousso moo ma nettali nee na nettali na ko ne ko li sabab euh, sëñ bi toxoo Touba Jolof mooy nit ñi biñ baree ci Touba ba ñenn ci taalibe yi denc ay soxna euh, nit ñi ci desit toxoo ci yenn ci dëkk yi ñëw sanc si Touba ñi doon tarbiyewu daal di jaxasoo ak ñeneen ña ca des loolu yi daa bokk ci li yàq programme bi mu bëggoon dafa am programme programme bi mu nos woon dafa am ponk bu ci yàqu ponk bu ci yàqu mooy li mu bëggoon mooy ñiy jàng xam alxuraan ak xam-xam nekk ci ak wàll ñiy liggéey nekk ci ak wàll ñoom ñaar bëggul ñu jaxasoo waaye li gën a disaat ci moom nag mooy ñooñu di jaxasoo waat ak nit ñi nga xam ne bokkuñ ci ñoom jàngkat yi day bëgg ñu beru liggéeykat yi beru bëgguñu jaxasoo ci biir loolu ñoom ñoo ñii di tarbiyawu ñoom ñii di jàng ñii di ñii di bay bëgguñu jaxasoo nit ñi nga xamante ne bokkuñ ci ñoom loolu benn la ci ba ci desaat mooy dafa amoon cofeel lool ci aji moom sëriñ bi ak siyaar ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba daana ko wax wax na ko lenn ci Euh, ñi daan waxal waxi biir wax na leen mbirum aji boobu sëñ Madu Lamin nee na am na kenn ci euh, taalibi euh, gànnaar yi Mauritanie Mauritanie bokk ci waa Daymaan ku ñuy wax Mohamad ibn Hamd al Abhami wax ne sëñ bi benn at moom yi rek ca Touba wax na ko ni ko ndax am nga cofeel ci siyaara ji Makka ak Madina nee ma ne ko waaw ana fu ma koy jële Nana na bi dima ma demal sa ca sa waa nga waaj te bu at sa mujjug at mi nga nga ñëw balaa at mi jax nga ñëw ndax dama bëgg ak yow aji nana bima di waaj di waajal sama bopp di waajal sama njabot jékki jek dégg yëngutu yi ak tar yi nana imani man inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy taw yu bari rek suñ mbàkki bu sa nak bi eh, lolu amé fer fer jojo am ci ñaari mbir yoy muy jaxaso gi ak bëggum bëgg aji ñaar yoy yu fess xolam dell mom sëriñ bi suñ mbàkki bu sa daf ma wo daf ma wo waxtaan ci ak man di diisoog man ci bëgg sos béréb bo xamni dafa dafay mëna ragnat ràññatle digënt ñaari kurel yoy muy ñi jang ñeneen ak ñeneen ñi ci dess xàjjale mbolo mi tarbiya wu ak ñeneen ñi fi ñew di saar dem ñoom ci seen jëm bopp yi mu xàjjale leen digënté ñi jàng ñi liggé mu fi dal lolu dama ci am xalaat ngir ñi jàng mëna jàng mëna jàng mëna jàngalé jàngale nee na la Tan sëñ daam abdurrahman ngir njàngaleem alquran tànn it rakkam borom daru ngir njàngaleem xam-xam kham mu bëgg leen a yóbbaale ñoom ñaar ak mbooloo miñ yor ci béréb bu yees boobu mu sos bañ faa yóbbaale keneen ci njaboot gi nag ñi nga xam ne boroomu njaboot lañ ci taalibe yi des fi daal ne ma yow nag kon mën ngaa des fii ci Touba doon magoom njaboot gi mu wax ko suñu baat bu si ne ko mën ngaa des Touba yow doon magum njaboot kilifa njaboot gi boo see ñii siyaare si di andi ay addiya bu ñu yam yem fi yow yaay xool daal ba koo ci jàllale si ku ci mën a yegg nga yegg waaye ku mu ci mënta yegg si nga tey ko waaye loolu sa xalaatu bopp lay doon waaye loolu lépp ñu yëgoo ko rek maag yow sëriñ Mbàkke nee na ma dëppoog moom ci xalaat boobu nee na ma ne ko xalaat bu am barke la rafet na incha allah nee sëñ bi daal tàmbalee waaj waaye nag euh, ci soof di waaj waajtaay boo xam ne feeñut ñu ñu néew daal ñoo ko yëg ci ñi nga xam dañoo sës ci moom bi mu ci dogoo nag bi mu dogoo ci dem te booba fekk ne euh, nee na sama way jur muy nijaayam yëggu ko suñ bosoo bi mm, sama diggante moom def ci noppi woon rek daanaka daf ma ko bàyyee bu wóor mel ni ma sëriñ bi mu demee ba dogu it xam ne si ko koo ñàkk yëgal mu dem yëgal ko ko waaye loolu diis ci moom lool diis ci sëñ bosoo bi lool gisaay gi mooy dafa xam fiirug buuri jolof ak seenu ñàkk mën a muñ ndax dañoo wóote daal ak waa Kajoor gi mu nekkoon naka noonu doomi soxna ya nekk foofa yëpp ba tey euh, duñ jox kenn seen doom duñ joxe seen doom daanaka kon ba tey foofa wóote nañu ko ak waa fii te duñ mën a muñ ku ku ñëwee di jël seen doom mu doon ragal rek sëñ bi ñu di ko bàyyi ko ci ñaari côté yëpp doomi soxna yi ak caddu yëpp mooy di ko takkatoo rek loolu rek la doon ragal moom sëñ bi son tere na ko ko waaye du tere euh, jaxran nag daf ko ko tere ci gaaral rek won ko daal dafa nekk ci ay yàqu-yàqu nii ngir bëgg rek xelam dëpp won ko sew-sewi aada yi euh, réew moom yi wax dëkk ba muy jolof mu xamal ko yit ni ko moom bëgg-bëggam moom mii dëpp wut ak seen aada ñoom waaye moom fekk na sëñ bi dogg lool rek comme ni nga xam ni noonu la nit yi tasawuf yu mag yi baaxoo dogo ñoom uh, wéyal seenu dogu dañ ko boole ci seen cosaani naka noonu dogu ci dara bu mu jàgg bàyyi ko it ñoom xeetu murtad lañ ko jàppe daanaka dee sax ko gënal noonu bi laxase ci weeru shawaal ci atum baysasin te mooy mille trois cent douze dem jolof noonu la ànd ñoom dox ba mbàkki bari ngir béréb yi njëkk a jot jëkk ñuy àgg mbàkki bari ndox amul loolu kon mooy sabab sababu zahir bi tax sëriñ bi toxoo tuubaa dem mbàkke bari mu des sababu batin bi lu mën a doon am zahir ak baatin sababu batin bi rek dañuy wax ne ginnaaw juróom-ñaari at ci bi mu sancee tuubaa wala juróom-ñaari at yu manqué tuuti biir weeru koor ci atum bay sasin euh, ni ko serigne Abdul Ahad nak la doon def def li'tikaaf ci Daaru Xudus ci jàkka joo ji jàkk ji suñ bàkk Madina Yasalaatam defaroon da ko moo ko tabax sax ba muy def li antikaaf fale ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu mu jaayanteeg moom ci di ko liggéey bëgg ko liggéeyal liggéey ba mu niseeroon ca atum assasine mu waxee ni waa azhara al xidmata ama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi liggéey bi mi ngi ko feeñal ci atum jeesis waaye xal xolam moom ma ngi ko dencoon ca atum assassin bi mu jaayanteeg moom parce que liggéey liggéey boobu yi ba noppi ni ko nag dama bëgg a bokk ci mbooloo mii ànd ak yow boobu yonente bi mu koy feeñu mi nga ànd ak saxaaba yi ahlu badar nee na yonente bi ni ko ñii ma àndal leen day la ci daan boole nit faat na ndax tuur deret ci daan boole nit te tuur deret faat na la la ci mën a boolewaat nag ab natt lay doon boo xam ni nit dem na ba toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo laaj ko lu mu bëgg lu bëgg lu dul lii nga bëgg te bu demee ba ci biir du ko mën a dékku te bu boobaa dina fa dox yàqule ba faw te yow da ngay sama waaye bopp yoo xam ne bëgg lu ma la loolu ni ko ñetti weer daal moo la see doon xutbul samaan bés ni ko tey mën nañ laa tëbal ñetti weer yooyu nga doon ko waaye nee na sëriñ bi ni ko loolu di baax na lool waaye nag sama gis na loolu te it laa xamul lu mu attan waaye lépp lu sama ruu attan sama jom attan na ko nee na foofee la jaayante ak yonte bi kon ci sóobu liggéey boobu ngir am cër boobu nee na yonte bi ne ko waaye dëkk bii da nga koy génn ndax aar nga ko kaaraange joo xam ni dara lu la naqari mun la fa fekk te euh, lii ngay cër bii ngay sàkku ci ay naqar ak i tiskepp ci lay jaar loolu moo sabab ba ñu waree euh, ba ñu waree rek ca saase la daal di toxoo fa fa dem Mbàkke Bari ba mu demee nit bu gàtt la fa am rek jaxase yi tàmbali ñu tàmbali ko jaxase tubaab bi ba lay xew xew ba foofee lañ ko wooyee mu dem ndar bañ àtte àtte boobee ñu àtte ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ko xam day mel ni bu fekkee dafa wari rek dem kori diggi tabaski tamxarit ñeenti weer la fa am digg wi digg wi ba mu tàmbalee lañ ko wax nga xam ne fukki fan ak juróom-ñett ci waru safar ci atum jaysasin mooy fukki fan ci waru août 1995 ci la atte boobu am ci la génn gi jëlaf am génn gi foofu mu nekkoon mbàkki bari dem ndar sëriñ Bachir mi ngi wax ni sëñ Amsatu Jaxate nettali na ni mu ngi fàttaliku benn bis euh, lépp day mbirum bàtt moo xam ni euh, zahir si dina am waaye fekk ne suñu borom am lu muy dogal ba noppi moo sëriñ si wax na ni sëriñ am sa du jaxat dafa ko nettali ni ko benn bis damaa fàttaliku sama way jur néew ci sëriñ bi di ko siyaare si booba euh, gone la moom sëriñ am sa mi ngi toog ci seen diggante ci seen pegg sëriñ am sa maa ngi bokk na ci la ma dégg sëriñ bi wax ko sama way jur dana ko damay waajal ab tukki bu sori jamono bii nu nee na sama bàyyi ne ko ndax mooy jolof ci may dégg ñun da nga faa bëgg a dem nee na sëñ ko déedéet bokku ci xeetu tukki waaye ab tukki la kon day mel ni bàyyi woon na xel yoonu géej gi googu yi te jàppoon na ko ndax mbirum bàttin la mu dox diggante ak borom naka noonu buux buuxloo gi nit ñi daan buux buuxloo ci kawam di raj rajloo di wej wej di coow kenn ku ne di ko sàkkoo jox cërub àdduna loolu moom dafa mel ni eh, daf ko daan moytu te bëggu koon sëñ ba mi ngi nettali ni ñu mbooloom murit mu bari mu bokkul nettali nañ ma ni ma am na benn bis bañ gu mu bañoon box boxtoo gi benn bis mu ñëw ci jàkka ji nit ñi jëkkante lal sajaada bi ba xaw caa xeex sëñ bi ba mu leen dalloo da leen ne sama sajaada bii de danaa ko teg ci béréb boo xam ni kenn du fa jege kenn du ma ci dimbale kenn du ma dimbale ci loolu gi incha allah ñenn ñi naan ah xaj na dafa bëgg a aji ñenn ñi naan xaj na daa bëgg a dem tukki tukki wax day wéet moom képp ci àll bi xalaat bi lu ñu am ko ci waaye boobu dafa mel ni tukki bii rek la jubloon a junj mu ne xaj na tukki bii rek la jubloon a junj ginnaaw bu mottalee muqaddamatul xidma ndax sëñ Bachir nee nee na ma muqaddamatul xidma bii moo sabab tukki bi génn gi dem ci géej gi léegi ko sabab bokk na ci mu wax ci ay euh, xasid li mu wax ci xasida yi ci sababu sababu biir yi moom sëriñ bi sababu xaybati ya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi wax na li sabab tukki bi mooy yàlla dafa bëgg ma am ci moom daraja dafa bëgg it ma doon kuy ràmm sama nit dafa bëgg it ma liggéey ca daw mi kon loolu ba tey tukkib géej gi ba tey tukkib géej gi kon euh, noonu ni la amee ay sababi zaahir ak sababi baatin waaye day def suñu borom lum namu lu ne fokk mu wutal ko ay sabab yu muy jaar sëriñ bi bi mu wàccee Mbàkke Baari la tàmbali ñuy liggéey kër gi sëñ Modou Lamine ne wax na faak ñenn ca euh, kàngam ya nekkoon foofa njëlbeen gi mel na ni euh, ñagasug wax am na ci ba àgg ci ñoom ñooñu lenn ñoom am na ci ñoom ku wax ni ñun kat doomi soxna yi miinuñ ci suñuy doomi soxna miinuñ ci ñoom lu mel nii ñu ñëw di buur buur la ci suñ kaw daal ñii ay buur képp lañu ñu ñëw fii ngir xëccoo seeg ñun suñ suuf sii daanañ leen dégg nag daanañ dégg seen seen seen i mbir daal ni wallahi mënuñoo fii duñ fi gis aw lu aw yiw ci ñun te it duñ dëkkeek ñun dëkkeek ñun ci suuf si nii ci nii ñu mel duñ ci dëkkeek ñun ci suuf si façon waxin mel noonu am na ci eh, kàngam yi koo xam ni loolu la wax ci bi mu waxantee ak sëñ bi ba ay ñagas ñagas am seen diggante ci bi sëñ bi sañ ci mbàkki bari waaye loolu mooy yoon yàlla bi muy ànd ay wàlli yoom rek jamono bu ne day ànd ñoom ci melaw jalaal ak jamaal ci melaw jalaal ci la leen di seeni noon di feeñoo yoo xam ni dañ leen di weddi waaye loolu fiir gu suñu borom fiir ci ak nitam la ngir bañ mu jàng jëm ci kenn ku dul yàlla sëñ bi ci doyloo gum doyloo yàlla ak wan gannaaw gum wan gannaaw mbindeef wax na yàlla ni ko man huwa afdalu min al ihsaani min malakin aw jinnin aw insaanin ma ñaan la nga gàntal ma moo ma gënal rafetal gu ma malaayika defal mbaa jinne defal ma ko mbaa nit defal ma ko li kaw ni man aykahu wal xataaya li mahwihi al uyuba wal xataaya wa kaw ni ihsaanil bariyati al hijab ngir yow su ma la ñaanee nga gàntal ma loolu mooy jëmmi ak may ngir dafay far ay ayib di far ay ñaawte wa kaw ni ihsaanil bariyati al hijab te rafetalu mbindeef yi kat kii raay lay doon gu dox diggante nit kañ rafetal ak boroomam te loolu dara jël moo tax nee na ma ñaan yàlla mu gantal ma moo ma gënal rafetal gu mbindeef rafetal jëm ci man moo xam nit la mbaa jinne mbaa malaay kon yàlla dafa baaxoo ànd ak ay wàlliyoom ci sifatul jalaal ak jamal jalaal ji ci lay koy ay noonam di feeñoo ak mbañal dox seen diggante ba nga xam ni du xëy nañ ñoom dara du xëy dara ci kenn ku dul yàlla waaye ci sifatul jalaal bi melaw jalaal bi jamaal bi ci la ko suñu borom yi feeñoo ba am ay soppe yu ko sopp womatu jëm ci moom yàlla tàggatal leen ba mu mën a liggéeyal yàlla ci ñoom ñaari melo yooyu noonu la nit yàlla yëpp di doxee yonente yi ci lañ daan dox awliyaaw yi ci la ñuy dox kon ni ñooñu feeñe di wax ak moom waxee ñagas ñii iñaane ko ñii jublu ko jaxase noonu la beneen qualité feeñe boo xam ne ay kilifa lañ yoo xam ne dañuy ñëw di sàkku si ak cofeelu sëñ bi sàkku féete ak moom euh, délégation di ñëw lenn ci kàngam yi di ñëw di ko siyaare si waaye nag rambaaj yi kon dañuy continuer ñoom itam seen programme di continuer seen liggéey rek noonu lañ continuer seen liggéey eh, ñu mën a jokkool ci waa gouvernement bi ñuy jokkoog ñoom ndax caddo yi fi jëkk nekk yi fi nekkoon daanaka ci doole lañ daan dund ak ñu dund ci nit ñi bu gouvernement tubaab bi ñëwee nag ba noonee ñu daan jékki-jékkee ni kirtim ab jëkk nangu la ñu yor mënatuñ ko duñ man lu dul occasion ne ci jaxase yooyu jaxase diggante nit ñi ak gouvernement bi ngir ñu maanaam occasion bu ñu dekkee alal nit ñi ndax foofu ci loolu lañ daan sukkandiku way fee nag jaxase rek kii da leen a bañ kii nanguwut a joxe li mu war a joxe diw mii fitna ju rëy mën naa bàyyi ko ci moom kii mii nit ñi dañ ko fonk di ko kopp koppal léegi mën na fi andi lu rëy rëy mën na fi andi ab guerre te boobu sëriñ bi mbooloo bari ay talib ñu koy ñu di ko màggal te teg ko fu fu fu foo xam ni mosuñoo gis ku fa teg kilifaam ñu lépp di ko leerlaat tubaab yi ni ko nag seen kilifa gi bu leen digaloon ñu xuus gi sax dañ ko xuus xuus ñaar beeg mbiram mën naa dent ci ñoom ci mbirum ña ko jiitu woon ci ay sëriñ ndax comme Maba Jaxu ab xeex la jihaad la woote woon Maba it dafa mel ni ku ñëwoon rek ngir yeggale xare yi Alaaji Omar muy càll ak xare goo xam ni sax na fi lu ma téeméer at jihaatu Cheikh Omar mi ngi jokkaloo ci jihaatu Souleymane Baal jihaat Souleymane Baal mi ngi jokk ci jihaati ku ñuy wax Nasiru Diin ci Sahara bi Nasiru Diin dafa jubloon na roy ci kilifay jullit yi ci njëlbeenu islaam noonu la rambaaj demee jokkoo commandant bu luga ak Jolof doon Leclerc mu doon ko manqué ku tooy koo xam ni mbir yi du ko lijjantil boppam day jàpp ci li koy wax rek te boobu turu sëñ bi àgg na foo xam ni ak bari taalibe yi foo xam ni maanaam ku xamut mbiram rek foog nga ragal ko ñu daan dégg it ni mu woyee fale mbir yi àdduna yëpp ku xamul dëgg dëgg mbiram foog nga ragal ko waaye ku ko xam ne da xam ne ni mu woyee fale mbirum aduna ak nim bañe ab xeex daan faral di lu lool sax wali yi nga xamni ak borom xam-xam yi daan jihad ba seen mbir mujj nax say loolu dana daane ko naqar lool ko xam mbiram daanaka da nga xamni du mbiram waaye ñi ko xamutul fokk ñu di ko tiit rek waaye ku ko xam de da nga xam ni buñ ko yóbbuutoon ca géej géej bootul moom mooy demal boppam ba ca àll boo xam kenn du fa mën a mu nekk fa dafa jàmm yàlla mbaa mu dem ca Kaaba ga dëkkaaleeg moom ngir wét ak jaamu yàlla ndax daanaka géem moo ko gën loon ak fes te loolu labiré gi mu labiré Alburi buuru Jolof ak lam jëkkoon a labiré Lat Joor moo ko fa jiitu woon ab tegtal la ci bu leer ndax lam jëkkoon wax laajoor Joor leer na da ko woon da bàyyi gàngoor gi lépp ñu jaamu yàlla bu bàyyi yàlla dana la may du gën li nga doon alburi bi mu ñëwee lu mel ni lam tontu woon jor la ko tontu ba noppi joxaat ko meneen misaal ndax dani ko ñii di xëccoo ak gouvernement France bi de ni ma leen mën a misaal ñu ngi mel ni nit koo xam dafa jël ay kuy yeew leen di leen yafal ngir bés bu mu leen di xaare di leen di son lool ci dund ba di di di di di di ko raay ngir bëgg xayma am xaymante lool ci mu duuf waaye xar yi dof guñ dof mujj ñu ñi dañanteeg moom ci di ko tere ñàdd bi defee ne ñàdd bi mu leen ñàdd lay lay sàkku si kooku muñ gëmuy muñ ci dañ googu ñu koy dañ lu dara lu weesu rek di ko waaj di waaj xam ni am na bis sàngam mu bu ko soxla te buñ ci àggee mu am li mu bëgg rek daanaka noonu la joxewoon misaal ci tubaab yi tekkeeral gi ñu tekkeeraloon man gi ñu mënoon ñëw ni lépp nangu ko ba noppi di tey lépp li ñu bëggoon a nekk ba jàngat réew ba xam ko ba xam ni ñuy doxe képp waaye nangu ko lu leen yomboon la ci njëlbeen gi ngir ngànnaay yaag na nañ ko waajale daal lépp nag ci dégguk sëñ bi ak ñawuk xelam dafa xam seen capacité ak seen qualité ba moo ko gën a xam buur yooyu nga xam ne buur yi àddina la yoon yooyu daan xëccoo képp sëñ bi ni leen xëccoo gi ngeen di xëccoo ak yéen yéen itam noonu képp la demee nii ma leen wax rek la demee ñiy tudd ay jihaat ak yooyu yépp de euh, daanaka musiba lay doon moo xam ne bu ñëwee ci kaw kookee ko doon wax rek ci lay këpp non la biiram meloon waaye nag yàlla mooy def lu mu bëgg dina ko na ko ay sabab rek bi lekk lark moomu doon xaakimu Louga te mooy commandant Louga bi mu demee ba reconnaître li ko rambaajkat yi wax nag la yóbbu xibaar bi ci gouverneur général ca ndaf ay gouverneur boobu ku tey la daawul jekki-jekki rek ni sabax ci mbir waaye dafa dem ba am luy nuru preuve preuve bi euh, moom la sëriñ fa lu nettali ni Sàmba Lawbe dafay ñëw Jolof ma abdulo ku ñuy wax ma Abduloo dajafa ak moom Sàmba bi waxtaan ak moom ba ko sax Ndar maa nga fa doon lu ci kuy tudd diw sàngam sama kaase léegi ma abdulo jàpp tur woowee ba mu demee Ndar dem ca kooku laaj ko xamal ko ni ko sàmbala bi sama xarit la waxaataan ak moom ba ni ko du dafi doon defal ab kaas bi ko am ni ko anam ma xool ndax baax na bi mu gisee kaase bi euh, jël aw kayit mel ni luy ese ci la ko tamponné ci aw kayit fexe ba lem kayit woowee yóbbu ba mu lemee kayit woowee yóbbu nag ca la bind ab bataaxal boo xam ni dafa bind gouverneur bi général bi ni ko man sàmbalaw bi maag Ahmadou Bamba noo ngi lay xamal ni nangam nangam nangam ba wal ko la ba yóbbu wacc ndax ñun jihad moom tax jóg loolu nag day mel ni mooy preuve bi nga xam nak ci la gouverneur général bi ko nak ba japp ni ko nak lu wër nañ li ñu koy tuumaal deug la léegi bëgg naa jihaat ngir mom yorna aw kayit wuñ tampone te bind nañ ci trop loolu tax mu bind taxel commandant Louga Eh, yónni ko ci sëriñ bi ngir mu woo ko mu mu woo sëñ bi mu ñëw pour waxal boppam boobu sëñ bi dafa am ngànt te dawul def dara ci lu dul ndigal mu yebal boroom daaru moo doonoon rakkam di loxoon di jooram mu wujjil ko waaye ci li sunu borom di dogal dafa mel ni rambaajkat ba doon jaxase daa jaxase waale ba sikkloo gouvernement bi ni leen même bëgguñ ko woo du ñëw te bu ñëwoon it du siggi xool leen ngir xam ne loolu ci sëñ bi tax sëñ bi loolu da ko daan def waaye ak woye faram adduna la du siggi xool kenn bi mu dikkul nag maam Thierno dikkal leen buur bi daal di gën a mën a wéral nag ni kon li ma doon liñ ma doon wax nag kon dëgg la daal di mer daal di jox ndigal commandant bu Louga eh, ni ko nag na waajal ab armu te dem jëli ko mu daal di waajal ab arme boo xam ni sikki sàkk wutoon ci na ab xare mënta ñàkk am ndax jàpp ndax li am na luñ jàpp ci moom loo xam ne sore naa fa mu nekk lool waaye sëriñ bi yëgu ci dara bañ ko noonu nee na mu wax ni mbir mi toll sama ñàkk ñëw toll na leen foofu daal di yebalaat borom yoonu ñaareel mu ngir mu leeral ko commandant Louga boobu ne ko ngant rek ko téye woon waaye bu fekkee ñi ngi koy itteewoo ba léegi moom mën naa ñëw waaye buñ sonal seen bopp bu ñu yàq seen alal ak di sonal seen bopp ci waajal ay ngànnaay ndax fii aw ay amu fi ab xeex it amu fi borom daaru jëm dem fekk leen jeewal sëñ Bachir mi ngi wax ni ba mu demee ba jàkkaarloog commandant bi daal di wax làpputoo bi te mooy euh, interprète bi li ko tax a jóg nee na bi mu waxee ba bàyyi dafa gis commandant bi tontu ko tontu loo xam ne dëppoo wut ak lii mu doon wax ba borom dër nee na ma xam ni cap euh, kii bi euh, entreprise bi dafa soppil samay wax nee ma xam lii moo sabab lii lépp li lépp lépp sabab nee na ma woolu ma dem ca ku ñuy wax Baraan Jaw sàkku ci moom mu euh, entreprise ma sama diggante ak moom nee na bi mu ñëwee mu wax xaakim bi muy euh, commandant bi ne ko dafa tuumaal ki doon interprète mu bëgg wax li mu bëgg a wax pour ma leerale ko ko nee na commandant bi ne ko na ma ko leeralee ba mu ko ko leeralee ba mu dégg ko la la nekkoon ci kanam gi ci ak soppi ko dafa daal dañ ma gis mu daal di kanam gi soppi ko nee mu ne ma li nga def baax na ndax man waa ji waxewu ma ko nii ne ko ginnaaw noonu demee kon du ma ñëw waaye fii lay sax léegi nga dellu ci sa mbokk léegi jox ko bataaxal bi pour mu ñëw fii ëllëg daal ni ko léeg-léeg mën ngaa ànd ak entreprise bi pour mu won la yoon waaye fekk kooku nee na ci rambaacar yi mag yi la bokk borom daal nee na euh, rambaajkat bi mag boobu bi mu xamee ni xam naa mbiram dafa tàmbali di sàkk pexe léegi ba bëgg duma àgg ci sëñ bi te waxtu yi ñu jox faatu ngir bëgg daal waxtu yi wees waxtu yi mu war a wuyu si wees ngir meneen lënt am ci lënt man doon lëntal mu yeexantalu di taayal taayallu ni man léegi tàngoor yu mënuma ci dem nee na entrepreneur bi ma tàngoor yu mënuma ci dem da ngay xaar ba kër gi sedd nee na bi kër gi seddee ñu génn tuuti mun ma léegi du ma dem te réeru ma te boobu reer reer nee na kenn taalagu nee na gannaaw bi mun ma damaa gëmmantu léegi daal dama bu fekkee da ngaa yàkkamti ànd rek kii mu ànd ak yow yow gannaaw bu mu ko bu mu ko wanee meneen yoon weneen nag bu bokkut ak yoon wi ñu war a jaar borom daaru nee na mu boole ma ak benn waaye ba noppi dénk ko ci soo pour mu réeral ma ci lëndëm gi waaye sëñ borom daaru ak jàpp ndeem ak dalam lépp nag dafa amul ñaw goo xam ne kenn mënu ko war borom daaru nee na ma xam nag mbirum waa ji ma daal di koy bàyyi daal di sukkandiku ci biddiw yi daal di euh, jublu rek seet biddiw boo xamante ne nett dafa dafa tim euh, mbàkki bay boobu sëñ bi nekk ma jawal ko ba booru njël laa fa àgg nee na ma fekk sëñ bi mu nekk ci jullikaay ba bagage yi takk na ko ba mu war ko taalibe yi ñu ngi dajaloo war yenn bagage bi léegi taxaw ñu ngi taxaw ñoom tam. nawet bi ñëwee mu jëkkanteeg man laaj ma. ni ma noo def nee na ma wax ko li xew nee na bi ma daat àggal mu mu dog ma euh, ni ma mbir mi lënt na euh, te tilim na tilim joo xam ne aaje na saabu bu mag ak ndox mu bari ak fóotkat boo am dole waaye nag indil ma fas yi rek nee ma indi ko fas yi mu daal ni kon dénk naa nga xam ne ko dénk du sànko kon léegi euh, dénk naa la xam-xam ak xamle ak mbay mi njaboot gi it ñu ngi noonu ci sa loxo kon mën ngaa nekk fii eh, li ci mi ngi mën a nekk boo demee ba àggale li ngay def mën ngaa dellu bawal boo demee it mën ngaa seet bu la neexee nga sanc Touba wala fenn ci sanc yi ma sancoon rek fu la ci neex nga tànn ko sanc fa daal di war jëm ci ñoom ànd ak jox eh, lépp sunu borom tabaraka wa taala li nga xam ni lépp ci loxoom la nekk jafandu ci alquran ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, foofee nag mu mel ni àdduna fa la ko tàggoo mboole mboolem rafet rafet euh, yam ko daan jox ginnaaw bu mbooloo mépp fàqee jëm si ci moom euh, mu mel ni li suñ doon wax ni baabun la baatinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al azab kaw gi ni day mel lu metti loolu mel ni àdduna daf ko wut si woon ginnaaw bi mu wéet ndax fukki nit képp la àndal dem waaye nag lu naqari murid yi ci bis boobu rek neex na ahlu badar ñoom ndax euh, ñoom bis bi mu bi mu tàggook ñoom rek la di jaxasoo ak waa ahlu badar ñu ànd ak moom mooy ruuy malaayika yi nga xamante ne ñoo doon xaa ñoo doon jàppale yonent bi ca badar loolu ci lay waxee ànd googu mu ànd ak ahlu badar ci liggéey boobu ci lay wax ni asiru mahal abradi حين أسير وظن العدا أني هناك أسير muy maa ngi dox ànd ak way baax yi te dem mooy dox waaye noonu yi ñoom jàpp nañ ni maa ngi ànd ñoom di appri suñu masir yi mahal axyaari lillahi bin nabi wa maa li gayrillahi aawdu masiru muy sama dox ànd ak tànneef yi jëm ci yàlla ci daraja yonente bi wala boog ci kat ànd ak yonente bi sama sam waaye musuma dox mukk mukk mukk jëm ci kenn nakudul yàlla ngi tollu won ci jaxase gi cedd yi jaxase serigne bi ak tubaab yi bañ wolu ko ba loolu mo sabab yoonu géej gi yoonu géej gi ni serigne bashir waxe euh, lu ca bari mané su ko xam ci juroom ñaari at yooyu ak nangam ngir contrôle bu bari ak lëm guñ ko doon lëm bañ ko xam ci mbirum sëriñ bi dara waaye sëriñ bi li mu ci nettalil boppam benn bi mu lenn la mu bind ko ci téere bu mu tudde jazaau shakur jazaau shakur al atuf fi jawaabi abdul latif latif ci ahlul xaaj mohamadul muxtaar la bokk ak giir gu baax lañ ñu bari ay boroomi xam-xam lañ ak ñu baax ñu sukkandiku ci tere boobu ak lenn li sëriñ Mouhamadul Amin Diop nettali te sëriñ bi nettali ko ko boppam euh, lenn li ñu sukkandiku ko ci euh, téere boo xam ni benn taalibe ci naari gànnaar yi ku ñuy wax Mad Jang Mouhamadou Jang moo ko taalif Mouhamadou Jang Assane lañ ko daan wax Mad Jang Assane lañ ko daan wax kon serigne bi ni ngi genné mbacké bari bisub gaaw ginaaw buñ ko jaxassé ak tubaab yi mu yónni won borom daru bu borom daru démé ñu gëna taral mbir bi sëriñ bi xam leen ni nag fii aw ay amu fi jàmm rek a fi am ba yebalaat borom darum ngir mu leeral leen ko bu fekkee ni dikk gi ñor na leen ba léegi mu mën a jóg dem wujji borom daru wax ni maa ngi fa agsi ci maa ngi agsi Mbàkke Bari boobu fekk sëriñ bi julli fajar ba noppi waaye it fekk naa mu takk ay bagaasam ba toog nee na ba ma ñëwee ba ma laajee ma leeral ko mu ni ma jegeel ma jegeelal ma fas wi daal di war loolu mi ngi tolloog bisub gaawu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bi sëriñ bi génne mbàkki baar yi te teeg commandant bi jóge woon Louga ñu daje ca fañ wax jeewal ci ngoonu bis boobu yi muy gaaw karaama biñ jëkk dajeel biñ jógee sëriñ ma bañ njaay moo ko nettali sëñ ma lamin te ma nga àndoon ca mbooloo ma doo ma àndoon ak sëriñ bi yor bagaas yi wax na ne ba ñu demee jeewal dañoo ñàkk ndox ngir foofa ndox dafa ma dafa néew lool sartal ak sëñ bi dara ci ndox néewu ci bi ñu jaaxlee amuñ lu may gis benn jëmm mu yor am mbuus mu fees ak ndox ñu wax ak moom déggut li ñuy wax waaye ñu fab ab pot tàllal ko ko mu def ci ndox nu naan sëriñ bi jàpp ndax sëriñ bi euh, dawul julli wenn waxtu te jàppalu ko njàpp mu yees jëmm ja dem xamaatuñ ci moom dara nu xam ni loolu karaama ci karaamay sëriñ bi foofee ca jeewal sëriñ bi wax na ne bi ñu jullee takkusaan bi mu jullee takkusaan ba sëlmal la tubaab bi ñëw ki nga xam ni moo jiite woon arme bi bëgg a wax ak man sëriñ bi nee na ma wëlbati sama kanam jàng bismillahi yi juróom fukki yoon euh, tàngoor woom tàngoon dal di sedd nu fanaan foofu yi ànd ak kenn ci kàngam yi yi ànd ak ñoom waaye nit ku ñul la benn colonel bu ñuul kenn nit nit benn colonel bu bokk ci nit ñu ñul ñi sëriñ bi nee na moom lañ faanal foofu ci jawal loolu ci la sëriñ bi wax bay di wa baadama laaqu alladina xaraju li daarihi wa fi suduri xaraju ساروا معا نحو الوزير مسرعين وعند وقت العصر sallu خاشعين moom la sëñ bi wax ni ginnaaw buñ dajee ña jógoon ngir jëm si këram te booba seen dënn ñoom ñëpp ay xat-xata nga ca noonu la ñu ñoom ñëpp nag jëm ca seen kilifa googee waxtu takkusaan ñu jullee ko fa muy jeewal wa baadaha laaqaahu dalika alwazir wa xawlahu aljeysu wa fihim man yazur noonu la ko sëriñ bi waxe ne ginnaaw bi nag wasiir boobu yi tamoy kilifa boobu dajeeg man ñu ngi ànd ak ar moom ñu wër ko waaye biir arme boobee am na ñu ca àndoon fekk dañuy siyaare si kooku doon siyaare si nag nee na mooy murit ba ñuy wax Omar ñaan sëriñ bi dana Omar dafa génn ngir doon di ma siyaare si tolloog bi ñuy gé bi arme biy génn te waa arme bi xamoon nañu ko te it dañ ko considéré woon dañ ko fonkoon ñu am mbégte lool ci génn gën génn ànd ak ñoom jàpp ni euh, ci seen euh, programme la nekk waaye fekk ni dafa jógoon moom ngir siyaare si noonu lañu fanaane jeewal bañ xëyee lañu fa xëyee dem kokki kokki lañu yendu ba ñu fa yendoo ba jant sox ci guddi ga lañu fa jóge ginnaaw gee wax na ni guddi googu mu fanaan jeewal li ëppoon ci sikar sumu doon sikar mooy inna waliya allahu alladi nazala alkitaba wa huwa yatawalla saalihin dafa mel ne sikar soosu la jubloo junj ci bayit wi muy wax ni ayasa minni llahu inda jeewali iblisa is naadaytuhu biyaa wali bi mu jógee jeewal nag mi ngi jàng alquran di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa yendu kokki kokki googu ñu la wax ni dëkkub euh, Seydil Muxtaar Ndumbe la di nga xam ni mbooleem kum jamonoon teeloon ci waa Kajoor rek moo doonoon sab sang ci xeetu yonante bi ci bis boobu yi mu yendoo kokki fi ci la tàmbalee wooy asmaa ahlu badar ba mu fa yendu nag bu julli gee lañu fa rañaane muy tolloog guddi altine nga ànd ak mbooloo mu bari waaye nee na booba it maa ngi mel ni ku àndul ak kenn ngir jeex gum jeex ci boroomam ak lab gum lab ci jaamu boroomam sëriñ bi booba mi ngi war ci aw mol molu ngëlëm ñu di ko wooye awn allah mu doon mol bu gaaw woo xam ne fasu ñi ñi ko doon jël si fas yi ñi ko doon jël si xawuñu ko mën a dab ba dañu mujj sax naa ko sëriñ bi te ngaa def ndànk mu di wax naan leen ku ñu bu ko kilifaam wooyee wóoru def ndànk guddi googu taw bi mi ngi gis waaye cawarte gépp rek moom dafa xam fa mu jëm muy liggéeyal gum doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ci melow ni ab prisonnier la ci melokaan boobu la ko la ko dikke sëñ bi nee na bi mu demee ba jege Louga kenn ci ñi tubaab yi yabaloon jublu ko laabire ni ko sëñ bi te ngaa ngànnaayu bu fekkee am nga benn sërru ba mën a jëfandikoo ndax noonu yi jege nañu fi mu de sëñ bi nee na baat bi bi mu koy wax sax ci anamu yërmande ci la ko waxe ak ub ñeewant sëriñ bi tontu ko kàddu gu dëgër ne ko yàlla tëlewut te wuutiwut biñ demee ba àgg ba dal kooku yi ko doon wax loolu yi daal di dëppaat ñëw ci moom ne ko man de sëriñ bi damaa jaaxle mu ne ko man de sëriñ bi dama jaaxle man bi may wax ak yow dama la ni nga waaj boo amee ngànnaay nga yor ko ndax noonu jege si nañ nga ne ma yàlla lottut te wuutewut loolu daal xawma lu muy tekki ci lii ma la wax sëriñ ni ko waaw max naa mi li ma ci jublu mooy yàlla du fàddu fàdduwul ginnaaw mi ngi teew ànd ak ñun nag fàdduwut te dara ump ko bu fekkee ne jublu na ma fegal ay noon yi kenn duma mën a dara bu fekkee moo jubloo bàyyi sama digganteeg noon yi kenn mënta dox sama digganteeg noon yi ndax yàlla dafa wax ci alquran ni wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi xayrin fala raadda li fadlihi neena na ko waxe lol nak euh xolam dal di sedd yëf ye leer ci mom mu dal di delu wat waye xissa bobu dinañ ci déggé leeralu mbirum serign bi ak donu gim donu yonent bi alayhi salatu wassalam ndax yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax ni at tawakkulu hali wal iktisabu sunnati faman da'afa an hali fala yad'af an sunnati yonent bi dafa wax ni wakir moy sama mbir fagu moy sama sunna ku mënta dund sama mbir bul lottu ci dund sama sunna waaye mel na ni moom sëriñ bi dund na mbirum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund na sunnaam ndax li muy wakkiirlu wakkiirlu ci boromam teewul daana sukkandiku ci ay sabab sëriñ Mouhamadul Amin nee na sëriñ bi daf leen a jox ak xaside guñ tënke xasbunallahu wa ni'mal wakiilu ni leen xasida gi moom laa aaroo woon ca ngooni ngoonu ajjuma ga nga xam ne dogu naa ci bu ma xëyee dem ci gaaw bi ginnaaw bu ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallama sangeelee boppam wax ma ne ma doxal bul ragal lor xasida ak xasbunallahu wa ni'mal wakiil googu sëñ bi defoon ngir di ci sangewu mu ngi tàmbulee ci hamidtu man yaasimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar mooy sant naa yàlla mi nga xam ne dana ma musal ci seytaane dana musal ci bépp lor bu jóge ci seytaane mbaa mu jóge ci jinni mbaa mu jóge ci nit loolu kon ab dars la ci tawxid bi ñu àggee Louga dañu fa yendu ba takkusaan takkusaan sëriñ bi ni ngi ko jullee ca gaar ginnaaw bu mu jëlee takkusaan ba noppi la dugg train jëm ndar ci biir dugg googu mu dugg ci train bi jëm ndar ci di waxe ci di deyaale goromam subhaana min fil barri wal bahri maa ajral jawaariya wa kullan jamaa subhaana man di jaada bi safina fi xidmati li saahibil madina muy tudd naa sellu yàlla mi nga xam ni Eh, day dawal ay gaalam ci jéeri di ko dawal ci géej tudd naa selu yàlla mi nga xam ni moo ma may gaal gii ma dugg tey muy train bi ci fas yéene liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam subhaana man yuliju fi nahaari al wal israara fi l ijhaari tudd naa selu yàlla mi nga xam ni dafay tàbbal ci bëccëg guddi lu nëbbu it mu koy dugal ci biir lu feeñ kon sabbal yooyu la sëriñ bi sabbal ci biir gaal gi ci biir euh, euh, saxaar googi jëkk tamit suuti lañ àgg ndar ñu dugal ko ci ak kër moo am fa li des ci weeru digg wi ak weeru gàmmu ba ba gàmmu way waaj a jeex sëriñ Mahamadou Lamine mi ngi wax ni sëriñ bi nee ko nekkoon Louga dafa euh, doonoon gorob amiru ndar kilifa ndar gi buuru ndar gouverneur ndar tayit commandant bi nekkoon Louga it dawul wax ci man lu baax du ko ci def te ku bëgg a wax ci man lu baax mbaa nga def ko ci it bu la mënee gàllankoor dana la gàllankoor daal di wax ni kooku gannaaw yàlla moo moo moo sabab yóbbu gi ñu ma yóbbu moom wax it wax nañ ba sonn sax di ko ko tere waaye mu bañ waaye nag bëgg-bëggam it dëppoo ak bëgg-bëggu sunu borom ak dogalub sunu borom lool yi moo sabab génn gi daañu sax ginnaaw yàlla loolu moo tax sama ma yàgg ndar lool wa is yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul maakirin dafa nee dafa mel ni aay bi dafa tatbiiqu ci moom ndax ñii dañ naan nañ ko téye fii fi ndar am ñeneen ñu ne ah fii de ko fi téye dëkk bi dina fees dal ku nit ñu koy siyaare si am ñu naan kii dañ ko war a rey waaye ñu ne ah, rey ba tey gisuñ lu war a mën tax ñu di ko rey am ñu ni dañ ko war a tumuraankeel loolu nag mooy loolu rek ndax sëriñ bi mu agsee Ndar dañ koo wax li ñu ko tuumaal ba noppi ni ko nag benn nga saxal lii ñu la tuumaal mbaa nga dàq ko ndax dañ koy tuumaal ni moo Samba Laobé dañoo waaj ngir xeex ak état français bëgg a taxawal lu mel ni état islamique waaye sëriñ biir bi ñu ko waxee la mu leen tontu mooy indi leen kama ko tuumaal bu boobaa dana leer ni wér na wala wérut waaye saa bu tontoo kàddu googu nag dafay wéy kuus ci njàngum alxuraan ak di sikkar di nattalee di waxtu julli saa bu jotee mu dem julli ji nga xam ne diiru tribunal bi dara dara dara du ko raw ci wenn waxtu du ko raw jamono bu ne mu ngi jàng alxuraan ak di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa te du siggi it xool leen tey loolu moo doon aw meloom digganteem ak ab xaritam walla kuy tuddoo ab noonu digganteem ak borom doole wala ku néew doole mooy koo xam ni jëmm joo xam ni dara amul ci moom ab cër lu dul ak jaamu yàlla saa bu ñu baamoo tuuma ji rek euh, sàkku mu saxal mbaa mu dàq mu gën a sori xuus ci mbir yooyu ni leen daal léegi loolu duma ci dugg te andiwu leen kama kama ko tuumaal ba xam bu boobaa dëgg dana danañ ko xam caaxaan it bu boobaa dina am na ci rambaaj ñi toogoon ci jataay bi ñoo xam ne bi ñu gisee ni e, xuus ci werante wi ak dàggoonte ñoru ko te tiital yi ñu koy tiitalit yëgu ko itam jëpp mu aj ko ci boroomam ak ragal boroomam ak yaakaar ko jeex tàkk ci yàlla kooku dafa fab woyefal gi sëriñ bi woyefal adduna ak ñàkk solo gi àdduna ñàkk solo ci moom mu yan ko ci ni dafa woyefal état bi ni leen kii faalewu leen respecté wu leen tegu leen fenn ndax bu ngeen di wax ak moom du siggi xool leen continuer def li mu doon def wax nañu ne biñ jaaxlee ci jotaay yi am na ku ñaw ku xool ku am xalaat xool ba mujj mu ni leen kii ma gis de nitu yàlla la koo xam ne dafa fàddu ci borom dafa jax tàkk ci boromam ba gisatul mbindeef kii de ni ma ko gisee dara lu ñaaw nekkul ci am xelam ni ma ko gisee dara yi àdduna nekkul ci moom te ngeen ko bàyyi mu dem waaye rambaaj boobee wax ni déedéet koo xam ni dafa ñeme faalewut dara jataay bi mu woyofal ko lépp mu ñàkkal ko solo kenn waru ko kenn warta jëfante ak moom nenn nu dul rey ko mbaa ñu sànki ko sànk bu tëppër la ki nga xam daa bokkoon ci rambaaj yi eh, wax na kàddu googu la la la wax gàllankoor rek ko kàddu gee kee wax ni ni kii nit yàlla waaye nag loolu it dëppoo bëgg-bëggu Merlin te Merlin boobu moo doonoon directeur yi politique yépp ci jamono boobu moo doonoon directeur jataay bi moo doon directeur lu ci wàllu politique jamono boobu léegi nag mu daal di génne ab atte moom Merlin atte bi mu ngi génn ci ñaar fukki fan benn ci weeru août ci mille mu bind ca tuuma yi ñu tuumaal sëriñ bi ak nag euh, lam gis ci ay tegandaay yu mu jàpp ni moo yell ci ñu teg ko waaw loolu mooy nañ ko exil mu dem Gabon am fa ay at taalibe yu mag yi it nañu leen tasaare maanaam nañu jóge tuubaa dellu ci seen dëkki cosaan yañ dëkkoon buñ dajalooti fenn nañu leen gayit ci ñu toog ci seen dëkk yooyee seen dëkki cosaan yooyee ku ci bëgg a génn na nga tàggu na tàggu état bi ba mu jox la ndigal sëriñ bi wax na ni diir boobu muy nekk ndar kilifa njàmbur yëpp dikk nañ fa bëgg a def intervention waaye mun leen bàyyi leen ma rek bàyyi leen ma suma diggante sama borom rek xam na lam nekk foofu la woo wooloo taalibeem bu ñuy wax Mouhamadou njaay Mabé won ko njëlbeenu xasida gi wan ko xasida gi asiru mahal abrari hina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru te la muy wund mooy man bi may dox maa ngi ànd ak ahlu badar noonu yii nag dañu jàpp ne ak périsiño buñ jàpp laa xamal ko ni ko damay liggéey waaye dinaa dellu si te dinaa la fekk moo tax gannaaw bu tukki bi amee juróom-ñaari ak nangam Mouhamadou Ndiaye maa bi moo mi dafa nekk li xissa bi jooy ci jooy yu tar xasida googu ci la sëriñ bi waxee ni xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat bi madhi alladi anhu almadihu xasiru mooy samay kër weet na sama waa kër tasaaroo nañ te dara sababu ko lu weesu rek tagg gu may tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak jeex ci moom di ko liggéeyal kon noonu lañ atte atte bi ci mbir yooyu ci diir boobu muy nekk ndar nag ci la woy asma ci la mottule woy wu mu tàmm asma wala badal yi mu tàmbali woon ba mu tàmbali woon ca kokki foofu la ko mottule foofu ci diir bi mu am ndar ci la taalife ñaari muqaddama fi salaati ala nabi sëriñ bi nee na diir boobu yi daje naa fekk loo xam ni duma ko wax kenn ngir teggenu sama diggante sama borom ndax loolu yarut suñu borom la wa dalika tarbiyatul hayy alladi la yamut ginnaaw bu àtte bi jàllee sëriñ bi wax na ni bisu alxames eh, laa fa jóge ginaa bi ma jógee ci attewukaay bi jógee ci commandant eh, ci gouverneur bi bisu alxemes di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru rabihil awal mu dugg ci eh, train bi dem ndakaaru wax na ni ndakaar ma nga fa àgg jëkk jant bi so bis boobu sëriñ bi dafa wooroon noonu la ko sëriñ Mouhamadou Amin nettale sëriñ bi nee ñu dugal ko ci ak kër mu tàmbulee waaj ngir dog ak bëgg a julli timis ndaw fekk ko fa ni ko ñëwal wuyu mu daal di jóg ànd ak ndaw loolee nee na mu yóbbu ko ci néeg boo xam ni e, wal ayaasu billah ndax dafa lëndëm tëriis tàng lool ba noppi xeeñ waaye sëriñ bi nee bi mu gisee musiba mu muy wàcc ci moom jóge ci yàlla mu xam ni nag menn pexe amu ci mu dul dellu ci yàlla ci muñ ak nangu dogal bi ak sant suñu borom ndax li tax muy sant mooy eh, nattu bi mënoon naa ëpp lii ginnaaw fii la yam rek sant ci war sëriñ bi tàmbali di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nee na guddi googu la dundal ci jàng suratu baqara ak ali imran di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla leeral ab dënnam mu dal xelam dal ci yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax alaa bi dikrillahi tatma innul qulub neen sama guddi tey ci yàlla sëriñ bi mi ngi wax ci kooki sabab génn gi ak néeg bu lëndam boobu ñu ko dugal ci lay wax bayit yi nafa li gayrillahu fi ndakaaru kulla adan li ida dakartu dalika almabita wa صارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن ذب عن الماهي nee na saa bu ma fàttaliku fanaan moom yi fàttaliku buur boobu yi ak saxuwaay boobu yi sama bakkan li mu may woo jëme mooy jihaar ak ñoom ci ay xeej waaye nag yonente bi moo dox sama diggante ak jihaad sëriñ Mouhamadou Lamine mi ngi nettali ni sëriñ bi ne dégg na sëriñ bi di wax ni koo kii nga xam ne moo gënoon taxaw ci génnee ma di nga xam ne moo tax may wax noonu ni bay woowu xam mujj nee na ko bi ma nekkee ci géej gi damaa dégg ñu ni dañ koo mere moom itam ba xool ba xam lu ñuy def ci mbiram bañ demee ba ca mujj ga ñu gis ni dañ ko war a tumurànkeel moom itam ne am benn waay bu ni kii kay ginnaaw bu ngeen bu ngeen ci dee def dara yóbbu leen ko ca sëriñ boobee nga xam ne moo ko tumurànkeel la génn moom itam dañ ko nee na xalaat boobu ñu dëpp ak moom mu doon tiis wu bàyyi ko ci yàlla jëm si ci waajo ji nga xam ni day mel ni lu toll ni lam liggéeyoon rek pay ji tàmbali naa feeñ ci moom ci àdduna ndax moom itam dañ ko mere e, tumuraanke ko sëriñ bi neen yëguma lu dul ñu ne ma kookee muy commandant boobee mi ngi fii ci e, mi ci jësira bi mooy xaj na benn muy maayomba mu am fa diir di ma nëbbutu ne ngir ragal ak am kers waaye nag lépp daana wax commandant bi ñu ma boole naa ko nag na moytu sëriñ bii na ko moytoo def lu ko naqari ndax lii ma dalkat moom nii moom a ko teg ñu ko fexee ba su dégganteeg moom bu ci doxalee dara lu li nga ko war a jox li war weer wu ne li nga ko ci war a jox nga def ko jox nee na loolu sabab na eh, commandant boobu yi ñu ma boole noonu foofu ci ca ci ca ca dun boobee mu ju sedd ba mel ni glace jafe jafe-jafe yam amoon it dafa ko doon ak jàppandi nee na nag bi mu ñëwee ba la mu tàngaloon yàlla seralewaat ko ci moom lañ ko delloowaat fa mu jóge woon ginnaaw bi lañ ko tumuraankel mu dem xaay xaay gën lañ wax ni benn bambara moo ko fa njabar mu feebar ba foofa la faatoo moom commandant boobu noonu nag la yàlla terale ay wàlli yoon ci di yëkkati ay soppeem waaye noonu it lay terale ay wàlliyoom ci toroxal ay toroxal seeni noonu ak delloo leen suuf delloo leen gannaaw sëriñ bi naan bi ñu xëyee nag lañ xëy bisu àjjuma di bis bi jëkk ci rabi xusaan yi jëm ca gaal ga wax na ni ma dugg ci gaal gu ndaw boo xam ne ci lañuy jaar pour dem ci gaal gu mag loolu mooy looco sëriñ bi nee na bi ma àggee ci gaal ga waa gaal gi dajeeg man ci kanam yi ñuul kukk ngir seeni xol daf doon baj baji ngir euh, ragal ragal gum ragal ahlu badar ahlu badar ñi ma àndal waaye ma itam gëstuwuma leen ngir xam ni sama borom man mii la àndal ريم بي نانا فوفو لا تامل يدي واي خسيد غوم تنكي و امري الى الله ان الله بصير بالعباد خسيد غي ميغي تامل سي ودادي لربي من تعالى عن العدد وحمدي له اذ كان لي وهو ذو مدد ريم بي نانا سي ديغ غال غي مبولم بري سك ني ما دي جوي مبولم ميكو فا فك شيخ ابراهيم فال سي لا بوك ريم gaal googi yenn na fa bëccëgub lëmm ak guddi yenn na fa fanaan ci cheikh ibrahima mi ak gaal gi ci la sëriñ bi waxe bay dii allamani arrahmanu fi safina bi annani xadimu del madina mu ni sama borom xamal na ma ci biir gaal gi ni man mi kuy liggéeyal borom madina la wa qalat safinatu lmumtalia qaylulatan maa almabiti bilfia nee na gaal gi mi ngi fees dell waaye dafa yendu fanaan ànd ak kuréel bi mooy dañ caa yendu fanaan ci wa jaahu fi fulkihi almashxooni muriduhu ay fatan fatan mamxooni nee na gaal googu yi ab talibin fekk na ko fa muy jëmm juñu nattu wa waddaa al muridu summa rajaa nee na foofu la talibi bu tàggu daldi dellu ila al jazirati bi qalbin wajia delluwaat ca biir dëkk ba ànd ak xol bu metti nag waaye nee na murit boobu sëñ Mat Lamin nee na muritam murit boobu muy tudd Cheikh Ibrahima Fall la ci jublu sëñ bi nee na gi ba tey am na jëmm ju ko ca fekk bëgg ko laabiire di ko wax ni ko am na benn commandant bu yees buñ fi indi bu jógee Europe boo ko bindoon bataaxel xamal ko ni ko dañu laa tuumaal dañu laa tooñ mën naa mu delloo la ca sa kër ak sa njaboot sëñ bi nee na waa di ma sonal ba xaw maa jengloo ma jël daa ji ak xalima gi waaye bi ma demee ba bëgg a bind bi ma bindee wenn bind képp ci la ma ab xitaab jóge ca sunu borom mooy ilham loolu dafa bari loolu lu mu ko daan dal ay ilhamaat moom sëriñ bi nee na benn ilham dikkal ma ne ma ndax dangay ngay yëkkati sa aajo ji jëme ko ci mbindeef mu mbindeef ni yow bàyyi ma fi nee na ma tiit am kersa daal far la ma bindoon nee na waa ji ginnaaw bi sonal na ma lool ma ne ko dee loolu jaru ko ci mbind moom yi mu bindoon loolu yi bëggoon a def bëggoon a euh, def loolu yi ko waa ji wax ak far gam ko far ci la wax bayit yi wa talaba alladi l amiru arsala maa alxadimi naasihan an yursila barawatan ila amirin qadima min ardihim wa maala summa nadima ثم مها خديم ما قد كتب ثم له خوطب ثم بكتب وكتب القصيدة المقبولة لذكر من يرى به سبيله مي قصيدة بنتنك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إيش لقونك تنبان كتاملي وجهت خطي إلى المليك ذي الأرض والسماء والملوك sëñ bi nee na bi ma saxee ci gaal googi te booba natt bi ma am e, fitna ku ñu natt ku ne yées na sama nattu ndax boobu maa ngi génn jóge ci sama sama njaboot jóge ci samay mbokk jóge ci génn sama génn ci samay kër nee na bi ma nekkee ci gaal gi waa gaal gi di ma wër di yéemu ci samay wax ak samay jëf nee na borom gaal gi bi mu xoolee benn bataaxal boo xam commandant bee ko yónnee Eh, gouverneur bi ko yónni dafa daal di mel ni ku mer mu tar nee boobu man maa ngi waxoo jub mu daal di joxe ndigal ci ni ñu ma génnee ma ak sama bagage yóbbu ma ci beneen néeg gannaaw buñ ma dugalee ci néeg boo xam ne la la ma tànnoon lépp fekk naa ko fa ñu ma maag bagage bi ci néeg boobu yóbbu ma ci néeg boo xam ne dama faa mel ni ab néew ngir xat wax na ni néeg boobu am na fa ay fan buy julli day taxaw kon gal gi mi ngi départ bisub euh, gaaw di ñaari fan ci weeru rabiul awal ndax ajjumal fa yendu fanaan gaaw di ñaari fan ci wéru rabiul awal mi départ sëriñ bi ne kenn di ñew di saboter di reetaan di dem ba aw nak euh, ñu melni ko ko toñ toñal ci am mbedd as mbedd su sew aw nak war di jëm si ci mom ñoom ñëpp ñuy xool kenn ku ne jàpp ne dana def ci man lu ñaaw waaye suñu borom def mu mel ni dañ ko saxal ay laaf mu jàll kenn xamul ba fi mu toll xamee su ci moom dara sëñ bi nee ay fan am naa ko di julli di taxaw nee na gaal gi dikkal ma ci tàggatu suñu borom ni ma yow dañuy laa tooñ daal di joxe ndigal ñu génnee samay bagaas yóbbu ko ci beneen néeg bu mucc ayib naka noonu it suñu borom tàggatal na ko fa benn xale tubaab benn waxambaane tubaab mu ñëw di ko liggéeyal ni ko murid yi liggéeyal ni ko talib yi liggéeyal tubaab ba futti ku ñëw di ko liggéeyal noonu sëriñ bi ne bi ne ba ak Conakry am na benn waay bu ko fa fekk koo xam ne sëriñ bi ab mutanassir la ko tudde mooy koo xam ne tubaab yi dañoo lekk ab xolam ba mu jeex tàkk te du bàyyi lu ñaaw mukk boobu maa ngi yor alxuraan mun ma góor gi jox ma téere bi nga yor nee na ma jox ko téere bi di xool lan la sunu boroom di àtte sama diggante moom lam jëkk jàng ca téere bi ba mu ubbee mooy bashiril munaafiqiina bi anna lahum adaban alima الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نلجعن نعم، بأقشي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سليم من المخمني لجك تآي يب تكاوم لدى الموم كيب نجك آي يد من مما هو من كيب أنا نعم، مبقون نماي سابوتي دي مودي gannaaw bu jotaay boobu jaa jàllee nag nee na la benn salum salum ñëw fekk ko ci biir gaal gi nuyu ko yëkkati addiye am solo jox ko ni ko dama dégg ñu ni yaa ngi ñëw ci gaal gii ñu jëme la gabam loolu moo tax ma ñëw ngir siyaare si la bëgg nga ñaanal ma yàlla te dénk ma sëriñ bi ne na ci jëmm jëmm jooju ci laa dégg turu gabam ci laa xamee fa fañ fañ ma jëme nee ma ñaanal ko yàlla ndénkaane bi mu sàkk woon ci man it ma ne ko xamal ma ni ko li ma lay dénk de mooy nga xam ni foo mën a nekk na nga xam ni amul benn buur bu dul yàlla xam-xam yi am njariñ yépp ñi ngi daje ci laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah nee na ma firil ko ko ci wax ji bay yii laa ko defal firile ko ko maanaam laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah فكل ذي توجه لغير من له الأمور والبرايا في الزمن فليس ذا توجه لفائدة ونفسه لباب نار قائدة ومن توجه له بغير ما أتى به من اصطفى مكرما سيدنا محمد صلى عليه في آله وصحبه من أبدى علاه فأبدا لا يهتوي غير الندم يبوء بالنار وزلة القدم يعني مسنتي الله daal di delluwaat ca dun ba sëriñ bi dana ma ne ko képp ku jóg jëm fudul ci yàlla mi nga xam ni moo moom mbir yépp ci loxoom la nekk mbindeef yépp it moo leen moom ku jóg jëm fenn fudul ci yàlla moom di fa nga jëm amut njariñ te bakkan yaa ngi koy wammat jëme ko ci buntub safara waaye ku jog jëm ci yàlla it te jaari woo ko ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi lu dul ak rëccu doo ko am te da safara it lañ lay faye ak tarxiisu ndëggu kon loolu li muy tekki rek mooy eh, kuy wut dara boo ko wutul ci yàlla doo ko am kuy wut dara ci yàlla boo ko jaarewul ci yonent bi doo ko am te ñaar yooyu yëpp nag lu ci ne safara képp lañ la ci faye muy wut lu dul yàlla ak wut yàlla jaare ko ci fudul sunna si yonent bi sallallahu kon Sëriñ Tuubaa ak taxawaayam ci sunna taxawaayam ci xañtu sunna si yonent bi taxawaayam ci bañ biddaa taxawaayam ci saxal tawxiid diggante ma boroom dafa feeñ ci ay waxam ak ci jëfam ci bi muy jaxasoo ak bi muy wéet bi muy wéet ak bi muy wettaliku ci biir fi mu dëkk ak bu tukki waajoo ji nga xam ni moo abboon téere bi yam ci aaya yooyu ci la sëriñ bi waxe bayit yi naan su martaxal naa fi safinati ila jaziratin uniltu xawlaha ila wa indaha laaqaytu man jaaraani li talabil muna min annasraani wallahu li kashafa amrahu bila taraddudin wa bacdahu laaqa albala summa madaw xata ila jazira raisuha iblisu dhul jazira nee na ginnaaw buñ laxase ci gaal gi dem ci benn dun boo xam ni yàlla may na ma fa xéewal waaye foofee ci dun ba fa daa dajeeg koo xam ni day rawanteeg man ngir di sàkku ay bëgg-bëggam ci nasaraan waaye yàlla wuññal na ma mbiram ci lu dul benn déng-déng ginnaaw bi it mu daje ak i balaa ak i musiba sëñ bi wax na ba tey nii am na jëmm joo xam daa ware Conakry daa yéegee Conakry te xamut ni maa ci bañ jege garam ba sax nee mu jekk-jekki ni yunnu ci néeg bi ma nekk eh, nee na nit nit ku ñuul la jaar ci sama tur ni xanaa kii du diw sëriñ bi nee ma xool ko muy ma dégg naa sama mbokk moo fexe ba jàpp lu la moo la jàpp mu la andi fii ngir li la si taalibe yi di fonk ak di la kopp koppal ak nangam nangam nangam sëñ bi nee bi tàmbulee di wax di ma sabote gaal gi sab sab gu xumb te mooy mooy klaxonné mu mu dem di xaar bëgg bu kàddu gi daggee mu siwaat waaye kàddu gi bi mu daggee la gaal gi teer mu wàcc foofee bokk ci ñu fa war a wàcc loolu la sëriñ bi wax ci bayit yi ni hadiyati safat la daa konaakiri lil mustafa al maahi bila manaakiri barra anillahu la daa konaakiri min kulli jalibin ilal manaakiri أذهب عن الله في كرم كرم بسا قبل مبارسي وعني خل بسا ليس ندي واحنا نسمع نعم هدية سلنا تكون أكيد وانا نعم يلا آه، سترنا ما تكون أكيد لب لي يبون كي تلنا وانا نعم يلا تكرم بسا تلا مصر اللي كدون لو تومن مدال دم أدي جيجم واحد سليم لمننا dégtal gam dégtal waa ji maanaam laa ilaha illa la ci waaye jubluwut hadiya ji ko alal ji ko waaj loolu mooy hadiyati safar daw ma it sëriñ bi nee romb nañu fa mu wax ci karaama bu yéeme bu xam yàlla da ko koo terele wax nee na damaa génne benn biteelu misk bëggoon cee wis sama yére bëgg cee wis téere yi ma yor nee na ñu ilham ma ni ma sànni ko ci géej gi nee na ma sànni biteel bi te déng-déngiwu ma nee na bi gaal gi teeree mbooloo mu mbooloom jullit ñëw di ma nuyu ñoo xam dañ maa dégg ñëw di ma nuyu si kenn ku ne ci ñoom bi ma nuyoo wala boog ñu ëpp ci ñoom ku ma ci nuyu rek yëkkati nga biteelu misk jox ma ko loolu la ci sëñ bi waxee daan ya rahimu inda daawumi lahu bima agna anit tasaawuma kon sëriñ bi diirub li muy dem ci yoon wi dañul di nekk ci ñeewant ak suñu boroom xol bu ubbiku ba ni mu wàcc gabon wax na ne foofu ba mu fa wàccee ci Libreville saxu fa lu yàgg ay weer la fa am ñu yóbbu ko ci beneen dun beneen dun comme sëriñ mat jang xasan moom ma doon wax moom ni mu nettalee agsi gi Rawaan bi mu ñëwee Libreville dafa am diir bu gàtt daal di jàll e, matadi waaye ba mu demee foofu ñu ko waroon yóbbu kooka ni man daanaka jeexal naa kon nañ ko delluwaat Libreville moo tax mu si wat dellusiwaat Libreville am fa ay weer moom moom muy wax ni moom sëñ ma Jëng Asan muy wax ni diir boobu mu amee Libreville ci Libreville googu yi fi lañ ko yeewe ci ak garab indi fukki officier ak ñaar ak seen ak benn commandant seen kilifa takk sëriñ ba mu dëgër ñu dàkkaloo leen ay pàddu ci moom façon ki yéene faat ci ay bal waaye biñ tiiree bi pënd bi wuree dañoo gis ñett ñooñee fukk ak ñett yépp dañoo daanu ñu gis mbooloo mu bari mu taxaw te fekk biñ koy def dañoo woowaa dëkk bi ne leen ku bëgg a seetaan mën ngaa ñëw seetaan waaye biñ gisee mbooloo mu bari mu taxaw kaalawu kaale soomoor dañu daal dëpp ñëpp dem ñu yeewee sëriñ bi ci garab ga moom sëñ ma jëng asan noonu la nettalee daal ni moo tax sax sëñ bi wax ne wahaba lil wahabu fi sulasa maa yox jilul ashrata wa salasa ak beneen bayt yi muy wax ne ajaarani al qahaaru min jumlati al ida wa xaanathumu armaahuhum wal madaafiu ak bayt yi muy waxe najawtu min fitani al aadaai id xasaduuni bil madaafici turran wa sakakini wax na ne foofu ci Gabon lañ ko defe woon euh, ci Libreville lañ ko defe woon loolu waaye fekk xisab ahlu badar feeñ gi waa ahlu badar feeñu sëriñ bi euh, kon ay riwaayaat da ci am yoo xam ne bii nii la dikke muy dañ koy yeew ci garab bi waaye sëriñ Mat Lamin moom ni mu ko nettalee day wax rekk ni dañoo xëy dem fa ñu daan maaje buñ xëyee nee na bañ xëyee dem fa ñu daan maaje dañoo ji yàlla di leen wuññal ahlu badar ñu séen leen bañ leen gisee ñoom ñëpp ñu am tiitaange waaye seen kilifa dalal leen ni leen bu kenn yëngutu na ñëpp ni tekk nee na foofa lañ bu bët set ñu xamal leen ni leen xibaar bi nag képp ku ko ci siiwal daañu la rey sëriñ bi nee na bi ma amee ay fan kilifa googu woolu ma bi ma ñëwee mu ne ma ndax yow amoo ñoo xam ne boo bëggoon a xeex dañ la jàppale naa ma fu ñu mel nan ndax ay jinne la ñu doon wala ay nit la ñu doon nee na man ma yaa ma ko gën a xam sëriñ bi nee na ma woon ko ne ko loolu xawma ci dara suñ mat lamin nee na ci liibar wali googu liibar wali googu la loolu anoon waaye nag noonu rek la ko nettalee waxul ne dañ ko takkoon ngir di ko bëgg a rey waaye sëñ ma jang asan mali dafa indi moom ne dañ ko yeew ci ak garab di ko bëgg a rey loolu ay rawaayal yoo xam ne euh, yàlla xam niñ leen di mën a boole ma mën naa muy ñaari mbir yu bokkut ñaari won yuñ woon noon yi ba badar muy ñaari mbir yu bokkut ndax ni bee moom dafa gën a simple tuuti ndax tudd ci ñu takk ko di ko bëgg a rey badar lii ne dañ fa wax nañ ko yeew ci ak garab ba mu dëgër te it bayit yooyu sëriñ bi wax day wund loolu moo moom sëñ ma jëng asan ba tey wax na ni foofu yi ci Conakry fi lañ gase am pax def ca safara ba noppi muur ca dara woo sëñ bi ba mu ca jaaree mu ni mu bax ñu maasale ko loolu ba tey jaar nañ ci ak moom waaye mu nekk ci ab diir boo xam ne lépp ci ak mucc la nekk ndax suñu borom moo ko fekk nee na moo tax sëñ bi wax ni radama rabbi ma aduwiya xafar li barar yi wasaana am man kafar wax moom it sëriñ Abdul Aar mas na ko fay nettali ci màggal di wax ni bañ ko dugalee ci pax ma euh, mboolem al malaul ala fekk nañu ko fa bëgg koo xet li ba mu leen laajee ni leen ndax ndigalul sama borom ngeen àndal ñu ne ko déedéet mu leen kon soxlawuma ba loolu lépp jàllee nee na dafa am ko ni sëq ci ay mbagam ni ko cëpp fee ko dama ay gëri ji sab liggéey ba mu ko geesoo muy soxna bu sa ndey loolu ba tey noonu la ko sëriñ Abdul Ahad nettalee mu dëppoo ak xissa bii nga xam ne moom la naar di nettali dañu jékki-jékki rek fekk ko mu nekk ci bërëb bañ ko bàyyi woon nekk ci jàmmam moom sëriñ bi day mel ni loolu yi moo tax naar ba ba ñuy wax Abdullahi Salim bi mu koy tàgg di wax ne naarun ta ajjaja هل ينجي الطريح بها إلا منجي خليل الله من ناره sawara way berax beraxi ndax kenn mën naa musal kuñ ca sànni kudul ka musaloon soppeeb yàlla ba ci sawaraam wa noonu lañ ko toxale mu jógee libreville dem lambarne lambarne googu nag fa la am juróomi at ñu teg ko fa rek ci doon ak garab mu génn dëkk bi daana dëkk bi ne le ci ak dex goo xam ne day mel ni la ñu woon mooy rab yi fekk ko fa rek jëfandikoo ko mu jeex sëriñ ba mu fa demee liggéey na fa lu mel ni am mbaar di fa jaamu yàlla eh, waaye nag ci biir loolu it dañoo wut benn inspecteur boo xam ni jamono bu ne day xool si ba xam nit a ngi jaxasoog moom déet ndax loolu lañ doon bañ kuy jaxasoog moom dëkk ba mu xaw dendal moom làmbar ne googu dëkk ndax moom bañ yóbbuñ ko ci ab dëkk dañ ko yóbbu ba ci tefesu géej rek mu daan dëkk bi dëkk boobu mu daan nag am na ku daan ñëw ci dex googu yi di fa napp si ay jën yi saa sax muy wettali ko sëriñ bi di waxtaan ak moom ak tuuti di daal ci wetam ba nappkat boobu daa mujj wut kër ci peggu dex gi jege sëriñ bi gouvernement bi jamono booba ñi ngi saxalal sëriñ bi weer wu dee fukki diinaar ak fukki diinaar waaye mu wax ni loolu lépp riwaaye mujjang asan la mu wax ni sëriñ bi daf ko daan jox nappkat boobu yi fukki diinaar yi bu ñëwee daf ko koy jox moom am genn guddi mu taw taw bu metti boo xam ne ànd taw bu metti bu ànd ngelaw ba daaneel mbaar mi sëriñ bi defaroon ngir dafa jàmm yàlla sëriñ bi dajale téere yi faf sajaada bi muur ko ci daal di taxaw ci ron garab gi boobu mu ngi taw taw bu metti nappukat boobu bi nga ko séenee am ci moom yërmande daal di ñëw jël ko ni ko tengaa ñoon dem ci kër ga am naa fa aw waañ nga mën faa fanaan bañ demee ba ci waañ mënu ko kon mën ngaa bale fii te dugal fi say téere fanaan foofu bu bët set sëriñ bi fa ba ci waañ wala moom la euh, setal fanaan fa bi mu xëyee nappkat bi ñëw ni ko kon te ñoo dem ma jàppale la nga defaraat sa mbaar mi maag sama soxna sëriñ bi ni ko ñëwaleew képp te bàyyi fi soxna si bañ àndee dem mu di ko jàppale muy yëkkati mbaar ma fala ko inspecteur ba fekk te fekk loolu lu ñu daan bañ la mu jàpp ko yóbbu ko wax nañ tëj nañ ko ci at ibir biir at mu nek làmbeen batay amna ben commandant buñ fa andi bo xamni dafa dajale euh ni ko serigne mustapha Lo Moustapha Abdourahmane nett le moy commandant bi dafa wax ni xajna dafa xeb fukki dara ni ñu koy jox kon naa ko dajale motax mu diko sànni dafa xeet fukki dërëm mi ngi ko jox par weer moo tax mu di ko sànni naag ko dajalee ba mu ko dajalee ba mu mat at nag la ñëw di ko jox ci bi mu ko ko joxee nam ko ko joxee xaj na ñàkk ay teggin sëriñ bi fab ko dóor ko ko ba xaaj ko ci ab ja ba mu ba deret ji di nàcc commandant boobu daal di porter sëriñ bi plainte waaye wax nañu ni bi sëriñ bi wujjee moom dañ koo xaar xaar xaar gisuñ lu bokk ci moom nga xam dafa mel ni dañ ko ji rek kenn xamul bokk ci moom loolu ci la sëñ bi wax ne katab di fil baxri anni la amuddu yadi ila nasara abidi al maai wa yadi li muxnin karimin naafiin samadin laa li darahima tati min sulaytini loolu kon mooy riwaay bi nga xam ni moom la mujjëng xasan nettali ci mbirum euh, dërëm yooyu yi teewut nag euh, am na yeneen nettali yoo xam ne li ñu wax mooy dañu faa indi commandant bu yees commandant bu yees bi bi ñu ko indee gisul fenn euh, fu ñu fayee sëriñ bi soldam ndax da daan def bu ñu ko fayee kooku ko yët rek dala koy may am na ñoo xam noon lañ ko nettalee kooku kooku ko yët daf la koy may ba kooku ñëwee xool gisul fenn fu ñu ko daan fayee ndax danaan même bu koy mayee dafa waroon a signé bañ xam ne jot na ci léegi mu bu ko maye mu doo ko may léegi nag bi mu ko dajalee ba di ko ko yët xaj na nam ko ko joxe euh, ci la ñàkk ay teggin sëriñ bi fab ko xaañ ko ko waaye sëriñ bi nee na bi bi mu ko ko xaañee deret jaa ngi toq waaye teewut dafa fabaat dërëm yi for ko lépp dugal ko ci mbuus mi ba noppi dooga lijjanti dagg dagg dagg bi mu dagg bi mu ko pelantee nag ci ni nett li boobu dikkee bi mu pelante sëriñ bi euh, sëriñ bi wujji te tubaab bi dañoo baaxoo bu ñu wootee tribunal lañuy laaj kan kii kan mooy avocat bañ ne amul avocat am ku jóg ni man maa ngi doon avocat daal ni noonu ñu leeral ko mu ni leen mu ni leen benn loi mosu ci jàng kuy fab xaalis di ko fay nit kooka am caag moom problème kuy fayu xaalis kay moo daan dóor nit waaye am ma fay la sa xaalis bi nga demee ci dor loolu kenn mosu ko dégg fenn kooku noonu la layale sëñ ba ni loolu xel nangu ko ñu yàqee noonu àtte bi mu jeex loolu ba tey ab nettali ci mbirum dërëm yooyu allahu alam ci ni ma jàng asan waxee wax na ne bi commandant boobu porté sëriñ bi plante sëriñ bi dem wujji sëriñ Moustapha Lo wax na ci histoire am ni bi dox na lu mat juróom fukki kilomètre ngir wujji waaye waaja moom dañ ko fëkk kenn xamul ci moom dara moo ma jëng as ñoo bokk euh, lenn lu ñu nette ginnaaw bi ñu sàkku beneen commandant bu ñu fi teg waaye kenn ñëneetul ngir ragal sëriñ bi jàpp ni ku ñu fi indi la nga sànku ji des ba kenn nit ku ñuul koo xam ne ab naa feq la ku nekkoon foofee ni man mën naa koo lijjanti tax man maag mooma bokk réew dëkk Sénégal gii kookii nag biñ ko defee mu doon commandant bi coono bu sëriñ bi daj ci juróomi at yàlla moo ko ko ndax lu bon lu lu ñaaw na bañ di ko def ci kanamu sëriñ bi daana fab sax jàmbur bu góor bu jigéen boole leen ñuy sëy ci kanamu ngir bëgg ko naqara kooku daana ko ay garab ko suxatloo ay dër fab na sàngara sotti ko ko lu bon lu ne def na ko ci àdduna garab googu gi nga xam ne juróomi at yi fa nekk yëpp daanaka ci ronu garab nekk moom lay wax naan baayaatuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawli fajara mooy jaayante ne moom ci géej gi ci ron garab googee te booba géej gi mi ngi duusu ay kàccoor wër ma nappkat boobu yi nga xam moom lañ jàppoon tam dendoon doon sëriñ bi mu ngi doon fa sanc fa ci wetam kooku wax na diwéb at yi mu sëñ bi nekk fii mosuma ko gis mu yor kurus juróomi at yi ma yi ma ko gis fii ci làmbari na mosuma ko gis mu yor muy def daal mooy bind mbaa muy julli mbaa muy jàng alxuraan noonu nag lañ ko toxalee làmbar na yóbbu ko maayomba maayomba am na fa ñaari at maayomba kooku fa la bàyyi ko dem Dakar maayomba ba tey dañ ko faa yóbbu ci béréb boo xam ne moom itam lu mel ni ab île la bu nekk ci digg géej gi benn tubaab bu mu jonni man kii mën naa ci moom dara bàyyi leen maag moom daal koy dugal ci gaal dem ba ca digg géej gi ci benn île boo xam ne ay rab képp fa nekk mu sànni ko fa damaa ragal ni moom la sëriñ Moussa Ka di wax wéer wéer booba nag foofu moog Sàmba Lawbe ñoom la fa yóbboondoo wax nañ ni ñoom lañ jëlendoo fii waaye mosuñ dina boole ci benn fu dul foofu lu ci ëpp dañuy wàccee sëñ bi mu beru fenn sàmba nag ñu nekk ak moom waaye tubaab ba ko ba leen fa yóbbu woon ca doj woowee ba mu leen fa ne cëpp sëriñ bi ba mu ne cëpp la kabar di julli julli na fa ñaari raka yu gudd yoo xam mat na ñaari waxtu sàmba booba mi ngi jàq lool di firfiri bi sëriñ bi sëlmalee dafa geestu sàmba ree sàmba tiit ni ko ree béréb mel ni nga di ci ree sëñ bi ne ko boo xamoon li may ree de da xam ni mbir mu yéeme la ni ko ba ma nekkee ak yow ca jolof dangaa waxoon ni suufu jolof xajunu fi nun ñaar te tey maag yow noo bokk der bii sàmba ni ko loole day bëggatuma bëggatuma ko dégg mu ko nag ma jéggal rek rek te bul waxat lu jëm ca loola bu ko fàttali ko mukk ci àdduna sëñ bi ko bul tiit dajaleel bagaas yi teg ko ci sama kanam ci der bi bañ dajalee bagages yi teg ko ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi boof ci bagaas yi daldi wax sàmba ni ko waral ci sama gannaaw te bul xool nag bul xippi sa bët xool waaye sàmba bi mu waree dégg riir mu mag mu bëgg ko lañ kumpa ubbi benn bët bi ba mu xëppee rek la bët ba yuri ko waaye noonu la lu ko sëriñ bi joxee ndigalul xol mu xol ñu gis seen bop ci tafasu géejug maayomba ke sababu wax nañu ni ci la sëriñ bi ni fa yulqini fil bahri rawman li gurbati fali min ilahi ar-rawd fi kulli aylam kep ko ma sanni ci géej gi ngir bëgg sama tumuranki day sama borom man dana ma tagatal lu mu ci béréb bu ci tafasu géej ci la sëriñ bi taxaw di wax di wax ak gi li yashhad bi kaw ni abda man yaxfiru zamba wa kaw ni xadimal mustafa bahrama yomba ni ko seereel ni man mi jaamu bi yàlla miy jégle bàkkaar yi la seereel it ne man mi aji liggéeyal mustafa la yow géejug maa yomba wal yashhad bi an ni laa udaahinu mushrikan ni ko nag ma seereel ni du mën naa feqateeg ab yéefar xalilan habiban lilladi karramal jamba ab xarit laa di ab soppe ci yàlla mi nga xam ne mooma teral وإني خليل للمخفى حبيبه ab xarit laa ci yonante bi ab soppeem la ab soppeem la alayhi salaam maa man kafaani bihil kisba dafa mujj commandant bi nekk maa yomba dafa mujj yónnee ci kilifaam ni ko nag kii nga nu booleel luñ xam lu ne ci ay pexe jëf nañ ko ci waaye amu ci benn njariñ moom ne kon moo ci des na xool luy pexe léegi commandant bu mag boobu mu yónnee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 lañ tànn jigéen joo xam ne loolu ab liggéeyam la mu doon ko jàng bañ ko ba ma ba mu dugg ci biir néeg bi ñu tëj bunt bi yóbbu caabi wax nañu ne sëriñ bi ba mu siggee yam ci moom dafa sëpp xalima gi ñu cax ko ko mu def am mbott mu fëpp fab këll bi këpp ko ko bañ demee ba ci beneen sa bi ñëwee ubbi néeg bi xool gis sëriñ bi képp mu toog bind gisuñu jigéen ji bañ ko sonalee ba sonal ko mu ubbi këll bi ni leen boroomu ko ruude lii laa fi gis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 ba gis gis gis nag war ko delloo sénégal sëriñ bi mi ngi wax ni sëriñ bi ngi wax ni juróomi at yooyu ma nekk foofu ci laa mujj mel ni ab jant kon wi la jóge ñu yóbbu ko lambarne lambarne mu jóge fa ñu yóbbu ko maayomba maayomba it ñaari at la fa am kon loolu ñetti béréb yooyu la nekkoon li lépp nag ay jaaruwaay la waaye fa mu ci doonee nag duñ ko yóbbu ci ab dëkk bu leer waaye dañuy dem ba ca sori fa roqe foo xamante ni daanaka eh, ay rab ka ba fay nekk ñu sànni ko fa tey ne juróom yi ma def foofu yi mujj naa ci mel ne ab jant ci ak yëkkatiku yëkkatiku maqaama ak tasaaroog daraja ak i njëriñ bari waaw ni ab jant di tiime lépp ni ab jant di tasaaroo ci àdduna ni ab jant di bare ay njëriñ léegi mel na ni ab jant ci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 Ma yomb sëñ mi netli ci yaa fa ni am na xale xale bu ñew ci bira bi may binde yor jaay si bocc ko di ko ci sama bop na ma yaway diw di jaay sama tour neena na ko waaw neena na mu ma ndax sama mam mo daan ray wali yi te man may doom sëñ bi dana ma joxañ ko xalima gi gëdd ko ni mel ko koy bëgg songu ni ko xamal ni do sama mam ji daan reyee te man mi duma ñe sama mam daan rey neena mu dal di tit xalima gi képp mel ni kanu ci moom sëriñ bi muy nett li ba am na benn kilifa bu fa ñëw boo xam ni ci foofu yi mu nekkoon ci làmbarne nee na jëkk muy ñëw ñu ngi koy waajal di ko teeru di setal mbedd yi samp ay drapeau ay fan yu bari ñu koy waajal bi mu agsee rek man la jëkkalaate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 am keneen ku ko laaj ni ko ndax yonent bi àndu na ca mu ni ko waaw mooy seen kilifa moo leen jiite woon ndekete bay di muy wax ni man xaadali maa xaaba xan kulli li lii xaada ahla badrinil usuda jëm ci teg atu badr googu yi mooy li ko suñu borom defal te benn wali yu masu ko am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 ba ni mu waxee ni dafa uktub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi wajal bihi masjidi rahba mooy yàlla nga bind ak julli ak ub salmal ci yonente bi ak saxaabaam te defal ma jàkk ju yaatu na mu ci biir woo ko wax ni ko nangu nañ sag ñaan te danga ko gis nee na mu bokk ci dogali suñ borom yi bi e, jumaa yi njaareem ci àggee yëlli say moomee yàlla dogal mu ñëw di siyaare si njaareem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 wax ji ma waxoon ne nafaa li xayrillahu fii ma yomba maasa qalbiya wa ahlal jamba ne la naqari woon sama kol mooy yàq ga kookee yàqoon sama jàkka jooje wa ahlal jamba ji nee na mooy yëkkati kook soroor yii loolu lay firi sëñ bi ni commandant boobu bi mu yàqee bu mu buddee mu doon def jàkka ña ko jublu woon a di caa am ku ñëw jël ci ab bant yóbbu ci ab bant yóbbu ko fa muy sango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 gis ma kenn ma xool gis ma kenn ma chamon gis ma kenn ma xool penk ma kenn neena mu wóor ma ni kenn du ñëw waaye bi ma kàbbaree ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ci baalix aksi daal di taxaw ci sama pegg di ma xool bi ma kàbbaree nee na ñuy ree saa bu ma nee allahu akbar ñuy ree bu ma jàngee ñuy ree ba ni ma selmale xutba daal di wax ci sama biir di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 jublu nag ci yàlla mi nga xam ne mbir yépp ci loxoom la nekk déeyaaleeg moom ci sama mbir déeyaaleeg dama caa wax ne allahuma innaka xalaqtana li ibadika ibadatika naa mun yàlla dañoo bind ngir ñu jaamu la nga wax ni wa maa xalaqtul jinna wa insa illa li yabudun bi may bind nit ak jinne bindu ma leen lu ngir bëgg ñu jàmm waxaatit ni yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum loolu lépp yaa digle ñu jaamu bind ñu jaamu la nga digal leen ko ah,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 loolu yi ci la sëñ أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اهتمت عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللصهاب الحنفاء صرفت لي جاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصهاب رضي عنهم من حماني عن سحاب كن آه، دير التكبي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 Eh, yell na mu sesele ci diir bi sëriñ bi nekkee ci géej gi mag ñi mu bàyyi woon ginnaaw ana ci luñ nekkoon mu murid yi kenn ku ne ci ñoom eh, yaa ngi xool li xeet xeetool ci ay jëf nga nekkoon ci waaye festewuñ rek seeni loxo kenn ku ne ci ñoom yaa ngi daan taxaw sa kem kàttan la nga man rek ngir problème bii eh, réglé woo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 am na sax ñuy nettali ni caddo yi dañoo yebal jur gi ñu ruur mbay ma ba mbay ma sax daanaka mujjul àgg borom daaru nag ginnaaw bu euh, loolu jàll année la tuxu ànd ak njaboot gi ak bagaas yi dem Mbàkke Bawol demee Mbàkke it taxaw ci ndénkaan bi ko sëriñ bi dénkoon taxawaay bu ma sëkk murit yëpp yit dajaloo topp ci ginnaaw foofu yi dégg nañ fi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 taxawin bu rafet ndax diir bu sëriñ bi fàddoo ba nim dellusee dafa saxal di jàng lu junni salatu na jena akub kamil ginnaaw bu ñu kamil bu noppi def junni salatu na jena kamil mom moom mi ngi fi woon jëkk sëriñ bi dem bi fi sëriñ bi nekk ñu ko jàng suba ak ngoon waaye julli gi muy salatu na nabi gi saxutoon jamono bu sëriñ bi nekk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 naka noonu sëriñ omar buso bu sëriñ bu bi dem ca bi bañ wax mu bi ca tanku ndam sëñ man dumbe dem kër ma gey ndaw Cheikh ibrahim ma nga won dar am itam di dox ci diggante sëriñ bi ak tubaab di leral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 يدي زيارتي بوكو ني سيمبولو ماكو فا فك شيخ ابن جاب مشعر خصه بو يين بو خرمو لا نيو فا في فسيرن بي تا كيمان فاجنا تي بو ماك تي كشفو غوسن بروم دافال سيرن بي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 nee na mu lim mbuus mu ci ne mu lim ko ber ko mbuus mu ci ne ñetti téeméer nekk ca buñ ko boolee muy juróom benn téeméer sëñ bi ne ko génne ci ab téeméer ber ko ne te andil ma li andil andil ma ko nee na ma génne ci ab téeméer ber ko andil ko ko jox ko téeméer bi mu ma ñaari xaaj yi des boole ko mu boole ñaar ñaari xaaj yi ci des mu ne ko lii mën nga koo dimbali ko te booba bar bi juróomi téeméer la ab xaal daal koy dikkal nag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 وعليك يا ليس الكتائب يا أبا الحسنين نور ديننا باقيها أنتم كرام لا يلوذ بجاهكم شاك النوائب فانسنا شاكيها فعليكم أزكى صلاة الله ما بكم الحوائج قد قضى قاضيها سيبيه مجلور تبوي جوية نحن نمان ما برب أي مبك يخمني سيدلنا كو تدقنت ويتدين فعليك يا مختار أول خدمة نيو ينتبه خاج بو جيك بي يو لا كو ين وعليك يا صديقنا فانيها يا ابو بكر صديق نياري لو خاج بي يو لا كو ين وعليك يا فاروق ثالث قسمه يا عمر بن الخطاب يو لا ين نتيلو خاج بي وعليك يا عثمان انا تاليها يو سنم عثمان آه، لي تي توب يو لا كو ين وعليك يا ليس الكتائب يا ابا الحسنين نور الدين باقيها يوم خمس يا خري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 kër Masamba Xari Diop dem kër Moxtaar fanan fa dal di yendu laxas ci ngonu talata dem kër Moxtaar Mariam Silla ci ñaxal am fa ay fan dem kër Samba Diop ci kokki guy dal fa yendu waaye fanaanut jëkk timis la fa joge booba ñi ngi wajal ñam yi mu dem ba daru salam gudik alarba tolok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 mo taxaw ci njabot gi ba diir bu gàtt ñu ci bari mokkal ci njabotu sëriñ bi dara taxawut dañuy sàdd ci moom aw lépp ci jub ak jub jub mbir moom maam ci am foofii fi moom fi la sëriñ bi jullee ayib fi la jullee tabaski kon ndokkeel yi nga xam ni kilifa yi doon nañu ko ndokkeel danañ ci cuqati yannat rek tudd ko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 ba àgg ci maqaamam taslim ak ar ridwaan loolu maqaamay tasawuf la ba mu jógee foofa dugg ci mbooloom woy jege yàlla yi nga xam ne ñoo ko xam mu ne maa ngi ñaan yàlla di ko maa di ko ñaanal yàlla aljanna ak ndollem maa ngi ñaan yàlla it mu musal nu ci yàqu-yàqu jamono ji baaxoo am te mooy eh, jamono baaxoo indi ki ma jublu nag muy xarit bii ma bind lettre bi maa ngi ci jublu boroom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 وبدر منير غاب في الغرب ثم لاح من الغرب شمسا رفعة وانتشارا ويا عجبا باب المتاب مفتح لكل مريد رام منه جوارا هنيئا لذا الدين الغريب الذي غدا يتيه سرورا منكم وافتخارا بيد يو moom لا شيخ Sadi bu bind sëriñ bi irtijaal ko sëriñ bi sax tontu na ko ay bayit